ñaari treize yow yomb rek ngay organiser yow. ah yow yomb rek ngay organiser. ah loolu da lay def. Euh, tey nag ku Kouthia moom xam naa ni daf may def loo lii dama koy poser question yi ba pare <laughs> bu ko defee man ak moom bu ànd ak dogal yàlla ñu ànd dem Ndungu Sine parce que président Macky Sall mooy kilifay réew mi ba le 2 te le 2 mardi la tey la lan vendredi samedi dimanche lundi mardi juróomi fan lu ne xaaj na. lii ñuy waaj a def nii. ah wóor na yàlla kii la nu ut outra ah, outrage au chef de l'État. outrage. outrage. outrage. ci Aïcha téléphone bi bu fekkee yembul ma dem nuyu Kouthia en attendant gars yi di dajaloo woote dafa amati surchargement dafa feesati téléphone bi di bu feesee da ngay décrocher muy bañ ñun ñu foog na ñun ñoo leen di nax fekk ni ni ñooy wootee ndoo da ngeen di couper yéen ñëpp ngeen woote waat au 88 628 17 27 wala 88 676 08 08 boo wootee ci numéro bi jàllut nga wootee ci beneen numéro bi waaw ma xaar balaa may dem ma jël kenn comme ça ñu tàmbaleek moom balaa may dem ci Kouthia Abou Bilal dama ngi leen koy wax léegi dinañ waxtaane loo xam ne lu am solo la mooy xale yu ci bëri seeni way jur dañ leen di yebal ngir ñu dem lekkool jàngi ñu ci bari nag bu ñu fa demee dinañ fa naan ay lopet ñii di fa dem euh, ca Paris foot ya ñii di fa naan ay mbir ay bagages yoo xam ne daal mën na leen a lor ci seen gu yaram euh, lu ci mel ne drogue yeeg pari foot yeeg yenn euh, dérive yooyu euh, on va en parler dans l'émission mais nous allons aussi donner la parole aux étudiants ci lan mooy seen ay néggandiku ci ngornamang bu yees bi nga xam ne ñu ngi ko dénk Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence président de la République du Sénégal est-ce que <laughs> Djiby Sèye mi wax nga dëgg <laughs> mooy fi ni naan est-ce que ah. <laughs> <laughs> sëy melal li nga meloon sëy rek leel <laughs> sëy nga yem si fu taxu baax ayca je pense que il est préférable d'aller voir Kouthia comme ça gars yi mën a wàcc téléphone bi ñu gagné temps c'est bon Sidi ñu dem ci Kouthia am na kenn ku nekk en ligne ma jël ko asalaamaaleykum 549 déjà jigéen la am di trouvé na. <laughs> soxna si na nga def. maa ngi tudd. soxna soxna soxna Diop. fukki na soxna Diop foo dëkk. Caaroy Azur. na soxna Diop Caaroy Azur. ci jàmm. maa ngi ci jàmm code bi soxna Diop. déggul dara soxna bii bu waxee ba ma posé ko question ba mu weer seen waa kër fii soxna Diop Caaroy Azur. waaw. am na lu ñu lay yónnee léegi si sa téléphone. Hmm? kan moo lay yàkkal nga lax yow. sama benn xarit bu tudd Aana. maa ngi lay yónnee cent mille francs ci barki Serigne Babacar ah, kër d'accord. kontaan naa jërëjëf ñaar fukki junni taxawal bul coupé boo ko jotee nga ni jot naa ko. waaw xaara yi nag tem ñu tembalee woote bu fi kenn woote duma leen jël. Pape Sidi rek li nga si xamul da nga gis benn waay bu woote. xoolal sa téléphone. allo. allo. soxna. xoolal sa téléphone s'il te plaît. na Soxna Diop Caaroy Azur ñaar fukki junni ci barki barkib Serigne Babacar Sy boo xamee ku lay tibbal nga lax nga may ko juróomi junni bala fukki junni loolu dina dina rataxal diggante dëkk dëkkandoo. gis nga am gisagoo. gisaguma de ñëwagul. yee. c'est déjà envoyé ñun yónnee nañ la cent mille yi ba pare. waaw attends sa téléphone da ngaa message est-ce que mën nga mën nga dem si application Wave. jot nga. ñaata nga jot. cent est-ce que duma ci teg benn benn bon make-up. man man mère laa de tegal ma ci xaalis. Eh. <laughs> kii sama yaay la. sama yaay la mooy wax ni. sama yaay la. <laughs> yaay bonne fête des mères mu ne kon yónnee ma xaalis bi pour moom bonne fête des mères day ànd ak xaalis waa mère. yow amoo benn sët bu jigéen wala doom bu jigéen. ah am naa ko kay. waaye man xaalis sama gën. waaw xaalis la eh, gën a. waaw kay mère maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla la woom yu sedd guy <laughs> soxna merci beaucoup. jërëjëf <laughs> soxna mii ku nekk nee na sama yaay la te wax nañ dëgg ñin ñi Sénégal yëpp benn yaay bi lañ am. <laughs> xaalis lañ bëgg. ana Étienne ana Thérèse ana Jules ana am na ku ma dajal église Parcelles Assainies mu ne ma man Jean Mamadou Diouf laa tudd mbaa du ma woote nga ni Mamadou jullit la ma ne ko déedéet sa torondoo jullit la sa wëllëre bàyyi la woon loolu ci mi lañ ko fekk te man du ma ko sensé ndax ñaar fukki junni est-ce que dinaa ko ci changé 88 628 17 27 88 676 08 08 150 000 wala 100 000 francs tout de suite on ana Abu Bilal ana Kouthia Kouthia maa ngi lay nuyu allo Kouthia Kouthia ngi gërëm bu a dem koor gi di gën a waaj bi mag am na bu ndaw bu euh, bi na bu magam na bu ndawam bii nga xam ne moom mooy top euh, euh, orange bi am na bu mag gis ngeen ko am na bu ndaw waaye tamit binto bi am na bu mag am na bu ndaw li nga xam ne nag moom mooy limonade bi am na bu mag am na ndaw gaamu sobox daal foo dem ci biir Sénégal fekk ko ndax ñu ne ñoom dañoo yàgg ci réew mi ñu yàgg ñoo géexloo ñu tamit ñuy yàgg génn suñu koppar ñu ñuy géexloo yàlla yàlla defal jàmm kon nag soba moo ànd ñun di gërëm baax ñi nga xam ñoo nekk ci plateau bi di nuyu tamit suñu réalisateur Sidi ak koo xam ne yaa ngi fii ci 2STV bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla yàlla yàlla defal jàmm yéen fat bu gërëm gërëm par Sidi waaw ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay alhamdulilah xam nga fu ñu jëm waaw président Macky Sall am na liggéey bu bees tàq dafay bàyyi la deux le trois mu commencé démb ci guddi sax boo xoolee yónnee nañ ko maanaam liggéey bi mu war a def nan la koy defee ba mu def téléconférence ba incha allah rabi yaakaar naa ne day jox jomaay lengee rek ku dem Paris commencé liggéey liggéey boo xam ne dina ko expliquer sénégalais pour ñu xam ban façon liggéey la ndax dafay nekk président kuréel wara dafay nekk ci tubaab yi war a ci Afrique lay nekk. Uh-huh. ñu bàyyi président Macky uh-huh. ay laaj nga laaj ko mu tontu wax ci liggéey bi ak défaite bi nan la ko dundee. waaw comme président Macky Sall dafa am liggéey bu bees euh, maa ngi lay nuyu déjà président Macky Sall di la laaj sa liggéey bu bees boobu lan la ndax danga nga am liggéey bu bees ak foo koy liggéey jee président yow rek la ñuy déglu. Sénégal yëpp balaa muy ñëw ci tontu bi nga xam ne laaj bi nga xam ne yow ma koy laaj jëmale ci sama liggéey bu bees bi nga xam ne yàlla dimbali na ma ba tubaab bi seetaanuñu ma damay nuyu sénégalais yi di leen félicité ci li nga xam ne moom la ñu yaakaaru moon nag ni lay demee mais comme que yàlla ni la ko dogalee li mbëri di wax rek maa ngi encouragé ki nga xam ne mooy Diomaye di félicité Diomaye di encouragé Amadou ci defet bu mag bi nga xam ne am na ko bu ko ñaanal yàlla bu beneen yoonante mu préparé wu te xam ne euh, lamb ji moom dafa changé dafa soppeeku bon concernant li nga xam ne mooy suma liggéey uh-huh. parce que ñu bëri ñu ngi may woon ma dem en chômage non ku ma ko yéene tey di am gàcce. parce que yàlla dogal na ma tubaab gis nañ ma nee ma xam nga àdduna xam nga Afrique xam nga planète yëpp parce que fu ne voyagé naa fa. oui Macron jël na ma pour ma commencer liggéey ak tubaab yi di leen doxal seen soxla maanaam di dem di wax ak yeneen dëkk yi nga xam ne mooy quatre pays quatre planètes yi nga xam ne ay jokkalante waxtaan ak diplomatie maanaam ci mbiru diplomatie. Euh, mais demb dañ fi dalal président Yaya Jammeh mu ne yow kon càq-càq ngay liggéey foofu France kon se liggéey bi di yoon yónni di dox ay soxla genre càq-càq la quoi président. non ah, Pape Sidi ma ndax affaire u càq-càq la. parce que ah, non damay laaj rek un minimum de respect quand même. waaw baal ma président du Sénégal mais institution yi may na ma am boo xam ne waroo ma wàcc. man du ma càq-càq dëgg la. du ma coursier aussi du ma coursier dama nekk ci liggéey boo xam ne tubaab yi ñoo na ma dañu lay jox ay dossier nga dem di ko yóbbu di wax ak ñooñu waaw loolu du liggéey. dëgg la liggéey la kon dëgg bëgg wax ne waaw même bu fekkee na Jakarta man laa war a cag-cag laa cag-cag diplomatie laa quand même. waaw cag jëm a xeex. <laughs> cag-cag diplomatie de moo tane cag-cag koñ bi. waaw président loolu de am nga si droit wax dëgg yàlla maa ngi jégalu bu baax euh, Sall Ngari Lam Tooro Bour Guédé yow sa cag-cag sax moo gën cag-cagu booy yi nekk si koñ bi yow moom wax dëgg yàlla yaay yaay yaa fatt fépp mais président noo dundee jouru jouru jouru mbàcc mi mbàccum gerte yi defet bi noo ko dundee yow non man defet bi defet bi soo gisee man méttiwuma c'est parce que du man maa doon bëre. Ah, ah du ma mbër du ma entraîneur yoruma cumukaay sama kër laa togg seetaan kon ñëpp. mais mbër la. waaw mais bu fekkee ñoom nit ñi ñoo wax ne kat dañu seetaan Amadou ñoom loolu la concerné man l'essentiel mooy que du ma candidat nekkuma candidat. nekkumoon candidat. yow kat jàppale woo ko du moon candidat te nekkumoon candidat et puis euh, gis nga làmb bu jeexee ba pare jeex na fàttali ay daan yooyu dafay. indiwaat yeneen situation li ma bëgg xamal waa Sénégal mooy sama noon yi nga xam ne dañu nekk ci biir nekk ci wujje bi nga xam ne lu ne yàq nañ ma ko yaakaar na def ma fi dara di ma doon yéene ma fande tey yàlla dimbali na ma maa ngi liggéey liggéey bés taq te tubaab yi di ma ko denk ma dem di ko doxi di leen ko defal ci yoon bu fekkee Sénégal xaj na ci naa ko ci xajal bu ci xajul nag ma topp li nga xam ne moom lañ ma jox waaw mais président yaa ngi wax tubaab bi di ma yónni may dem di dox soxla maa ngi lay laaj ne la ndax loolu du courtier wala courtier la non non non bul ma wax coursier parce que coursier mooy koo xam ne non non non non non non parce il faut pas ngay wax ne que Jakarta man damay dawal cag-cag dawal ma cag-cag li may dox yi mooy ay dossiers yoo xam ne dama koy jële ci français yi di koy yóbbu ci américains yi ak ci peuple africain ak ci asa yi ak ñëpp mu wax ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne moom la mu tubaab yi jox dégg la dégg am na xaalis kenn du liggéey te doo laal xaalis <laughs> dina am sama jàmm kenn dootuma fi tuddee ay suloo patronage <laughs> kenn dootuma dugal ci yenn détails yu ndaw yi ah conseil bi may jox Diomaye mooy de faire très attention uh-huh. parce que ci situation yi li nga ci mën a jàngat mooy fexe ba sénégalais yi xam na ne lii ndogal la woon bu am ci yow ndogal boo xam ne wàcc na sama kaw li ma ci jàngat daal mooy moytu lu bëri ñi nga xam ne dañuy ànd ak yow dem ba ci biir mu metti ñu rocceeku nànk te seen lamin mu moytu tamit ñi nga xam ne ñoo lay tuddee ay soirée ay solo patronage de monsieur ak madame boo demee ba fi xam ne nag say laaf tooy nañ dootu leen gisati. oui li ma ci mën a jàngat daal mooy mu xamal ko ne réew mi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. dëgg man daal am naa suma liggéey maa ngi sant yàlla fii nag su ma fi jaaratee xëy na dama fi jaar pour xool leen nii rek nuyoo dem waaye Sénégal moom. le 2 incha allah à minuit 45 dinaa leen bàyyi ak seen dëkk. 45 yi pour lan yéen man xaw ma noonu da ngeen di jëlaate. xaw ma ne yéen xamu leen ku leen indil coupe d' Afrique mosu leen ko gagné mosu leen qualifié coupe du monde mosu leen am stade yu bëri def naa ko fi yooyu yëpp ngeen gëmm si defu leen ko. 2000 gagné demoon nañ coupe du monde mais moom dem feneen. uti ko feneen <laughs> ànd ak ñeneen liggéey pour ñeneen comme que fii da ngay jëf kenn du ko gis. kenn du ko kenn du ko tasaare kenn du ko waxtaane mais suma candidat bi nga xam ne moom laa sampoon gisuma benn yoon mu génne ay affaire yoo xam ne def ko fi kanam moo tax ma siison ah kon da nga siison siison je sais pas la def c'est positif o négatif mais de toutes les façons yéen Sénégal yi ngi noonu yéen a ngi noonu foo leen xam jëm comme ko jomaay moo leen gënal Macky kon jomaay ngi noonu mooy Sonko Sonko mooy Macky yéen a xam waaye Macky mooy Macky Macky ah. mooy Macron Macky mooy Amadou parce que deuxième qui se sort ma benn la rek sa non président Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Amadou mooy président Macky président Macky mooy Amadou Ba loolu la mais wax nga léegi lu am solo nag président wax dëgg yàlla lu waay waxadi waxadi waxadi mbaa mu ragal diggante ak boromam ngegen ngegenoog loxoom ndey joorom bii tëdd nelaw xam na ni réew mi def nga fi lu baree baree bari liggéey nga fi liggéey bu am solo Sall ngaari lu ci mel ne BRT bi lu ci mel ne teer bi pour na citer que cela léegi nag booy dem da ko fi bàyyi wala non li nga xam ne moom def naa ko fi def beer teeg peer teeg ak teer yëpp jël leen comme que yéen xamu leen mosu leen dugg train boo xam ne dafay am électrique mosu leen dugg BRT xamu leen ko woon coupe d' Afrique boo ñu ko amee tey yàlla ak sama njiglaay la ak motivation yi ma def ci jour yi comme que yooyu yëpp xamu leen ko defu leen ko gisu leen ko pesé wul ci poids électoral bi dem leen jomaa ngi noonu yéen a ngi noonu dem leen Sénégal ngi si noonu seen kanam yàlla yàlla àtteeg yéen te yàlla bu ma àtteeg yéen bilaay barke sëriñ waa waa prési prési prési prési président moom chaque jour nii lay def Sall Ngari yàlla la yàlla may jàmm ak foo jublu ak li ngay bëgg a def yëpp yàlla na nekk njariñu àdduna bi nekk njëriñu Afrique nekk njëriñu Sénégal suba nag euh, Karim Wade la la ñu invité ku Abou Bilal nee na suba Karim Wade lay indi kon bu loon ko raté ana papi ay ca ñëwal ñu wax ak suñ gars yi laata ñuy toog nuyoo wala ñu jël euh, téléphone suñu paree lii ñuy def rek dañuy jël téléphone on va commencer par le début on va faire comme ça et faire le tour de table voici les produits de la Sobowa depuis 1929 plus de 50 références en termes de boissons lii nga gis ci euh, frigo bi ay boissons Sobowa la yu ndaw waaye bouteilles yu mag yaa ngi nii ci plateau bi donc merci beaucoup à la Sobowa boutique bu ngeen dugg ci biir Sénégal réseau de distribution bi gën a yànj bi gën a mag ba Kidira ba Bakel ba dunde xoore ba maatam foo dem ba da nga fa fekk produit Soboa te fii ci suñ ginnaaw fii ngeen gis nii fii la usine bi nekk fii lañ koy defaree donc mention spéciale à la Soboa et ses produits on peut en énumérer les gazelles limonades les boissons top Vimto gazelle pomme gazelle ananas merci beaucoup à la Soboa li nga xam ne moom mooy xaritu am di mignon ak ceddo murit sadix mooy meewu alib mooy diwlin kadi moom mooy bouillon kadi mën a saf mën a safal mën a nokkos bii mooy margarite euh, bër de table kadi dafay diwu ci mburu tey rokos ganaar kii mooy moutarde amira bële ca gannaaw mooy mayonnaise kadi amira nag yemul ci moutarde kase am na ay pat te lépp ay production Sénico la bi moom mooy alib bu 400 grammes familial bi bu ngeen ko jëndee kër gi yëpp mën nañ cee ndogu desel ci ba ñu am lu ñu ndékkee bu ñu waree xanaa du Sénico mooy bomb fii yaa ngi fi TQG Touba Quincaillerie Générale rue Ngalandou Diouf Mbour parcelle cité d'Amel rond-point 26 Touba ak Kër Massar fépp fu ngeen dem gis fa ñu bind TQG jàpp leen ne du ñu jaay matériel u cere du ñu jaay matériel buy xoruñ xaraj li ñuy jaay lépp qualité la qualité bu baax a baax la ñu indil Sénégal ndax ay doomi réew mi lañ bëgguñ nit di am loraange dina yàgg ak yéen lool njëg gi yomb na accessible na et c'est de la qualité. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat pour mieux magnifier leur travail. Merci beaucoup TQG. Voici les boissons originales. jus de fruits naturel 100 pour cent naturel jus de fruits la yoo xam ne da ngay naan di daj ay donj muy neex ngay daj fruit bi en question waaw waaw Fatima Ngoog cum ku mu jox taasu Nescafé balaa nga koo naan na nga ko yëngal parce que suukar si da ko ciy tëmbal rek moom yëngalut moom xam naa leen xam naa Fatima da ko ciy tëmbal noonu rek dee leen yëngal moo tax mu defal leen ci kuddu yëngalukaay googu gan ñi laay wax ñi yàgg ci plateau bi yàgg na noo nañ ko <laughs> na noo dajeeg ñoom. voilà donc je disais tout à l'heure que original mooy boisson bi nga xam ne jus de fruits naturel la et c'est par des Sénégalais que c'est vendu. dans toutes les boutiques du Sénégal yokku ci représenté par Ndoukoumane. représenté par Ndoukoumane. sànnee ne aram faxa important c'est c'est important important xale yu jigéen yi nekk ci Facebook bi di seetaan ci seen bëgg gu ngeen bëgg encore plus ak 2STV yi dinaa wax tey kan laay tànn yow sàccoon nga woon damay joxe maa gën a sérieux ña la de <laughs> <laughs> moom la ñu maquillé woon yi yow journaliste nga da ngay sérieux yow non yow ma tànn am ah, tànnal man am na bu desoon démb génne ko nga may ko ma jigéen Vivita fan la nekk ci dakaar Vivita fan la nekk ci Dakar vous répondez à la question et s'il vous plaît ne mettez pas votre numéro de téléphone et pour leur faciliter Pape Sidi cosmakeup ah waa Facebook makeup ak cosmétique mhm. mooy cosmakeup mhm. gis nga ni ma yaangeen nii te tarkal la ñu ngi ko defaree Autriche basin 100 pour cent coton viscose day daanu di lerax leraxi lii su ma leen waxee ne yetti at a ngi nii soluma ko du ngeen ma gëm dama redoublé ba dugg boîte vocale fi mu ne nii. <laughs> yaa ngi bees tàq de. te maa ngi mel ne. patron yu bees yooyu. <laughs> xoolal li ni nguur gu <laughs> ay redoublement yu laa jamtaa ah, beaucoup tu peux ramener cette tasse. man moom xam naa ne li may naan Nescafé am am naa fii sous merci beaucoup Fatima voilà. dina traiteur nag waa plateau bee ngi lay jëw. kenn du moom de eh, kenn moom. nee nañ mbuus yi nga ñu doon jox daa nga ci def lu gën a bari loolu nee nañ léegi dañuy xamp ñetti xamp mu jeex. <laughs> kii moo ko wax dina traiteur merci beaucoup ci photo yi mboolem bu ngeen toog. ñu ngi ko defaree fii ci Sénégal ñi koy defar mooy ay doomu Sénégal di établissement Kilifa ak G6 fépp fu ngeen gis établissement Kilifa ak g mën ngeen a dugg taxam ne du ñu jaay dara lu bon lii ñuy wane nag ci télé bi mooy dina traiteur bu ngeen amee ay cérémonie bu ngeen bëggee berndeel seen i gan te du ngeen sonn dugg waañ di togg di defar ay petits plats des amuse-bouches vous pouvez les contacter sur ce numéro qui affiche qui s'affiche à l'écran 77 611 58 52 merci beaucoup dina traiteur et eau royale ndox mi nga xam ne royalement nga koy naan da ngay guur di gàllaxndiku di saraxndiku di naan bu la neexee sax nga mais bàyyi leen ba dogu nag waxuma kenn ne Pape Sidi moo ne nan naan ba tax du ngeen woor 88 628 17 27 88 676 08 08 nee toog ba nuyu dijë raxu ne ko asalaamaaleykum bi baax Touba kanam ko nee naa kenn du ko fàtte mu ngi nii di défilé Touba kanam ku yor 1000 francs dama ko fa dugal dal koy wax dal ci kanam waaw waaw Touba ci kanam ah dijë raxu raxu bàyyi fa wóor na borom ay waay jàng naa lu bëri <laughs> il était pas choqué raxu ziar naa la maa lay delloo ziar baa yaa ngi ci jàmm. di sant yàlla lool am mbégte toogaat fi moom ba neex la ndax bu la yàlla maye nga yeewu ci jàmm rek dara dalu la ba toogaat fii moom damay sant rek. c'est important alhamdulilah rabbil alamin c'est important c'est <laughs> euh, maa ngi nuyu Thierno Mouride Sadikh. waaw Fall. noo def. sant borom tubaab bu baax. ana yitte yi. ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. ok ci la ñu dëkk ci sant rek. sant rek waaw ak yokku. waaye tey moom damay nuyoo nag sama samay xarit yoo xam ne. léeg-léeg ma négligé leen ci ñoom laa gën a bëgg euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Tahir mhm. euh, sëtu sëñ Fallou la sëñ Tahir mu sëñ Fallou mooy baayam mhm. ñi sant Mbacké ñëpp moo ci gën doon sama xarit mhm. waaw day sama sang ba noppi bëgg ma féetewoo ak man Abdoul Ahad Bousso Maram démb am na lu ma yónnee maa ngi nuyu itam sëñ Abdoul Ahad Bousso Maram euh, di nuyu sama xarit ba ci Amérique Bakar Ndiaye ak Sayyidatuna Saalihaati Salaam muy Awa jigéen ju baax jigéen ju man góor waaw pare naa ci. <laughs> Euh, maa ngi nuyu Sophia Thiam gis ngeen gis ngeen grand yi niñ pragmatique yi. waaw ñun tamit duñ duñ leen ko bàyyee de dañuy pragmatique rek di nuyu ñëpp di ziar ñu toog ci plateau bi. ak sunu ay téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo la 2STV waaye tey guddi gi dañ koy may Ndeye a Diallo seet bu bees ak euh, Nogay Nogay jaañ moom dafa bëgg Serigne Babacar si ma nga toog di seetaan ak sunu waa kër tey incha allah ni lañ ko fas yéene defee. ci waxtaan ak ci Sikar incha allah. reçois les salutations de DJ euh, Dollar. oh il est en ce moment en train de nous regarder. Oh. merci pour ça. dégustez votre tasse de Nescafé je vais dire bonsoir à Khadija Patra noo def. maa ngi fi Pape Sidi. nga ni Vivita Cosmic Up la. waaw Vivita Cosmic Up. très bien parce que Vivita ci biir Cosmic la nekk. je que dinañ dinañ xam fi Cosmic Up nekk même su fekkee ni que aussi euh, ce serait bien de leur poser la question. Pape ma nuyu la. yow yaa may wax na kan moo trouvé. waaw maa lay wax kan moo ci trouvé. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. Euh, di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp. Euh, di am contentement ci euh, dalal leen. di rafetlu tamit bi su tay bi ñuy waxtaane ku sedd ku ku teel ku tedd ah ku sedd jàmbaar ci yoon wi mu yoonu lislaam waaw oustaz Abdou Aziz Doucouré nag di ko waxtaane moom moom sama sëriñ la mhm. ah dama naan ko yiw tur rafet jikko baax turandoo waaw mu ngi noonu di dalal sa gan yi nga dalal yi nga fi invité tey di ñaan euh, sénégalais yi euh, tey nag dinañ waxtaan bi dinañ ci mën a jëlee xam-xam ñu jëlee ci njëriñ euh, yàlla lépp def lépp lu ñu waxtaanee rek mu sotti ko yu ci Sénégal ak lépp lu ko wër incha allah. Nous sommes avec un des présidents des amicales des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques du Sénégal de l'UCAD monsieur Modou Diagne Degrec. naam Diagne ñaata mburu nga dogoo tey. malheureusement man du may ndog lu bëri. dégg nga naan malheureusement te nga wax bu baax ngay dosé noonu. <laughs> waaw bon neuf mburu lay ndogo. ak ça maa ngi maa ngi siyaare bu baax a baax di euh, rafetlu bu baax a baax invitation bi di jiital ci nuyo bi euh, suma ay mbokk yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal université te ñuy suivre donc muy étudiant muy autorité. ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaan yàlla rek émission bi eh, lépp loo xamante ni day jariñ Sénégal mu bawoo fi jërëjëf. macha allah euh, DG maa ngi lay ziar bu baax yow mais di la yëgal ne am di mu ñëw mii mës naa dem itali ne day togg domada jaawale. fariñ bi ak meew. xoolee ko. day dog de. Euh. maa ngi nuyu ki ma wax loolu. <laughs> te di ko di ko di la bàyyeeg boobu mu ñàkk mën a liir farine et lait mu dem jël meew ma dugal ko ci te dooma daa ba toggul dooma de dooma lee la togg <laughs> <laughs> ruye na soo waxul turam léegi man dinaa wax turam comme ça ñu leer ne lii yaa ko def Italie kooku du père bu xar yow noo xamee ne per bu xar la. per bu xar la. ah noo xamee ne per bu xar la. moo doon booyal moo tax. <laughs> ku dugg ci waañ bi nga ne tuuru ma ñeex bi <laughs> Aliou euh, Diallo président euh, de l'amicale euh, de l'amicale de la faculté de médecine de pharmacie et de dentologie est avec nous aussi sur le plateau monsieur Diallo bienvenue ñu ngi lay ziar. di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ni bokk nañ ak ñoom plateau bi jiital si nuyoo bi aussi ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa diine yi suñuy waajur yi ak ñi nga xam ne mooy étudiants yi ñu fi toogal tey donc di ñaan yàlla rek mu woyofal suñu làmmiñ ba lépp lu nga xam ne tey dinañ ko fi wax mu nekk njëriñal étudiants yi nekk njariñal Sénégalais yëpp donc je vous remercie. Allah euh, ak wat yooyu di def ay ay vagues nu tudd. wave moom la sa waay def. that's wave. non lii watul de daf koy daf koy tracé nii rek. donc xam nga boo nekkee pël moom yor karaw pël. Ah. affaire yi dafay dafay naturel quoi. dafay gën a gaaw wéefuñ ko da nga koo wéef de eh, alaaji kii borosoo ko ndànk sax karaw pël moom. da nga koo boros ba ca rek. yoroo jaasi ba doo bokk. àll <laughs> carrosserie maa ngi lay ziar bu baax euh, euh, seen autozone mm, Alla Gningue merci d'être avec nous sur ce plateau. nous sommes avec euh, si c'était aujourd'hui le football nous sommes avec Jude Bellingham ou Bukayo Saka. wala Harry ci waxtaan sëñ Babacar si nii. Hmm. waa ji def nekkatu ci ay Messi affaire yooyu de. Hmm. Hmm. Messi mooy euh, Tafsir Abdourahman eh, ak. Euh, euh, Messi ak Neymar kii mooy Bellingham. Bellingham <laughs> ci waxtaan sëñ Babacar si. Abdoul Aziz Bellingham maa ngi lay nuyu. <laughs> Pape Sidi maa ngi lay fay. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp waaye di ziar ñu ma bokkal plateau bi yëpp ñaanal leen yiw. di ñaan yàlla buur bi nga xamante ni dara tëwu ko jàmm ak sutura yàlla na ko sotti ci réew mi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu Abdoul Aziz Ndiaye bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene ci guddi gu tedd gi di guddi Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu ñaanal ko moom it yàlla na ko yàlla sàmm waaye pour bañ ko fàtte Pape Sidi ci lu gaaw rek maa ngi ziar bu baax a baax a baax euh, fépp foo xamante ni rek section wu 100 pour cent national Abdoul Aziz Doucouré ma nga fa Euh, section Pout ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu seen président section Thiès section Fass Boy section Tivaouane may sa seen section Richard Toll Tabaski Diop section Mboro section tou Tuuli section Fass Boy seen président nekk daawuda bëggoon naa tudd seen tur yéen nag yéen président yëpp waaye temps bi moo ko mayewul dama xam ne buñ duggee ci waxtaan wi du du du doo dootoo ko mën mais ñoom ñëpp ñu ngi toog di ànd ak ñun di ñu seetaan ak waa Paki Cheikh Faye ak waa Paaki yëpp ñoom it ñu ngi leen di ñaanal daayira sopp sëñ Babacar boobu fa nekk képp kuy soppe Cheikh Seydou Aboubacar si daal yaa ngi toog di xaar eh, guddi gi nga xamante ni mooy guddi sëñ Babacar si radiyallahu anhu ñi teew ak ñi teewul ñi eh, ñi jàkkaarloog ñun ak ñiy dégg ñëpp ku ci ne yàlla na la yàlla fay yiw yàlla na yàlla defal jàmm Muhammad yàlla nañu yàlla defal jàmm oustaz oustaz tey dinañu wax ci sëñ Babacar si loo musta dégg yow yow loo musta dégg yow hmm. tey din ko dégg moom parce am na programme bu nu programmé ci biir émission bi di ngeen ko jot am na ko tudd Aïcha Rasoul li muy commentaire bari na lool. ok may ko may ko benn bon wu trente mille francs. d'accord boo demee page Pape Sidi Fall tout en majuscule sur Facebook Aïcha Rasoul la nga fa moom rek ay bind. capture ko ma dugg man directement si page Facebook am message ko fa coordonné ak moom jox ko capture naa ko. di nga gis moom rek ay commentaire waaw. waaw tey dañuy def benn benn mooy comment bu ëppale lu mu commentaire bu émission bi jeexee kooku dañ koy yónnee fukki junni mais bul dugal sa numéro après dinañ la contacter la jox ñu sa numéro ku ëppale lu commentaire. ñu ngi xoolaale sax pour wax la ñi euh, ñi gën a. nga <laughs> waxuma benn commentaire naan maa ëppale lu ma commentaire di ko di ko collé <laughs> déedéet dañoo wax ku ëpp lu mu commenté on va lui donner cinquante dina éviter arnaqueurs yi nax leen dinañ leen inbox ne la yow yaa gagné de yónneel sa numéro ñu dugalal la xaalis waxal Djibi Seye bokk ci de ci émission bi la bokk <laughs> bokkoo ci. Euh, bi Biba Biba je te bonjour beaucoup. bonjour Pape Sidi salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di leen ziar di nuyu képp ku toog dañu seetaan euh, tey nag émission bi maa ngi ciy jaar di ci nuyu sama yaay taalibe Cheikh boobu si Malick ak sama benn doom bu ñuy wax Maya ba bëgg sëñ Babacar merci. merci beaucoup euh, Koumba Gissé comment noo def <laughs> maa ngi lay nuyu ça va je di la nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ni ñoom laa bokkal plateau bi amaat mbégte. bokkal man la maa la déggul wala da nga waxagul. non est-ce que du yaa ma déggul. amaat mbégte toogaat ci euh, plateau bu yaaññi bi. am mbégte tamit bokk ceek euh, waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene waxtaanee euh, Serigne Babacar si di nuyu également sunu ay invités ainsi que nos chers téléspectateurs. <coughs> j'ai dit et je répète. J'ai dit et je réitère mon propos. La personne qui aura fait le plus de commentaires, fukki junni ne mettez pas votre numéro si vous mettez votre numéro bu ngeen dugalee seen numéro mooy perte ngeen bokkatu leen. bu ngeen commenté woon 700 commentaires sax bokkatu leen. te bu ñu copier collé. waaw bu copier collé mën naa ne mais bu fréquent quoi nga maanaam nga koy taf taf taf taf après loolu dafay mujj yàq ne ni nit ñi bëgg a wax. te am na ñoo xam ne par un un un. non bokkul. Ceddo yow ku la bàyyi nga ne da ngay bokk. waaw ah, damay bokkoo am ni Mignon. waay présidente ziar la Mignon. Abdoul Aziz maa ngi ñëw ci yow defe naa sa micro mu ngi mu ngi mu ngi fonctionné. présidente idi ma woo nii na mu baax. maa war a nuyoo de. nuyool. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si tur si sant. ñu ngi lay fay. présidente parce que kontaan naa ci toogaay bi. di sant yàlla nag bu baax a baax bu ma fekkee si anniversaire sëñ Babacar si. ma war a toog jàkkaarlook ñu tedd ñii ñiy jàng muy dugg sama xol sama xol di neex maa ngi ciy sant yàlla bu ma fekkee loolu te nag dama koy may ñaari nit Pape Sidi fa yu si ay nit lañ yoo xamante ni duna bëgg sëñ Babacar si ba yu sonaleel heure bu ma ko déggee rek ñooñ sama xel day nekk si ñoom muy xalifa mbay dëkk Kassoor ak Mbaye Bordeaux Mbaye Babacar Bordeaux ku ne xam na ko mbay mbay mbay faal Bordeaux ku ma xam xam ne yàgg naa ko nuyu ñaar ñooñu dama leen bëgg-bëgg koo xamante ni vraiment si sëñ Babacar si yéeme na kenn xamul lu mu toll te su ma xuusee jàll jàllaat jàllaat ma jàll dugg seeneen rek nuyu Tafa Seen ak famille tuur waa famille seeneen yow it taalibe sëñ Babacar si la. ma génn foofu may ma loolu rek. dugg ko ñu jàq ja dem xooli Siré Taal. moom it taalibe sëñ Babacar si la mu nuyu ko bu baax a baax génnaat foofu. yaa ngi mel ne GPS nag. <laughs> am di bul fàtte di dugg si te kër góor gi may ko euh, Clara chéri PDG. laay la fa doon tëjee. xam naa fa laa doon tëjee. xam naa ni fa nga jëm. waa léegi garaaw ba mu tëj ko foofu di ko may Clara. Ah, bu door a gay. taalibe sëñ Babacar si. radiyallahu anhu. léegi nag ma bàyyi la nga doxal ne ni ni nga ma ni nga noo joxe parole bi ni mu posé dal ñëpp noppi. Clara da leen yedd. <laughs> ma leen di yedd tey kontaan dama leen ko bind ne leen s'il vous plaît quand Amdy parle que tout le monde se tait. fukki la bëgg de. di nga daaneel kaas yi. fukki Aziz Ndiaye yàlla na yàlla wéral baat bi. Euh, tey jàng yi nga tàmbalee émission bi neex na lool ba yegg ci lool Abdoul Aziz ma bàyyi la nga nuyoonteeg sénégalais yi moom nee na Rokhaya Fall tudd taalibe Serigne Babacar Sy la moo tax mooy woo. waaye rokkee mën mën ma laa wuy boo ma woowee rek yàqal ma. Euh, Pape Pape Pape Sidi. ay Aysatu bi ne fii ci kër gi. waaw Aysatu commercial bu 2STV. mu ni maamam bi ko yar dafa bëggoon sëñ Babacar ba lu mu ñaan ci barke sëñ Babacar mu am mu ni loolu moo tax yónnee na la addiyee ci barke maamam moomu. biñ ci Moustapha après dina la ko jox. Eh, ko wax eh, na wax ñaata la somme bi Moustapha wóorul de. Eh, na la wax ñaata la na la envoyé message. Oh, ab si il faut ay ay mag yu da ngay déglu gis nga sànq ba ngay wax ñëpp na tek tekkaaral. Ah, kii lay jàngal bàyyi rek ma wax. raxu da ngaa sincère yow at xam nañ da ngaa sincère déglu rek may ma lii may ma lii yow at ñëpp xam nañ da ngaa sincère kii gan la fii gan la te damay bañ ko wàññi xaalisam Moustapha wóorul dóorkat la <laughs> ay waay directement laa la wax ki gën a yaru si kër gi ngay waxal nii. mani nit ñi boo mani boo may woo rek may yàqal am ñu may woo di ma yàqal. waaye yow tamit bu yàggee dama lay bloqué de dootoo ma woo ba jot ma ci àdduna taxaw ma lu tax nga may woo man moom gaaw naa bloqué Abdoul Aziz Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw kay jërëjëf jëf Pape Sidi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di ñaan ci réew mi yàlla na yàlla def fi jàmm. ci barke Seydina Muhammad na yàlla nangul ñu suñu koor waaye yàlla na yàlla boole ñu ci soppey Seydina Muhammad amiin di ñaanal mbooloom xalifa général yi ci dëkk bi yëpp waaye di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam di nuyu suñu buntu ci kër Seydil Hadji Malick di Serigne Sidi Ahmed Sy ibnu Seydi Moustapha Jamil bu Serigne Babacar Sy euh, tabaarakallaahu ñoo ngi nuyu Abdoul Aziz Doucouré Al Oustaz di ko bége di sagu Sénégal yépp yàlla na yàlla defal ko jàmm di nuyu waa plateau bi yëpp ku ci nekk rek yal na yàlla defal la jàmm nuyu ñi ma àndal yëpp tabaarakallaahu macha allah nuyu woo ma nuyu ci wàllu actualité Sénégal waaw ñu ngi nuyu suñu waa groupe. waaw sëñ <laughs> Abdou Mignon. na ko ñëpp di wax Serigne Abdou Mignon. Ah, ah Abdou Mignon Serigne Abdou Mignon. <laughs> bu baax. <laughs> raffiné copain Jibi Sey. copain Jibi de raffiné. Eh, xam nga lu ma la wax Serigne Abdou Mignon. Mignon. la mel noonu. dañoo problème abrégé. mais il a tellement raison parce que quand on quitte. quand on fait les plateaux fins on donne la parole qu'aux dames pour les remerciements et toi tu te lèves pour demander la parole. kon da ngay nekk am na mignon au début de l'émission à la fin tu mignonises. ah je dugg na je présente. <laughs> présente. <laughs> ci actualité réew mi laay bëgg a ñëw waxtaan ceeg yéen Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence. président de la république bu Sénégal juróomeel bi demoon na tey ca pale ngir am séance séance de travail ak président Macky Sall ba muy dem nag ànd na ak Ousmane Sonko ce qui est une très belle image très très jolie image et ça a fait le plaisir de tous les Sénégalais je pense des internautes ci ñu gis image bi nga xam ne moom moo dox ci diggante ñetti jëmm yi dafa mel ne waa Pastef dañoo def promotion boo wotelee benn président am ñaari président <laughs> comme Gambien alors nan ngeen xalaat ci loolu vous en pensez quoi comment vous avez trouvé cette rencontre Koumba oui Pape Sidi comment tu trouves la chose bon c'est une très belle image parce que euh, bon on on s'y attendait pas très sincèrement avec tout ce qui s'est passé entre euh, euh, le président Macky Sall ak euh, waa donc on s'y attendait pas jàngat buñ ci am nag mën na bëri parce que euh, tey ku gis image bi di nga xam ne ne politique am na certes mais lu ñu war a jiital mooy humanisme lu ñu dul nangu tey jii ci Sénégal mooy politique di xaajale politique di diviser ah, parce que tey ak lu mu mën ci demee nguur yàlla rek moo dul jeex Pape Sidi lii daf ko firndeel Macky Sall toog na fi pendant douze ans lii xew xew xew na fi euh, tëj nañ Bassirou jomay Faye tëj nañ ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko tëj nañ ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon eh, ci parti au pouvoir bi mais tey mujjantal ba lu ñu gis mooy force ki nga xam ne moo di président Macky Sall buy dem dina recevoir ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye waaye tamit dina ko gunge c'est une leçon leçon boo xam ne war na war na servir ñu bëri mu di ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi euh, tey euh, image bi leçon la ci ñoom jàngat la ci ñoom mooy euh, nañu jiital li nga xam ne moo di intérêt Sénégal ak nu mu mënti metti ak nu mu mënti demee tey fii lay mujjee tey Macky Sall jeexal na Bassirou Diomaye fay muy ñëw jëlaat couronne bi donc nañ ko rafetal euh, et puis euh, jaratul tey jii politique ay nit di ci dee. politique jaratul surtout cette voilà tey politique jaratul ay nit di ci ñàkk seen bakkan politique jaratul ñuy euh, dugal ci Sénégal ci benn situation boo xam ne xamee ko ndax Sénégal réewu teraanga teraangal teraanga la ñu xam jàmm la ñu xam salaam la ñu xam. en fait ñun en tout cas li ñu bëgg di gis mooy suñuy politicien ñuy xeex waaye ci ay idée ci tey nan la ñuy mën a def ba defar réewu Sénégal nan lañu ñu mën a def ba sénégalais bu ci nekk gis boppam bu ñuy xaar ci xeex loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu toog. en tant que politicien ñu toog seen biir di waxtaan di xool nan la ñuy mën a def pour jëmal ñu kanam donc euh, image bi c'est une image boo xamante ne ni ñoom ñëpp war nañ ci mën a jàngat Macky Sall war na ci mën a jàng mais ki nga xam ne moom mooy waaja toog euh, mu di Bassirou Diomaye Faye war na fi mën a jàngat parce que moom tamit bu toogee dina am ñeneen ñoo xamante ni dina dinañ opposé wu ci li nga xam ne moom la fi fas yéene indi donc ak lu mu mën ci demee nañ ko jaarale ci yoon et puis xam ne euh, tôt ou lépp dafay jeex Pape Sidi macha allah Ceddo ab Seydi noo gisee jotaay bi. Euh, bu yàggul dara Côte d'Ivoire. Mm-hmm. ñàkk nañ lu ñett lu mat ñetti junniy bakkan. Mm-hmm. ci diggante Laurent Gbagbo ak Alassane Ouattara. Mm-hmm. nuñ mujjee. saafonte kafre doon ay frère lii ku xam homme politique yi xam ne toujours nii lay mujjee la politique elle est cruelle comme ça noonu la ko yàlla bindee. adversité nag la ci la yem parce que man mosumaa dégg Ousmane Sonko ne Macky sàll sama ennemi la sama noon la malgré les écarts de langage et tout même yenn mots yi mu wax sax du dëgg ci xolam ndax jullit la c'était une adversité il y a eu des débordements mais nii rek lay mujjee tey jii ñi nga xam ne euh, gis nañu image bi xam nañ ne lépp ci biir Sénégal lay xewee te mën naa tàmbalee nu ne waaye ci waxtaan ak joxante loxo ak saafonte rek ci lay mujj léegi nag chaque à chacun d'apprécier ça mhm. par rapport ak ay nitam ak li xew li fi jaar li yàqu ci diggante yi ñaawoo bi waxante yu ñaaw yi yëpp finalement au finish jàmm rek jàmm rek waaw aujourd'hui ils sont arrivés au pouvoir mm. waaw le temps nous dira pour le waaw ban jàngat nga ci am raxu yéen ñi seetaan aussi su ngeen ci amee xalaat vous pouvez l'écrire en commentaire parce que mën nañ ci wax lu bëree bëri. mais man ñetti mbir laa ciy jàng. dafa am avant les élections et pendant la et après. Mhm. c'est-à-dire le président Macky Sall avant élections yi da ñaan jàmm moo tax d'ailleurs bu génnee Sonko. Mhm. ak euh, président jomay Macky lii moom lay gën a bénéficier wu. parce que c'est son image qu'il est en train de montrer au monde entier que ne moom il voulait l'apaisement pour ce pays le fait que mu accueillir leen nii mu ngi wane ne moom jàmm la bëgg te bëgg na dem bàyyi dëkk bi ci jàmm quand on voit ça xam nañ ne président Macky ak jommay Sonko ñu ngi ci ay termes yu baax après bi mooy il montre à tous les Sénégalais jamono ju ñu toll dañu war a booloo doon benn ndax gis nañ ne parti benn bokk yaakaar ak APR en ce moment y a la tension entre et là ça montre que ne il y a plus de tension. la tension c'est pas mais lii da koy lii da koy dëggal ne jàmm rek moo fi xëj. parce que même gis naa quelques euh, gars yu génn ci médias yi def interview même booy dégg seen wax fam benn goût de amer bu ñuy waxee mais là le président Macky Sall est en train de dire li am am na ba pare. nañu booloo liggéey réew mi man dama jàpp ne après bi mooy loolu quand le président Diomaye bu toogee ba yor réew mi amatuñu temps di blabla c'est le temps de travail nañu booloo doon benn liggéey Sénégal mhm. man daal loolu laa jàng mais président Macky Sall moo ci gën a am visibilité sur le plan national ak sur le plan international mooy wane ne bàyyi na réew mi ci jàmm ndax tension bëri woon na bëri woon na ay coow ay xeex nit ñi di ko mere ak yëpp mais la tey mën na génn fu ko neex ci àdduna dañuy naan ah il a quand même ce pays dans des bonnes conditions mooy jàmm mhm. loolu amul prix la paix mhm. il y a quelqu'un il y un internaute qui a dit euh, les images euh, sont extrêmement euh, extraordinaires c'est une très belle image mais quand on regarde euh, sur le rétroviseur on se dit tout ça pour ça. Pour ça. Absolument. C'est ce qu'a écrit un certain Lucho Gonzalez, Lucho Gonzalez. Donc vous dites euh, pour vous dire que vos messages on les reçoit. Pape Sidi xam nga man Sophia mooy wax après yow. waaw nga ñu jeexal point bi ah. Euh, c'est une belle ñu gisee image bi ku ci nekk da ngaa tiit waaye ku ci nekk danga nga am satisfaction ci euh, booloo bi nga xam ni booloo nañ ko ndax metti woon na torop waaye nag gis nga politique moo demee nii. xëy na dinañu xiiroo dinañu ŋaayoo waaye mujjantal ma jàmm lay indi ndax euh, gis nañ fi image euh, euh, archive yi nga xam ni génne nañ ko fi ci diggante passation de service Senghor jàpp Abdou Diouf Abdou juuf Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade Macky Sall ab Macky Sall président Diomaye Faye te dafay wane ni rek wax dëgg yàlla nekk na image boo xam ni c'est à magnifier mais également jàngat bi ñu ci am rek may loo mënti ànd ak xët-xët del demeek sa xel ndax xëy na ci li nga xam ne moom mooy mujjantal gi mooy jàmm te c'est dans tous les domaines que ça soit dans le domaine du showbiz showbiz ni lay demee yaa ngi gis ñaari artistes yoo xam ni dañuy xeexuloo ŋaayoo seen seen seen seen fans yi ku ne di génn di laayvante te après fa ñuy mujjee dangay ngay jékki-jékki gis leen ñu invitante di reerandoo lii rek lay indi euh, ci li nga xam ne moom mooy politique bi ndax euh, dara dara saxul te dara dara dara xëyul Euh, sotti moo tax wax dëgg yàlla euh, opposition jaayante nañu ba am lu ñu bëgg te lii rek lañu ci bëggoon léegi nag li ci des nag moom comme jàmm gis nañ ko ci image yi mooy nañu xaw a effacé yu bëri te jéem a songu li nga xam ne moom mooy liggéey bi defe naa dafa am solo te euh, ñu moytu di yeewaat yi nga xam ne wax dëgg yàlla passé na et une forte pensée aux morts yi nga xam ni rey nañ seen bopp ngir jàmm ji am vraiment. président vous voulez ajouter quelque chose. ci beneen. image yoo xamante ni am naa ñoo xamante ni dinañ mënuñu ñëw ba fii euh, te duñu ci wax. Mhm. ndax euh, c'est des images qui embellissent le Sénégal quoi que l'on puisse que aussi exemple la pour ñun jeunesse bi mënuñu ñëw ba fii gën fi doon ndaw te duñ ci wax dafa doon loo xamante ni aussi dina yóbbuwaat Afrique feneen ngir ñu xoolee ñun leneen transformation majeure li ma ci jàngaat aussi dafa bokk ci dafa am benn koo xamante ni sama yaay la woon université ba léegi. yàlla dogal na jël na retraite ma koy nuyu au passage muy taalibe sëñ Babacar si muy madame Thiam dafa am benn conseil bu ma doon jox mu ni ma jaañ booy xuloo xulool ndànk ndax booy juboo booy jàpp it jàppal ndànk ndax booy xuloo donc lii c'est une démarche hautement républicain de la part du président sortant parce que bu ko neexoon tamit mu toog ba nga xamante ni passation de service dafa jot mhm. ñu joxante ay kayit ku mhm. nekk dem sa yoon mhm. mais boo xoolee dugal na ko ci ay bërëb ni ko fii mooy fii mhm. fii lii la fii lii la ñuy mhm. def mhm. donc la je pense que commentaire bi nga liir léegi tout ça pour ça donc Sénégal dafa toll foo xamante ni lu ci baree bari dañ ko war a dépasser dafa am loo xamante ni dañ ko war a dépassionné période électorale bu jotee mën nañoo def li ñu war a def ki war a opposé mu opposé wu ki war a gouverner tamit mu am yërmande. ci ñi muy gouverner. ndax boo xoolee aussi ku ci nekk am nga ci part de responsabilité pour les deux parties muy opposant muy parti. bi nga xamante ni moo nekkoon au pouvoir. donc nañu xalaataat jeunesse bi nañu xalaataat population bi nañu am ci ñoom yërmande image bi daal rafetlu nañ ko dañuy ñaan yàlla mu doon dëgg te it euh, Sénégal jaare fi tàbbi ci ay. avancement ba faw 88 628 17 27 88 676 08 08 ñu woote léegi ginnaaw analyse u Amdy voilà <coughs> Pape Sidi sa waay daanalee laay laay démarrer laay démarrer parce que li ma bëggoon wax daanaka wax na ko léegi man beneen jàngat rek laa ci amat boo xamante ni ngir yàlla war a suri famille yi nga xamante ni dañ doon rayante seen biir ndax ñaar ñaar ndax ñaari jëm mii ndax image bi bu ñu ko gisee war nañ mën a delloo siwaat seen xel famille yi nekk ci dëkk bi alentour bi. ñi ci doon wax wax ju ñaaw wax ji doon wax ju ñaaw. li nga xamante ni dañ soo nekkoon ci biir kër yi. manque de respect sa mag manque de respect sa ndijaay manque de respect sa papa manque de respect sa yaay. manque de respect sa sa sa sa petite yooyu yëpp image bi boo ko gisee war ngeen mën a resoulé waat yéen ngeen delluwaat ginnaaw ak famille bi ngeen ànd juboo nax lii man foofu laay waxee beneen bi si tegu mooy. na la la paix mooy lu yooyee ngir yàlla war a suri na ñëpp am jàmm parce que Pape bu ñu amee jàmm ñun dinañ am jàmm ba mën a toog ci plateau yi mu leen bëgg ndax bu ñu amul jàmm duñu mën a toog ci plateau yi asalaam. macha allah am na benn booy bu ma gis mu ne yàlla daal mooy Karim. Mhm. Oumécor prison. nara korité nara korité palais. <laughs> yàlla korité sax ah. yàlla nag yàlla lii moom yëfu yàlla la. waaye dafa am loo xam ne diggante président Macky Sall mii ak baayam ju mag ja di Daara Wade Ndiak Fara Wade Ndiak Abdoulaye Wade. Hmm. dañoo joxante woon loxo nii. waaw. ba ñu demee it ñun ñëpp gis ne image bi c'est une très belle image. waaw Ceddo c'est ça non. Mhm. ñëpp rafetlu ko. il a fallu intervention wu Serigne Mountakha bi ñuy ubbi Massalikul naan pour ñu am le protocole de Massalikul Jinaan mhm. pour mu am cessez le parce que. am na mbir yoo xam ne mu ngi doon daw ci suuf ay ruumandaat mm-hmm. ah. est-ce que pardonner veut dire oublier oublier tout ce qui s'est fait mm-hmm. ak injustice yi sénégalais yi dund yëpp mm-hmm. c'est euh, dama damay ñaanal président Macky Sall yàlla na ko yàlla may fu mu jublu yàlla yiw yàlla jublu fa ndax ku bëgg Sénégal la c'est un fin patriote def na kéem kattanam waaye mënuloon a nekk fépp xalangu dajul suuf am na ay nit ñoo xam ne dénkoon na leen ay mbir ñu doxale ci doxalin waw mënoon naa indi gàkk-gàkk ci bilan am bilan matériel am moom franchement rien à dire il a fait des évolutions extrêmement grandes mhm. Bassirou Diomaye Faye yàlla na ko yàlla dimbale yaakaaram bañ yaakaaru ndaw ñii ci réew mi bañ a tas ndax yaakaar gi foor na lool waaw foofu noonu kaa ma la benn affaire bu ndaw di nga foofu noonu nit ñi yaakaar nañ ko lool xam lu tax mu garaaw laaj ma lu tax mu garaaw mhm. ma garaaw parce que lii ma lay woon ne jeunes yi war ngeen gëm seen bopp mhm. jeunes encore na ngeen gëmaat seen bopp kenn xëyul rek dara sotti yàlla waxul kenn dara. lépp mën a ne de. bu leen gëm seen bopp gëm leen bu leen bu kenn gëmloo ni bitim réew mooy am. fii mun nga fi toog tekki. Mhm. fii mun nga fi toog jëriñu. fii mun nga fi toog jëriñ sa askan. fii mun nga fi toog dimbili sa bopp. dimbali say waajur waaw mën nga nekk ku nekk tamit. waaw te bu it mën nga nekk ku ne. Mhm. ba président ay jëwul ba mën nga doon sax am soopee soopee. <laughs> Mhm. man bu ñu ma ko waxee man ba déwén. COP. <laughs> COP mun nga ko am doon président nee nañu. ki nga yaakaaroon na la ko booy di wooyu wéef COP. waaw gaaw wéef un pour cent Pape Sidi man li ma ciy yokk mooy. Euh, deux. kan la ñuy woowee mun maa wane nii parce que bi bii neuf baaraam la bii kii xam nga. lom de euh. benn kucc. am na man nga saagi télé. saagaw ma la de benn kucc laa la wax ah, lii lii. Kumba <laughs> vraiment merci lu ma ci lu ma ci yokk mooy euh, en fait euh, jeunesse bi dañu war a comprendre que euh, lii nekk di xew ni yëpp ci politique bi ñun ñu koy gis di ko dund parfois mën nañ wax ne coup de bluff la gis nga politiciens yi ñuy gis ñuy xiiroo di ŋaayoo di toog ci plateau bi di yëkkante keteme tey ñoom ñooy tuddante doom bu reer jotee ñoom ñooy reerandoo hmm? eh, ah, waaw am na fi donc ñun bu ñu nangu ñu ber nañu surtout eh. jeunesse bi nga xam ne tey jii eh, ñoo doon rayante tey malheureusement lu ñu fi ñàkk ci ay bakkan kenn xamu ko ñu ko woon yàlla mais ñoom ñoo war a toog xalaat gis li nga xamante ne nii moo xew parce que eh, sànq Ceddo wax na ko image bi warul surprendre ñu bëri parce que gis nañu fi ay politiciens yoo xam ne lu nekk la ñuy yekkante <laughs> ku ci mën a jàpp sa morom def ko lu bon rek di nga ko ko def mais bu guddi jotee ñoom ñooy waxtaan ñooy wootante téléphone ñooy jëlandoo décision tey jii li nga xam ne xew na ba Jomaay génn tey yàlla fal ko mu nekk président ñun ñëpp nii lañ ko gisandoowee xamuñu fan la jaar. Mhm. xamuñu fan la jaar ak président ci Sall. Mhm. muy sonk muy keneen ak keneen. donc jeunesse bi ci boppam ñoo war a muus xam ne politique am na dëgg la. mais tey jii jeu la. Mhm. tey jii lan la ñu war a basé wu ngir mën a. <laughs> Euh, ne lii ak lii war nañ ko bañ. mooy politiciens yi ñoom ñu toog tey jii ñan nga gis. am na ci opposants yu bëri duñ nangu toog ak parti au pouvoir waxtaan ak ñoom def ak ñoom débat. tey ñun loolu la ñu war a toog xeex mooy ñi nga xam ne tey ñooy jiite suñu réew ak ñi nga xam ne dañoo toog di opposé wu ñuy toog di waxtaan ci seen biir ñuy xam ne ñii kat lii la ñu am comme mbëbët muy opposition muy pouvoir en fait guerre d'idées la ñu soxla ci ñoom. tey lii bu ñu ko defee Sénégal dina jëm kanam lii bu ko defee Sénégalais bi dina ci gis boppam lii bu ñu ko defee jeunesse bi nga xam ne moom la gën a concerné tey jii dina ci gis boppam mais pas loo xamante ne nii dafay salir image yu Sénégal parce que image yu Sonko ak président Macky Sall bi c'est très joli mais du lu du loo xamante ne nii war na bett ñu bëri boo xamee histoire politique Sénégal nu muy demee parce que ñoom ñëpp fii la ñuy mujjee Pape Sidi. merci beaucoup. et puis jeunesse bi euh, yàlla yàlla may benn korité ci réew mi. Euh, ndax euh, suñ mbokk quartier ni ñoom seen carême bi samedi lay jeex vendredi mooy vendredi bu mujj vendredi sans après samedi bi moom mooy nekk quarantième jour bi moom moo tax ñu ne au 88 628 17 27 88 676 08 08 foofu la ñuy jaar ngir jox leen ay suukaru koor tey nag comme Serigne Babacar Sy la ñuy waxtaane barki Serigne Babacar Sy waaye yaay yow ak sama tonton ak grand frère yi nga xam ne dañuy xëy rek jubal daw dépense di xool lu xale yi dundee ci kër gi xale yi bu ñu demee école am na lu ñuy def de te ñii fi nekk ku ci nekk am na ay mbir yu mu xamal xale élèves yi les dérives dans les écoles on va en parler juste après su ma jëlee kenn ku nekk ci téléphone bi au 88 628 17 27 88 676 08 08 ca doonoo organisé ba taabal di nekk fii ba ndox ma nekk foofu sori na de. day def ndox yow sa ndox a ngi nii. sama ndox a ngi nii déedéet kii tàmbali na bosam. bismillah. ma ni ñi nekk ci internet bi tey commenté maa ngi leen di gis de <laughs> am na ku tudd Simon fay moom pak jot na lay bind rek dem joora pak jot na nga lax tàmbali na tey suba ak ginnaaw suba samedi la nga bi yem ku la wax ne la dimanche naa la yàkkal ngalax lax da lay nax ku am mbokk quartier na ko woo léegi léegi mbaa nga woote ci tele bi la minute c'est euh, cent francs et euh, boo amee cent mille jox ko cinquante mille wala nga jox ko vingt cinq mille wala nga jox ko trente mille ne ko maa jàpp loolu ci suukar si ay ca ay ca ay ca 88 628 17 27 Françoise euh, Françoise rek nga ah. xam ci quartier waaw François Françoise Françoise waaw ak 88 628 17 27 88 676 08 08 si vous voulez nous appeler vous pouvez le faire maintenant avant de débattre de ce, de ce sujet qui est les dérives dans les écoles avec les étudiants mbiri carte xaalis yi mbiri naan sàngara yeeg mbiri xeeti dorog yi xew ay suus ay jorox école yaa ngi toj mm-hmm. réveillez-vous surveillez les enfants mais attends comment on va surveiller les enfants ça aussi c'est une autre question ma jël kenn ci téléphone bi balaa may dem su fekkee baax na ceeb doo ngi wër maafe woo lu xew ci école yi yéen ñii seetaan bu ngeen amee commentaire yi ngeen wax ma s'il vous yéen ñii seetaan ci télé bi di commentaire bu ngeen xamee lu xew ci école yi te ñun ñii toog fii xamuñ ko ngeen wax ñu lan moo xew ci école yi ah ma jël kii asalaamaaleykum allo allo alo alo salaamaaleykum. maaleykum salaam grand nanga def. waaw Pape Sidi ça va. noo tudd. man maa ngi tudd Xaadim. Xaadim nan. Xaadim Cuun. Xaadim Cuun. yaa ngi ci jàmm. Cuun Mambam bi vous nous appelez d'où Xaadim. ñoon ñoo ngi lay wootee Touba. Touba Xaadim Cuun. oui. Xaadim woote woon bërgi dem ba mu may la cent cinquante mille xaw ma cinquante mille. allo. ma ni Xaadim yow woote woon ba ma may fi cent waaw waaw exactement mais nag euh, maire nee na waa dafa bëgg si xéwali quoi. ah nag moom lan la tax. ah dugg na ba pare dugg na am wërsëg la rek. dugg na allo. Xaadim yow ma ni nooy def ba dugg te nit ñi di am problème mu dugg. mënoon ngaa rasu rek waaye Pape Sidi ci jàppaleel maire waaye maire dafa bëgg si xéwali waaye. waaw man yow nooy def ba dugg te nit ñi am problème mu dugg Xaadim ne ko may Xaadim. man may Xaadim comme ni ko Jadda waxee. waaw góor. nekkoon passe la mère rek waxtaan ak mère. <laughs> waaw passe ma mère bi passe ma mère bi. Oh, je mère actuellement nii. ah moom wax naa ko wax naa ko serveur bi waa ci suuf sax waa bi ma jëlee. Ah, ah, ah, mais dama ko envoyé woon nag doon ko ko wax naan démb damaa woote woon deux heures ñu ramee may cinquante mille. ah léegi xaadim doo ma passe mère bi te mère bee bëgg cinquante mille. waaw. yàlla xam na ne mère nekk fi mère nekk fi nekkoon kay ma jox la ko. waaw yow mère nu mu fay ñàkk a nekkee ba pare te yow nga ni jox ma léegi. léegi na raccroche pas nga jox ñu numéro maire te bu ñu jox boo ñu ko joxee dinañ xam ndax maire la wala du maire parce que dinañ ko woo xaadim munoo nekk fii yow kese di gañe ñeneen ni duñ gañe xaadim moo war a gañe non Pape Sidi eh, eh, allo waaw sëñ xaadim bàyyil yaa war a gañe <laughs> man maa war a jëndaat eh, man man maa si jëndaat sama crédit de moo tax waaw moo jënd ka yaayam lañ bëgg may oh, yaa gagné cinquante mille hier amul benn loi bu koy tere. amul benn loi bu koy tere. ñaari mandat nul ne peut faire plus mi ngi ci mi ngi ci deuxième mandat bi. on va on va ko jox sa yaay boo ko lekkee si riba saaku deret. yàlla la mu rees. yàlla bu mu rees. oui. man Khadim yow léegi yow wax ma nan ngay def ba dugg te nit ñi di am problème mu dugg. secret bi daal bëgg nañ ko maam Khadim ne ko ne ko ne ko salimtu min allah daay turan maal tijaa. waaw ah, dëgg la. li rabbi wa baabullahi lam yakku murtaja buntu yëpp ay ubbeeku. dëgg la boo fëgg rek dañ ko ubbi. tan tan zalimtu min al axdaar rek. vous avez envoyé devis. c'est bon Khadim de jot na xaalis ba boole ko coupé ma. xaarul sax may xaadim mi nu mu def ba dugg yéen. mooy mooy borom dëkk bi. bàyyi ko mu dugg ne bàjjanam ba wooteel. Mm-hmm. barki yàlla suba boo wootee du ma la. suba boo fi yàgg lool te ànd ak wér. xaadim mi ku miin bi la. wax na dëgg daa farlu. waaye yow kii lu ko dal. waaw ku miin yoon soo lekkee sama cinquante mille sa joxoo ko sa yaay. riba saaku deret. yàlla bu mu rek. yàlla nga am biir buy daw trois jours. foo dem mu dàq la. li de kenn mësu la woo def ci serveur bi moom. waaye yow li kii dafa maa tooñ waay. ah yow man maa ngi bëggoon a may sa mbokk quartier yi lu ñu jëndee suukaru ngalax xaadim di dugg rek <laughs> ah xaadim mi daal métti na moo dalaa sox rek yow kay xaadim sox sax maire bi doon wax naan jarul bon méegam nan ko yónnee xaalis mhm. nga dëgg waaw kay 88 628 17 27 88 676. ça prouve que c'est pas de l'arnaque déjà. 08 08 <laughs> Aïda Malick Fall mii ci Facebook bi wax leen ko ne ko numéro yi dañuy aay ñu bind ko parce que arnaqueurs yi dañuy woo après numéro yi nekk ci commentaire yi. nan leen ay man la Pape Sidi Fall 2STV maa la woo pour yónnee la xaalis léegi danga nga may jox c'est des arnaqueurs il faut pas mettre vos numéros. mais Ndeye Ndiaye li muy commentaire tam bari na de. nday Ndiaye. waaw Facebook. Badou Banaya. ah est-ce que du moom. <laughs> <laughs> mën naa nekk Banaya de. Euh, léegi waa nu ngeen dundee mbir école yi <laughs> Moustapha ndax dafay ajowoo ñu dem xool élément ñëwaat wala dañuy dugg ci waxtaan wi directement waa yéen ñi ma ci tànn du ngeen ma ci dimbale qu'est-ce qui se passe dans les écoles au Sénégal jusqu'à ce qu'on parle de dérive qui des informations bii baa moom affaire u kaa rek la tam bii baa kaama école yi daal li ñu ci mën a xam mooy élèves yi léegi dañuy utiliser lépp loo xam ne du lu dul yoon la ay genre pof ay sàngara cent ay du n'importe quoi la ñuy def ci école yi te sama xalaat bu gàtt mooy ñun parents d'élèves yi li ñu gën a jooy mooy ñoom ñi nekk ci école bi ñu mën a dimbali. parce que sooy xool tey xale yëpp journée continue la ñuy def. yàlla na nekk kercen. bi ba baal ma de la yàlla bu la dee dog alo allo oui. grand na def. ça va Pa Sidi. c'est comment le nom. Moustapha. Moussa waay waay waay. waay waay kañ la ma kañ la ma kañ la ma. Bernard di woo wala Pierre Charles. Moustapha yow kan moo kan moo kii nii kan moo la kan moo la yàkkal nga la ah am na ñetti xarit yu baax de kan la am na Antoine Antoine am na Joséphine Joséphine am na Nathalie ku një déglu leen déglu leen ku njëkk gi nu mu tudd Antoine ki ci mujj nu mu tudd Nathalie ki ci digg bi nu mu tudd Joséphine Antoine dafa dëggu ndax ñooy ànd. Antoine Nathalie Joséphine fu ñu dëkk. yoo ngi dëkk euh, Kédougou lañ dëkk. Antoine Nathalie Joséphine. sa digganteeg yàlla Moustapha. waaw sama digganteeg yàlla ñaata kilomètre <laughs> sa digganteeg yàlla amul sax zéro centimètre zéro millimètre amul. wala wala ñaata hectare. yàllaa la gën a jege sa buumu xol doom. <laughs> waaw boo xamoon fa yàlla ne doo ko doo ko laaj doo ko séntu fu sori asamaan pour gis ko. kii kii kii xanaa du déglu Ibou Sakho ah ba <laughs> waaye Moustapha mi foo dëkk. boo xamoon sa digganteeg yàlla doo wax ne euh, ñaata kilomètre la wala ñaata. Moustapha cinquante mille tout suite. vérifie est-ce que jot nga cinquante mille yi école nga ni lan nga ci wax yow lu ci ay waay école yi kon dafa am ay bagages yooyu. bien sûr am na je ma pose des questions ah. waaw Sidi. waaw Moustapha. jot naa ko. ñaata nga jot. cinquante. na nga fexe ba euh, Joséphine ak Antoine ak keneen ka ca topp nu mu tuddati. Antoine Joséphine ak Nathalie amul benn problème. Nathalie Nathalie musoo wax Nathalie. dégg Nathalie la waxoon. Nathalie la. Antoine Joséphine ak Nathalie. si waaw merci beaucoup Antoine Joséphine ak ñaari góor ak benn jigéen. merci beaucoup eh, Moustapha eh, <laughs> merci beaucoup Moustapha <laughs> merci beaucoup. <laughs> allez on gis ngeen dañuy waxtaan ba ci digg bi rek gars yi dugalal ma donc continuer les appels au 88 628 17 27 88 bi baa yow nga ni école yi lu fa am. école yi li fa am mooy booy dañu utiliser ay drogue ay puff waa ay puff cigarette électrique puff la puff la la ñuy wax puff waa c'est ça te dafay nekk melokaan boo xam ne tey parents yu bëri duñ ko xam parce que façon forme bu nekk lay nekk dañ koy def mu rafet moo tax il est préférable comme li may wax li à chaque fois ngay fouetter sa saagu doom et que comme li may wax li ñu nekk ci école bi ñoo ñu mën a dimbale ñun parents d'élèves yi parce que sooy xool tey moitié xale yëpp journée continue la ñuy def ñoom ñooy gën a nekk ak xale yi dañuy xëy 7 heures ba quinze 17 euh, heures la ñuy wàcc mhm. te des fois man am na hôpital boo xam ne bugguma tudd tur bi ñun jigéen ñi dañ fay dem lu bëri te soo demee pourtant xale yu ndaw yi ñoo fay gën a fees pour def planning ah si élèves yi ñoo fay gën a fees pour def planning mhm. si yow war nga xam hôpital si si ñoo fay fees pour def planning du maître yeeg ñi yor responsabilité école yi pour man ñoo ñu ñu mën a dimbali ñoo ñu gën a mën a xam ñu gën a ñooy gën a yendoog suñuy doom ñun dañuy def ñu ngi def lu ñu war nag mais neuf mois yi li nga nekk ak sa doom li muy nekka ak prof bi moo ko ëpp te àndandoo ak fréquentation bu bon dala ci dalay yóbbu parce que mun nga yar sa doom ci kër gi mu dem fréquente koo xam ne mooy loolu te xale dafa gaaw a jël jikko comprendre nga mm-hmm. xale dafa gaaw a jël jikko mm-hmm. loolu laa euh, loolu laa doon wax et que. il y a des étudiants sur le plateau ah peut-être ils pourront en attester mais euh, Sophia. joxal après nga jox nante waaw man je pense que l'utilisation de l'internet bi monsieur Diallo oui. man je pense que l'utilisation de l'internet a beaucoup impacté sur les euh, sur les dérives notées dans le milieu scolaire ndax xëy na tey euh, yow mi parent bi doo xam sa doom lan lay dund ci école ba benn ki nga xam ni moo war a jox éducation jàngal sa doom muy professeur bi. bu ñu demee ba élèves yi faaleetuñu amuñu kersa yi xam kii mooy seen enseignant enseignement enseignant ba jox ko respect loolu ça devient un problème ndax xëy na euh, école bi jaxasoo na de telle sorte que tey lu bëri fa lay xew ci utilisation de drogue bi mhm. ci pouf électrique yi mhm. euh, professeur bi doxaan élève professeur bi bu doxaanee tey astu astu xam ne professeur bi day doxaan euh, copinam tey foofu respect du fa am ndax day jàpp ni xëy na mhm. professeur bi ko waroon enseigner bu demee bay dugg ci vie privée euh, sentimentale kooku amul ku lay mën a respecté ci biir classe bi. bi aussi nit la waaw mais nit la d'accord naa nit la mais peut-être professeur bi mën naa nëbb relation ak élève am ndax ku nekk da nga yor xol di bëgg. Mhm. loolu je peux être d'accord mais tey am na loo xam ne tey boo ko fësalee amul élève bu lay respecté ci biir classe beneen bis topp euh, dañuy àndandoo di fréquentante yi ngay gis ci bëri. xale yi bu ñu regroupé woo ci appartement yi lu koy indi dañ kumpa maanaam kat bi baa day ñëw ne Sofia kaañu dem tey apartement ba am na lu fay xew. Mm-hmm. te yu ci bëri ñu ngi koy utiliser mu nekk ay drogue yow mi parent bi mën nga toog ak ñoom sax doo ko xam. muy ballon bi mu yu ñuy foowee yoo xam ne tey jii ballon ballon mooy dorog bi balon bi sa sa nu mu tudd achiche. non non ballon ballon bi ballon mooy drogue bi en fait. en fait mën nga toog ak man nii Pape Sidi ma di mm-hmm. ko ëf maa ngi drogue bi maa ngi drogué wu mais xamoon ni maa ngi drogué wu te yu ci bëri yi ngay découvrir ci école yi nga koy découvrir parce que tey damay ñëw ne kii am na lu xew sàngara sàngara yanga yamba ak sàngara xale yi doon ko romb non xale yi léegi dafa ci drogue bu civilisé bi de ak ak kii électrique bi bu bu oyof bi nga xam ne day mel ni euh, pipette ngay jël di ci foo di tox en fait tu vois nii nga jàpp ni euh, euh, lu ñuy lu ñuy foowee la mais lu leen i gaañ la li leen i gàllankoor la moom la ñuy def tey te tey euh, raxu mën naa ñëw raxu il est innocent moom du xam dara xëy na waa këram yar nañ ko de telle sorte que yooyu yëpp du ci dugg mhm. waaye man mi nga xam ne man maay masañ bu ma ñëwee dama koy influencer kañ dem ci appart léegi xale yi appartement lañ jël ay ay VIP lañu dañu jël seen appartement dem <coughs> euh, ànd ak seen ay copines. mais gars yu ñu ngi koy dëggal ci commentaire yi ah nee ngay wax dëgg la. non yu bëri fa lay xewee ci ñu baal ma ci kàddu gi lu lomotif yi fa lay xewee euh, ci ci ci drogue bi nga xam ni drogue yu bees yu ci bëri découverte ci xale yi lay xewee te Pape li ci gën a graaw moins de 15 ans wala. à partir de quinze ans jëm kaw ñoo koy utiliser te tey xale yi découvrir nañ ay drogue yoo xam ne mag ñi sax xamuñu ko looloo ci gën a graaw te dañuy jël garabu nelaw sax dañ ciy drogué dañ ci drogué wu ak suus bi am na garabu nelaw yoo xam ne tey tey bu fekkee da ñëw war a suus tey da ngay suus di nelaw di ñàkk ak lu ne nga dugg ci te say parents ñu xam ni yow mi en fait mën nga ko utiliser te nit du xam ne yaa ngi koy utiliser sa di il faut nga am benn melokaan boo xam ne ku la jege di ko utiliser rek moo ko mën a xam da ngay perturber bu la caala xiree moo tax bu ñuy suus ñoom ñëpp dañuy isolé wu dañuy dem làqatu ju fenn def ko ba seen degré wàcc ñu doog a ñëwaat nag ci seen parents suus suus waaw di takk ay lunettes noir fumé noir guddi di sol loo xam ne période tàngaay lay doon boo déggee soxna yi di wax dama naan elles sont tellement branchées mhm. que man je deviens un innocent xam nga am na daal dafa doy waar mhm. parce que man ba may xale xalaatuma xam nga da ngay nekk xale doon foo jël ay këyit ak di ko taal di di test ma gis copain yi di ko def mm-hmm. mais man je n'osais même pas parce que xam naa ne samay waajur am na loo xam ne musuñu xalaat ne war naa ko mën def ci kaw suuf waaw mais parce que yow boobu say waajur ñu ngi la doon surveiller de près te tey waajur yu ci bëri talatuñu ubbi seen saagu doom di xool lu fa nekk waaw di xool lu man parce que xale yi léegi seen néeg la ñuy yor ci biir néeg bi la ñuy defee man mes parents musuñu xool sama sac am naa doom bu jigéen bu am vingt ans li ngeen di wax ni mënu ko xalaat moo tax souvent éducation. éducation c'est important dès le début. à la base éducation mais mën nga mën nga éduquer sa doom attention. mën nga éduquer sa doom. mbedd bi yàqal la ko. mais comment. sa à dire dafa sa emporté. à l'influence dañ lay influence parce que école yu ci bëri yi dal seen doom yi. en fait mën nañ dem ba ci biir sax yow mi mu dal mën nga ko rëccu. parce que da ngay gis Khadija wala Biba ñëw ne euh, mi ngi def lii mu ne la sa lii du dara ñamal rek. Mhm. nga ñam mu neex mu ne la ayca. nañ Vincent Mendy veut intervenir sur le ngala est-ce que vous pouvez me l'appeler au téléphone s'il vous ne xaaral ma def lii pour mën a tolloog ñoom. ba pare loolu loolu Pape Sidi mooy waral tey gis. gars yi di overdose parce que en fait utilisation drogue bi ba ñu nekkee xale lañ koy tàmm di làqatu di def ba ba ñu màggee bu ñu ci jëlee benn quantité da ngay overdose mais nag en gros pour man xam nga lan moo indi loolu yëpp mm. xale yi tey suñu demee bay am xaalis pour trap ak di dem jël ay appartement pour man nañ ma baal ci kàddu bi mais pour man pari foot bi la parce que foofu la ñuy jàpp lu ñu jàpp au lieu ñu xalaat ci leneen mais lu dul blow ni ñu koy waxee blow rek lañ ciy xalaat xale tey ku ci yor benn weccet xalaatoo ne bàyyi ma dimbali sama yaay lii wala dara yaa ngi xalaat ni ngay jëndee drogue yaa ngi xalaat ni ngay jéem a iriwee benn xale yaa ngi jéem xool ni ngay jëlee appartement yaa ngi jëm xool ni ngay defee lu bon bu dul pari bi sax yaa gis xale yoo xam ne dañuy dem ba day nekk drogue ci ñoom bu ñu sàccul seen parent wala sàcc seen oru parent sàccantu la ñuy commencé dañuy sàccantu dem jaay pour mën a am utilisation en fait drogue dafa bokk li muy li muy wax noonu Pape Sidi excusez-moi euh, ah. bi maag ceddoog waajee ci xam alors moom il est choqué comme d'habitude ñëwal man je trouve que dafa dafa wax benn moo boo xamante ni tey mën nañ ni moom mooy moo clé bi mooy euh, l'avènement des réseaux sociaux parce que bu njëkk ñun bi ñu daan nekk ana du réseaux sociaux bi ma nekk ma bien sûr mais euh, Pape li ñu naan réseaux ah, sociaux couvert la euh, kii la cin bu amul couvert la rek ku ci nekk yow ak li la ci intéressé ak ku ci hmm. nekk sa centre d'intérêt la lay proposer à chaque fois ci sa ay page Euh, bu njëkk booy seet ñun suñu génération bu njëkk nit ñi dinañ fi nekk di tuux dinañ dem ay house party mm-hmm. mais amuñu woon accès wala xamuñu woon ni que lii nii existé na xamuñu woon ni que lii ak lii ak lii existé na et lii nii lay def si yaram parce que tey jii nii euh, réseaux sociaux am na foo xamante ni yeggu fa woon ñun suñu suñu suñu faculté wala li ñu doon jàng wala li ñu doon xam dafa amoon euh, limite Mm-hmm. yeggul woon tey fi nga xamante ni foofu lañ toll mooy xale bu jigéen wala xale bu góor bi mën a tëju ci néegam yor smartphone am di découvrir ay affaires yoo xamante ni tey sava va au-delà de de âge am ça mm-hmm. au-delà de tout ñun bu njëkk li ñuy xam xëy na euh, day yam day yam ci ci ci suñu âge mm-hmm. wala ñun li ñuy ñor day nekk ci li nekk suñu âge mais léegi mënatoo nëbb dara te xale ku ko xam-xam ni dafa dañ kumpa tey xale bu nit ki toog këram wala nit ku ci toog en aparté di yow parent bi sax moom mën na la gën a xam tey wala sa doom mën na xam loo xamante ni toi tu unior que sa doom xam na lii wala sa doom mi ngi pratique lii parce que du la ko wan du ko doxee du ko waxee te à chaque fois dina def de telle sorte que dina jël toutes les précautions nécessaires à ce que nit ñi bañ ko xam la plupart du temps ñi ko koy xamal mooy ñi muy fréquenté wala ay àndandoom mm-hmm. te ñoo ñooñu di ko ko xamal duñ ko génn di wax parce que ñoom ñoo koy defandoo te ku ci nekk yaa ngi protégé sa moroom léegi lenn rek mooy mën a am muy jëye mooy am ñu dek ñu remonté ne lan moo indi lii lu tax lii tout le temps du kenn ci ñoom ñi koy def kuy génn ne maman wala papa wala xarit ànd nañ di def lii tout le temps il faut jëya am wala dara am. Mhm. ñu affaire bi door a claté ñu door a xam ni kii ak kii kat ñi ngi nekkoon di def lii te euh, c'est c'est vraiment dommage parce que Pape Sidi euh, à chaque fois dañuy jël toor yi sànq di ko di ko di ko poser ci parents yi parents yi ñi ngi def lu ñu mën. billaay parents yi ñu ngi mhm. def lu ñu mën. waaye am na ci ñoo xam ne nag dañu nekk lañ talak. dëgg la Alassane Diallo mu ne Pape Sidi je mais les parents ont démission ont mm-hmm. démissionné de leur mission mm-hmm. on ne délègue pas l'éducation de ces enfants ni aux professeurs ni à l'État car l'école euh, car à l'école il n'y a pas d'éducation mm-hmm. mais une instruction peut-être l'éducateur un éducateur me comprendra. Mhm. Mhm. c'est vrai mhm. c'est vrai par euh, exemple nous t'avons compris professeur. merci pour la contribution. foofu foofu d'accord naa su may naan parents yi ñi ngi def lu ñu mën one est dans un monde wala ñi ngi ci dëkk boo xamante ni parents yi ci ëpp ñi ngi xëy di daw. mais gis naa Sonko naan ay euh, xale yi ndax bëgg ngeen bàyyi naar bi. naar bi waaw ñu ngi koy wax ci programme bi de nee nañ mën naan ñu. Euh, naar bi mën naan foofu bi Ah, expert baal ma naar bi daal. Pape ma daaneel foofu rek euh, en attendant ñu ñëw ci naar bi parce que loolu tamit beneen phénomène boo xamante ni la du ma ni mi ngi mi ngi def ravage sax mais ci benn fànn bi mi ngi yàq suñu jeunesse. ci lu bëri alors euh, li may wax ne que parents yi ñi ngi def lu ñu mën mooy parent bi xëy chaque jour di daw dépense. Mhm. moom li mu mën mooy inculquer ci ngor ak ci jom ak ci fulla mu wax ak doomam gis nga mala boo xëyee di ko wax di ko wax di ko wax sax bu mujjee. bu deful da nga naan kii dafa ñàkk jom mhm. kii buggul def mhm. nit bu am valeur nit bu xam fi parawam jóge nit bu xam li ko war ak li ko warul boo dëkkee chaque jour di dëkkal ci noppam ci lu baax man je me boo génnee ci mbedd bi ba ñu influencé la moi c'est plus la faute des parents c'est ta c'est de ta faute à toi parce que jàngal nañ la li ñu la war a jàngal wax nañ la li ñu la war a waxal te mënuñu ko def euh, de zéro à cent ans wax dafa am fu mu yem mhm. leneen li ci topp mooy cadre professeur yi euh, ce monsieur je je salue sa son intervention parce qu'il a raison école la plupart du temps su fekkee sur 100 pour cent am na éducation mais je dis que savoir bi sa xanaa moom lañ gën a moom lañ gën a euh, ci moom lañ gën a focus que que peut-être éducation bi mën na ñëw après mais savoir bi peut-être moom moo fa jiitu léegi parent yi li ñuy def yamale ko ci kër yi li ñu mën a wax yamale ko ci kër gi di ko wax di ko dëppee dëkkee ci sa nopp yow mii nit yow yaa war a am yow yaa war a am xel xam ni lii kat bu ma ci duggee lii ak lii li may jural mais paa topp influence paa topp liñ koy terme yi ñu koy waxee euh, doo dara bokkoo ci génération bi wala bëgg bokk ba indil sa bopp ay loraange ak ak ñi la jege Pape Sy mais li xew si école yi moom encore une fois may la si tuuti ñu wax may la si tuuti ñu wax débat bi ngeen dugg nii dama ko maîtriser te déglu woo leen ma demander l'avis de de monsieur Diallo qui est dans dans le de parapharm de pharmacie et de déontologie lii lañ ci xamagul euh, monsieur Diallo allez-y allez-y euh, allez s'il vous plaît s'il vous plaît on peut y mooy drogue yi xam nga boo xoolee booy léegi drogue yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo déjà dafa bëri ay façon mhm. te léegi taaral nañ ko benn xeetu taaral boo xam ni. Mhm. yow mi koy jënd sax mën nga ko mhm. jënd inconsiement nga jàppee ko leneen fekk lii drogue la. lu ci mel ni volet yi xale yi di utiliser lu ci mel ni chicha yi poufre électrique yi yàmbaay yi. volet yi fan la ko booy di jëndee nga xam ne booy ah, dañuy am seen ay fournisseurs dañuy ah. xamante benn réseau la boo xam ni benn grand mooy nekk ci koñ bi. loolu du ay médicament de la rue ko fournir. non bokkut ak li nga xam ne mooy médicament de la rue yi ba tey bokkul ak médicament de la rue yi ndax médicament de la rue yi booy ñoom xam nañ fu ñu koy fu ñu koy jëlee mm-hmm. loolu moo mm-hmm. loolu beneen beneen beneen débat la en fait mm-hmm. mais bu dee ci li nga xam ne mooy drogue yi te luy danger bi mooy ñu ngi dem ba ci commencé dugal yeneen xeetu drogue yoo xam ni booy daawuñ ko utiliser léegi am na benn drogue bu grave boo xam ni mais héroïne la héroïne la ñuy jël ñu boole kook ak li nga xam ne mooy mooy talc talc boo ko déggee benn poudre la boo xam ni maanaam si issu voilà c'est issu ay non ba tey bokkul ah. ba tey bokkul benn poudre la boo xam ni ci ay ros lay jóge mooy ros yi nga xam ni euh, elles sont riches en magnésium donc yooyu noonu yëpp booy ñu ngi koy utiliser te boo demee ay kolobaan ak fépp des fois dañ ko fay jaay kolobaan gi si yii dafay am <laughs> des fois nag lu koy waral nag mooy ah. lépp mu ngi déparé d'abord ci communauté bi parce que xale bi milieu bu mu bu muy dëkk bu muy dundee dafay am solo dafay am jeexintal lool ci moom boo paree nag nga ñëw ci famille yi ndax it euh, ñu ñu wax ko te dee y a des parents qui mhm. loolu dafa am te aussi mu ngi mu ngi yàq booy boo paree ci loolu tam nga ñëw ci école bi école bi aussi boo xoolee échec scolaire bi dafa bëri. ak carbonate si moo fay nee na ak carbonate boobu xale bi bu ree bu bu jaaxlee rek. dafay dem ci drogue yooyu noonu. Mhm. te drogue yooyu noonu nag boo xoolee lu muy indi ci moom après mooy addiction. Mhm. daf ciy am benn dépendance bu doy waar. di profiter aussi di wax parents yi ne boo demee hôpital Fann am na benn centre bu fa nekk. wala ñuy wax centre intégré pour la prise en charge xaw des addictions ak yooyu noonu am na hôpital Fann sa doom boo ko gisee mu commencé am yenn comportement ah, yoo xam ni amu ko woon xale bi commencé nekk une personne antisociale. li mu doon duggantee ak ñin di dugganteetu ko commencé di beru rek commencé xool nga ay notam gis ni amatul yenn performance yi mais jël ko nga yóbbu ko ci kër docteur ñu saytul la ko bu ñu la ko saytulee ba pare nag di nga xam kii lan la te ñoom dinañ la jox ni xam ne noonu nga koy toppatooy leneen aussi mooy ci biir éducation bi ndax boo xoolee ñun ba ñuy nekk xale li tax yooyu noonu yëpp bëriwuloon te it amuñu woon fitu di ci dugg mooy éducation bi et surtout éducation bi nga xam ne dañ koy recevoir ci kër gi ba pare dañ koy recevoir ci école bi nga xam ne l' éducation religieuse ak éducation à travers nos valeurs culturelles mhm. daf ci amoon solo mais léegi loolu day mel ni dañ ko génn ci enseignement bi mhm. foog ñu indiwaat ko mais Abdou Aziz man bëgg naa nga wax ma ci ñuy dina tax ay volet ay gën a góorgóorlu quoi monsieur Diagne monsieur ah, ah, ah. maa ngi ñëw ci yéen ñaar maa ngi ñëw ci yéen ñaar man bëgg naa li nga wax li nga bu la rëccee juróomi bu bëgg waaw nga ba àddina non di nga ñëw dinaa ñëw ci yow en tout cas damay rafetlu bu baax a baax question bi parce que actualité la te euh, émission yi lii nii da ciy am solo. Mhm. ndax day jàngale. Mhm. Euh, li nga ciy xool rek mooy dégg naa démission wu parents d'élèves yi dégg naa aussi responsabilité enseignant bi wala école bi mais aussi dama déglu tey ci suba ci benn télé benn koo xamante ni député la woon à l'Assemblée nationale mu ni d'habitude dañuy wax bilan matériel ak bilan immatériel mhm. Mhm. Mhm. lii ci bilan immatériel lañ ko mën a tuddee <laughs> mooy bilan boo xamante ni nii ci ay jikko la boo xoolee euh, ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk tey nguur gi lors de la campagne électorale ils avaient fait des promesses allant dans ce sens ci dañ fiy génne sangam nangam nangam loolu ay jikko la loolu naam lu ñu lay jàngal sa famille la ndax am na benn âge booy tollu vraiment du sa ay parents ñoo lay wàññiwaat toog muy dox wayaan ñaan toog am loo xamante nii yooyu yëpp éducation dañ la mm. koy jox wala leneen ak leneen dama cee gis aussi complexé mm-hmm. ndax complexé weesuwul may ànd ak Aliou mm-hmm. muy tuux wala muy naan ay nit di ko topp ma jàpp ni man bu ma deful loolu branché wu ma te lii nii nekkul loo xamante ni dafa yam ci benn zone dafa yam dakaar wala Thiès. Mhm. c' est partout ailleurs. fépp nag foo xalaat fu baax ak fu bon. Mhm. dëkk bi fépp nag laa la wax. pour ne pas citer. Mhm. fépp laa la wax fépp ci ci Sénégal fépp amul fenn fu ma exclure. fépp loolu noonu am na fa. man je de Diourbel. Diourbel ba ma dëkk dafa am lu ñu xamee woon njàngum xasaayit. yaru dem cant jàngi ci dem cant loolu la ñu xamee woon. aussi jakarta yi daf cee joué jakarta yi booy di dawal. Hmm. jakarta yi ñooy agressé. jakarta yi ñooy livré léegi da ngay toog benn zone la ñuy doon toog benn bërëb ay jakarta man fa la ñuy defee ay deal bu fekkee Jurbel nga dëkk mën nañoo transporté yàmbaa ji Kaolack <laughs> jële ko Jurbel ñëw indi ko ay booy toog noonu maanaam da ngay dem ba da ngay sax désespoir total dafay implanté wu ci ay parents ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. da ngay gis koo xamante ni nii il n'a que 15 ans mais il a une grosse taille. kooku papaam ak yaayam mënal tudd ko dara. day dem ba day découragé ci moom. Mhm. te pour man wax dëgg fa yàlla état bii nga xamante ni c'est incarné pale de nouvelle autorité mhm. ils doivent prendre leurs responsabilité du caageen que ni xale ay waajuram rek ñoo ko war a yar. état doit prendre des mesures draconiennes des sanctions ndax pour man wax dëgg fa yàlla loolu bu ñu ko réussiree day dugg ci bilan immatériel bi nga xamante ni dañ doon wax que ni amul benn programme boo xamante ni au Sénégal mhm. dañ ko doon def ñu tudd ci bilan immatériel tey li nga wax ni man réseaux sociaux yi dañ ci jouer mhm. boo duggee si TikTok bi da ngay gis kenn ku dugal lu intéressant ay jigéen dugg ci biir ni yàlla na ma yàlla may jëkkër buy pari foot di ko bind lu bëri. te man commentaire boobu ñu koy gis mais mais tooñ moo warul. Hmm. on a une jeunesse très inconsciente. am na lu ñuy café am na lu ñuy café bu ñu toogee man ak yow suñu néeg. Hmm. wala man ak yow. Hmm. non on a une jeunesse boo xamante ni honnêtement parlant. c'est-à-dire booy wax. da ngay wax dëgg. on a une jeunesse très inconsciente. jeunesse boo xamante ni dañu dem ba benn moment amatuñu repère. Pape Sidi bu defee dara man dama ko war a def. loolu warta demee noonu Pape bu defee dara loo xamante nii ndax li Cheikh waxoon yoon wi roy la ak romb mhm. li ngay roy mooy li baax li ngay romb mooy li bon mhm. munoo di gis loo xamante nii baaxul sëñ bi nga koy nga koy topp mhm. parce que du la perdition la lay jëmee la jeunesse sombre quoi que l'on puisse dire li c'est un cercle boo xamante ni c'est vicieux te wax dëgg fa yàlla pour man parents d'élèves yi am nañ ci part de responsabilité mais état aussi am na ci part de responsabilité fan lañ koy jaayee. waaw ak yenn kii yi dañ koy jaayee. non man professeur yi man duma duma leen jox responsabilité xam lu tax parce que benn côté xam lu tax xam lu tax xam tax professeur bi ci biir classe bi du la jàngal loolu mhm. professeur bi boo duggee ci classe bi moom sa responsabilité est engagée mhm. lépp loo fa def c'est la responsabilité du professeur mhm. mais boo génnee ci enceinte univ ci enceinte école bi foofu responsabilité professeur bi mënuñu ko engagé. mais mën nga cest à da ngay da ngay da jàngi huit heures wàcc seize heures. seize heure boo wàccee sa ay waajur nañ la woo. surveiller la ndate wàcc nga diggante école bi ak kër ga ñaata minute loo koy dox. loolu dafa war a jaral parent bi. daf ko war a jaral mu xam kii. diggante bi muy dox ak ba muy agsi. man am naa waajur yoo xamante ni noonu lañ mel. Mhm. seen doom maanaam huit heures buñ fa jugee seize heures bu ñu wàccee. dañuy woo diw ni ko demal xoolal ma xale bi. Mhm. réseaux sociaux yi effectivement mu ngi ciy joué. te da ngay am 15 ans wala nga am 13 ans sa waajur jëndal la téléphone yàq la. Ah, c'est-à-dire bu fekkee da ngay yar am na noo xamante ni noonu nga war a yare mhm. mhm. bu fekkee da ngay yar ba pare bu ko boole ak bëgg ak sentiment. dañuy jaawale santiment ak devoir. qui aime bien. waaw qui aime bien châtie bien. bu fekkee nag da ngay yar encore une fois de plus dafa am nooy yare xale boo bëggee ëllëg parce que man je salue au passage parent wu ki nga xamante ni tey moo doon président de la république ndax boo dégloo histoire am bi mu amee baccalauréat mu ñëw université bi mu ñëwee université fan la njëkk a fanaan ci atelier tailleur moom mësta xam sangam nangam nangam nangam ba benn instant ñu jàppe ko kaw kaw cest nag kaw kaw boobu ñu lay jàppe ci biir ñi ngay àndal loolu moo lay sauver. Mhm. boo doonul kaw kaw nag. Mhm. suba yaay doon ki nga xamante ni dañ lay yërëm. mais sooy xool suñu président yëpp sooy xool ay kaw kaw la. donc bal leen ma bal leen ma ma jox kàddu gi ñeneen ñi ko jotagul. Euh, man bëgg naa man bëgg euh, naa. ci am ci am ci rek am na borom Jakarta yoo xam ne très sincèrement. Mhm. effectivement ñun ñii dañuy jël ay. non attendez man mi am naa ay frères yoo xamante ni. ay Jakarta la ñuy dawal. man bëgg ce sont des références dañuy joxe kër dañuy joxe dépense seen kër. mais Pape fi ma mais regroupement wu Jakarta yi aussi. nañ waxante dëgg Pape. am na am na Jakarta yoo xam ne. waaw waaw am na ne ay ay ay ay. mais Pape euh, Wave merci beaucoup pour. Euh, euh, la politesse, euh, pour les messages que je reçois. J'en beaucoup. am di après euh, Abdoulaziz Abdoulaziz bëgg naa bëgg naa xam sa xalaat ci lii parce que yen nit yi diine yi aussi nit ñi dañu foog ne bokk leen ci société bi te nit ñi ñëpp dund ngeen di dund. Eh, déglu Abdoulaziz nee na moom ay jàng rek la xam. li ngay wax ni xaw ma woon sax. am di xam na ci Sénégal. billaay tey laa ko xam man xaw ma yooyu. man maa ngi mel ne ku dugg classe ñu may jàngal lu bees. man kay may doog a jàng man xasida yi rek laa xam. mais Pape Sidi baal ma de balaa am di di ñëw balaa ma koy fàtte tey professeur bi mën na influencer élève bi mooy fi ma la doon wax à l'enceinte de l'école tey bu ñu génnee classe rek ci seen euh, bureau de prof yaa gis professeur boo xam ne day taal cigarette am di toog. mais c'est son espace de travail. waaw ouais, mais c'est son non, espace de travail mais yaa ngi influencé yaa ngi influencé élèves yi nañu waxante dëgg yaa ngi à la fin am na benn loi boo xamante nii le président Macky Sall le président Macky Sall président Macky Sall bi mu doonee président hmm. am na loo xamante nii dafa waxoon ni espace public yi dañu fay interdire pour tux donc kon bu fekkee professeur bi dafa dugg ci biir école bi tux kooku day influencé may ma lii am di mi ñëw après ma ñëw si Abdoulaye ah, Abdoulaye gàttal na gàttal may ma am di moo yàgg njëkk a ñaan lii bu yàgg am di jëlal am di <laughs> jël naa nee na tey la waaw damaa bëgg nga déglu ma attentivement yow rek lay déglu ngeen déglu ma attentivement ngir yàlla bu kenn wax bal leen ko mu wax gis nga juróom yi ma lay liimal juróom yi ma lay liimal nii moo yàq àddina bi ci njëkk laay njëkk ñëw. ci bi njëkk ñëw mooy drogue yi xale yi di drogué doog a ñëw si professeurs yi di wàcc nga déglu ma bu baax li ma. yow rek laay déglu am de. Pape dañoo nekk si réew moo xamante ni drogue bi du ay manque du ay kii dafa drogue bi dem na ba mujj gi préservatif. préservatif. kaput booy dañ koy def drogue préservatif. waaw dafa am vanille. Hmm. am chocolat. am am am am am am am parfum bu ne fraise am ay kii moom la booy di jaxase dafa am benn produit chimique bi ci nekk moom la ñuy naan suus ak volet. boo ko baxalee nuñ koy def. déglu rek boo ko baxalee. Hmm. boo ko baxalee da boo jëlee kii bi bu def ko ci kii bi dafa am benn huile buy tàkk noonu ci kaw moom la ñuy jël. tonni ko moom la ñuy jël tonni ko noonu parce que parfum bi day jaxasoo boo jëlee ndox dugal ko ba mu dugg dugal ko ci boo ko jëlee day yàbbi bu yàbbee boo ko tegee noonu dafa am benn huile bi nekk ci kaw moom la booy di jël kuddut jël ko jël girib carbonate girib bicarbonate carbonate bicarbonate oui mm-hmm. carbonate. mais est-ce que est-ce que c'est à expliquer. Ouais, c'est à c'est un c'est-à-dire détail trop. waaw bul ah, que vous n'avez pas encore entendu de le faire donc a expliquer loolu loolu tamit xam nga doon na si loo xamante ni tey jii mënoo ko comprendre. waaw duggal ci loolu. moom la booy di jël. yaa ngi jàngal booy nan la ñuy defaree affaire bi. non bu mu ko bu mu ko expliqué. waaw mais c'est bon du ma ko expliqué. waaw léegi noonu. boobu tamit boobu tamit gars yi dañ koy jël. waaw waaw. beneen bi ci des mooy professeurs yi defuñu dara ñaata professeur moo fi jàpp élève di koy corriger di koy dóor parents mi jël ko yóbbu ko police. ah kay. bari na ñaata yoon pour man école bi militaire yi lañ ko war a jox. ëpp naa def waaw école militaire lañ ko war a jox te école yëpp nañ am benn blouse parce que da ngay xool li militaire yi li yi formé bu dee chauffeur ñoo si gën a correct du ñu def bêtise mhm. bu dee école militaire la gis nga bu njëkk bi nga naan def taw ñu lay yóbbu forfait yéen a ngi koy fàttaliku mhm. ñun temps booy bi ñu nekk école di jàng tux dañ daan jël kaye suñu kaye yi dañ koy xoos créé lycée lëmas ko tàccu mu génnee saxaar. Mhm. mais léegi booy dafatuñu yooyu. Mhm. c'est ça. est-ce que comprend nga mu la. Mhm. kon yaa yaa am problème. léegi problème bi mooy lan école yi nañ ko jox militaires yi parce que boo xoolee militaires yi chauffeur militaire. mooy discipline quoi. discipline. école bi si boppam moo soxla discipline. ñoo soxla discipline. discipline léegi discipline boobu nag pour nga am ko boo xoolee hôpital militaire yi ñoo gën a. ñoo médecin militaire yi ñoo gën a sage. ñoo gën a. rigueur rigueur. c'est nag ci est-ce que comprendre nga mu la. Mhm. Mhm. boo xoolee menuisier militaire ñoo gën a rigueur ñoo dàq liggéey. Mhm. boo xoolee jàngalekat militaire lu tax mu mënul am. parce que élèves yi tamit dañuy respecter seen professeurs yi lu tax dañuy respecter seen professeurs yi parce que euh, euh, xale yu jigéen ñi dañoo ànd ak lève xale yi léegi dañoo jékki-jékki rek ponkal. précoce précoce. mooy exemple élève yi jógee Prytanée militaire comportement bu ñuy. yor. xoolal élèves yi jógee Britannie militaire ak élèves yi nga xamante ne doon jógee ci ci ci d'enfants de la rue. c'est l'élite ban ban ban ban. c'est pas bëgg naa génn sujet bi mais y a beaucoup de gens qui ma permettre euh, bon. Euh, kon damaa pareegul de. baral am di baal ma rek. waa dem non am di. dem leen dem leen man sama wax toujours saa bu ñëpp di wax da ngeen ñëpp may ñëpp jël temps ñu wax ba doyal man samay wax rek dañuy te sama wax c'est très important. billaay dëgg la c'est très important. merci am di li mu wax dëgg xam nga xam nga nit li muy def ci yaramam mu xam ko xam danger bi ko ci fekk. doo wax am solo. ñetti garab yi ci kaw suuf si lay sax mooy le pavo le cannabis euh, la coca. bu ci ne daa am ay dérivés yoo xam ne daa am ay ay drogue yu ci jóge en fait opium. mi ngi jóge ci pavot moo jëkk am. Mhm. anglais yi ñoo yàq àddina bi. ñoo ko dugal en Chine. ah. Mhm. te loolu moo indi la première guerre entre l'Angleterre et la Chine. ci la ñu tasee Chine récupérer Hong Kong. créé fa une banque qui s'appelle HSBC Hong Kong and Shanghai Banking Corporation muy gérer le trafic de l'opium c'est très géopolitique yàq na lu bari ci àddina parce que bi Chine tasee les Chinois sont partis avec leurs habitudes d'opiomanes dem Europe ñii dem Amérique ñii dem fépp mu nekk un phénomène moo gën a bon parce que boo ko tuxee da mel ni xob da ngay woyof comme xob c'est-à-dire c'est la drogue qui fait le plus de dégâts dans le monde et ça de joue, et plus d'argent ça joue des tours voilà da nekk da nekk feneen boo gisee euh, calmant yi ñuy ñuy ñuy ak ak ak yi somnifères yeeg yooyu pourquoi duñ ko jaay sans ordonnance parce que dérivé opium yooyu la morphine codéine et cetera yooyu ñoo ci nekk. c'est de la mm-hmm. drogue. Mm-hmm. coca moom la ñuy boole kérosène ak amoñak pour fabriquer de la cocaïne dégg nga li ma wax. Mm-hmm. kérosène. di dawal avion yi. ak amoñak imagine nga jël coca ak kérosène ak ammoniac ñu defar ko ba mu nekk poudre nga fóon ko dangay mel ni machine. Hmm. c'est ça la cocaïne. yamba bi daam ay dérivé moom mooy ay hachis ak xeet yu demee noonu mooy boo yi tux nii rek nga xam ne ay pat yu collante yu marron lay nekk yu demee noonu. Hmm. léegi nag àddina bi fi mu toll on est arrivé au drogues synthétiques mooy li boo yi di wax te xamoo lan la. Hmm. ça fait l'effet d'une drogue. mais c'est à partir de produits chimique jublu bi mooy yàq ñëpp le maximum de gens possible yàq leen yàq seen yaram gàttal seen fan c'est toujours ce que je théorise sur l'abrutissement des peuples léegi nag la tranche qui est concernée muy sunu doom yii bu njëkk li prof li enseignant bi wax moo amoon mhm. c'est le contraire de ce qu'il a dit xam nga lu amoon enseignement ak éducation en même temps dans l'école mm-hmm. nga ragal professeur ñaar yooyu moo amoon maanaam mu amoon ay symbole yoo xam ne yow quand tu pipes un mot en wolof wala en séeréer benn yaxu nag la daan dañ ko daan takk boo ko fanaanoo boo xëyee ñu dóor la tu savais t'exprimer en français correctement mm -hmm. tu savais lire et écrire et tu avais peur de ton maître. parce que da lay yar même boo la gisee ngay petit bi merci te foutu waaw kay yéen daje nga gis ko. c'est vrai da ngay daw léegi nag. may ma de Pape Sidi li may wax nii. dafa am solo. mais ci kër yi la daan njëkke kër yi dañ daan yar. dañ daan jur doom boo ko ëmbee ba ba wasin ko. Mm. da koy nàmpal da koy boot. nampalatuñu bootatuñu. on met la tétine on met le biberon on met le wala on laisse aux gosses la tablette ou le téléphone ça c'est le début de l'abrutissement mu dem moom école dem avec ces habitudes là fekk le maître d'école a démissionné parce que tout simplement il y a eu des programmes qui ont été initiés par l'UNESCO ñu ñëw fii ñu détacher l'éducation de l'enseignement parce que on est en fin de processus processus xale bi su ko li am di wax dëgg la kan ci yéen moo nangu maître d'école am dóor doomam bu ñëwee la papa dafa ma dóor police ngeen jëm les gens ont démissionné parce qu'ils ont peur des parents d'élèves mm-hmm. les oncles les tontons les tata yi nga daan dajeel ci mbedd mi incorrect wala nga def loo warta def ñu mbéj la nga dugg seen kër sa papa sa yaay dolli la jeex na léegi nag li fi des bàyyi ma rek am di tuuti mm-hmm. léegi li fi des mooy kenn ku ne ñu wàcc la ngay dund comme rabu àll et c'est ça qui fabrique les abrutis c'est des gens sans valeur mm-hmm. amuñu kersa xale yi ngay wax ni ñoo la gën a wow ñoo la gën a ñeme góor. Hmm? ñoo la gën a wëyu ñoo la ëpp mayen ñoo la gën a maîtriser internet bi. boo yi mën nañ la mën nga toog fii yow maag yow ñuy def émission booy yi jaay la. lekk sa njëg te doo xam ne yow jaay nañ la waa ji fii la lay xaar ci buntu télé boo génnee mu embarqué la. Hmm. ne la dañ ma laa jaay. léegi boo yi dañ ñoo dépassé. dépassé gi ñu dépassé nag ak ñun démissionné gi ñu démissionné au niveau gouvernemental ba mu agsi ci famille yi. loolu pour le changer il va falloir revoir ces programmes d'éducation mmh. qu'introduit l'UNESCO dans ces pays-là ak internet c'est ça le courage il faut le dire il faudrait que les pays puissent créer des éducations yoo xam ne endogènes par rapport ak sunuy valeur ak li ñu am Eh, professeur ak ñi daan jàngale arabe ci école yi ana ñu du génnee nañ leen. Mhm. éducation civique comment on devient un bon citoyen. un bon mhm. sénégalais. Mhm. un citoyen un nangam. loolu dañ la koy jàngal à l'école y a plus d'éducation civique. y a plus d'éducation morale. écofam bi daan am ñun góor ñi dañ daan jàng écofam sax di xam le cycle menstruel la femme y a plus léegi lan moo fi am SVT. ay jàngale moo xam ne. Eh, au final du la eh, jariñ dara. na ma may bii rek xoolal une minute une minute une minute il faut que dama la que nga dama lay wax benn rek benn bu ndaw rek benn bu lii rek gis nga gis nga dama lay wax ñii di suuf ak ñii di voler ak kii jël drogue yomb naa xam dafa am ay signes mu lay won signe yooyu laa la bëgg a wax Pape Sidi. waxal ma gaaw ku sa xam sa doom day xëy def boo ko xoolee di nga ko gis xam ne kii day jël dorogaw. te mhm. loolu ma la wax du dañ. loolu ma la wax du dañ. li ma la wax ni taan la. mooy signe bi moytul ma ji xoolal ku naan ni day jël drogue diir déglu rek kuy naan nii. day jël drogue eh, diir déglu rek. xoolal boobu day jël drogue diir. Mhm. ak ku naan ni bopp bi. waaw nii. waaw naan ak tout moment naan ni bopp bi. ak nopp bi. ak da jàpp bopp bi naan ko nii. kooku mhm. day jël drogue di day dox yàmbaa. ki nga xamante ni nag bu laalee kii lu mu tuddati euh, eh. manque bi ñuy bës volet bi. waaw moom de volet xale yu jigéen da leen ñuy excité. day liw. foo fekk dañuy sol lu gàtt naan nii. <laughs> wax na dëgg de nii xoolal naan nii xoolal. xoolal xoolal naan nii seen seen gémmiñ xoolal naan la ne ay doo dara. comme moytu nag dem boîte di naan. naan nii jël sa verre te xel sa boisson def nii dem. dañ ko ci tëmbal nga dem toilette. ñëwaat boo boo ko ñëwaatee boo ko mënee tuur tuur ko. si parce que yéen jigéen ñi laay waxal. dañ ko ciy tëmbal. góor ñi dañ koy jël. Mm. affaire bi 2500 lay jar. 2500 mm. lay jar te diggante Gambie ak Sénégal lay jugee. boobu Gambie bi la. dañ la koy toqalal. day day day mel ni doli paraan day suus. dis <laughs> nga alpras ni muy mm. day. Mm-hmm. moo koy ëpp. moo koy ëpp alprase koy ëpp bu ko dammee bu ko si toqalee nii boo ko si boo koy nan di bëgg mu terminer rek bien continué am di continué am di waaw Moustapha waaw may ma bëri na agressivité ak changement du bu njëkk professeur yi tey jii bu sama boo demee def bêtise bu la ñu ne nañ dem sa dañu am dañ dem sa monsieur. dañu am ku ku waxtaanee. moo tax <laughs> ah, am di baal ma rek. Kumba très rapidement tu une minute Kumba dimbali leen ma rek. parce tekki ma sama micro man man dem. Eh, parce que fii man jaruma fi dara. <laughs> Karen oh. bu gedd man damay dem parce que am na loo xamante ni tamit man mënu maa toog di expliquer ñi ku expliquer ñu bàyyi la nga expliquer man su ma expliquer ñu dàgg ma. mënu lool intervention yow. kese allo Kumba euh, bisimilah. alors Pape Sidi man euh, euh, li may wax ci affaire drogue bi ñu utiliser dans le milieu scolaire man su ma déggee ñu naan am na si ñoo xam ne yëguñ ko man ça m'étonne. Hmm? moi xam ngeen l'ISTAB. ah l'ISTAB. ligue xaw ma la ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. waaw xam ngeen professeur Kassé jiite ko. voilà ligue l'ISTAB lii pratiquement mën nañ ne moo nekk combat bu principal actuellement. Euh, gis nga boo xoolee études yi nga xam ne jot nañ ko réaliser en deux mille 2017 laa la wax de taux bi mu ngi toll ci 5 pour cent ci ay jeunes yoo xam ne dañu utiliser drogue dans le milieu scolaire 2007 ak 2024 euh, c'est 17 ans xam nga kon yàgg na du lu bees nekk na loo xam ne tey c'est devenu une dépendance tey drogue bi fan lay jógee ñëpp xam nañ ko parce que la loi l'interdit mais nan lay def ba egsi ba jeunes yi di ko utiliser mais c'est une chaîne. donc man je suis pas d'accord bu ñu toogee naan responsabilité parents yi la responsabilité enseignants yi la non non non c'est la responsabilité tout un chacun de tout un chacun parce que drogue bi jógewul Sénégal mhm. ay Chine lay jóge ay Dubaï lay jóge ay France lay jóge nan lay def ba egsi fii ba ndaw yi di ko utiliser loolu la ñu war a poser question c'est ça qu'on ah, appelle le trafic de drogue c'est le trafic de drogue c'est des milliards donc yana à gogo waaye am na bu leen relancer bu leen relancer ah waaw tamit bu leen relancer bu leen relancer s'il vous plaît laissez gogo tey j'ai des euh, étudiants avec qui je dois m'entretenir am na ay études yoo xam ne réalisé na ko. nous devons nous entretenir euh, soo jëlee pourcentage bi ci jeunes yi tey mën nañ ni 10 pour cent ba 15 pour cent ñoom ñëpp dañu utiliser drogue dans le milieu scolaire et pourtant doo ko xam. la moo tax doo ko xam man j'ai eu à participer benn rencontre boo xam ne waa LISTAB ñoo ko doon def et c'était dans ce cadre la tey nit mën na jël euh, benn drogue bu muy utiliser yow raxu tey bu ñu ko tegoon doo ko xam xam nga la leen di rool benn feutre tey boo waxee parent bi nga xam ne du surveiller doomam amaana pa parent boobu chaque jour bu xëyee dina yulli saagu doomam dina essayer comprendre lan ak lan lay utiliser mais doo ko xam lu ci bëri ay 14 ans 13 ans 14 ans 15 ans tey buñ ko tegaloon doo ko mën a comparer ak feutre bi nga xam ne élève bi moom lay utiliser man laal naa ko hmm. parfum bu nekk lay am dañ koy utiliser léegi nag wax ji mooy hmm. ñun tey nan la ñu mën a bàyyee loolu di continuer parce que c'est c'est c'est c'est une chose boo xam ne du lu bees yàgg nañ ko fi gis mais dañ koy bay bayal mais heureusement listap ñoom peut-être ñoom combat buñ ciy mëne euh, euh, amuñu ñi nga xam ne tey jii war nañ leen ci mën a accompagner à 100 pour ñu mën a passer le message parce que tey c'est un message boo xam ne dañ ko war a véhiculer tout le temps tey buñ ci waxee suba duñ ci waxaat gannaaw suba duñ ci waxaat xam nga tey lan moo nekk discussion bi nga xam ne ñi a pardon très important. Mm. ñu jël influenceurs yi dugal leen seen combat. exactement mais c'est un combat boo xam ne tey doo gis à part listap mm. ak peut-être quelques structures yoo xam ne da nga koy gis gisoo ci kenn koo xam ne tey jii dina ci def véhiculer message wala dina ci def combat tey benn élément nga ci gis ñu wax ci buñ ci pare pare nañ ci te pourtant c'est un sujet boo xamante ne nii mu ngi fi et ça prend de l'ampleur parce que mm. tey bu ñuy wax 2007 yàgg na ñu ci bëri xamuñu woon li nga xam ne mooy drogue mais tey bu ñu demee ba koy utiliser ñu gis taux bi statistique bi di gën a yokk c'est parce que y a un réel problème boo xam ne tey mënuñu ne parent bi moo faillir à sa mission mënuñu ne enseignant bi moo faillir à sa mission mais c'est une chaîne boo xamante ne ni dañ ko war a respecter te ça n'a pas été respecté parce que tey am na loi boo xam ne bu taxaw parce que là bon moom je veux pas le citer mais dafa defoon presque suruxoon na quoi ba ñu bëgg génnaat. Mayga yaa ko tudd. Mhm. Mhm. mais dafa ni. drogue bi mi ngi ci dëkk bi. mais mi ngi fi am pagaille. na ko autorité yi lijjanti. Mhm. mais nag lijjanti wuñ ko exactement. lijjanti bi ko war a def. paf les ma il faut il faut il faut je euh, sais que je suis choqué jusqu'à la moelle épinière Koumba merci beaucoup. dafa am Pape Sidi pareegu ma de. ay waay kumba dimbali ma rek waaw daanelal euh, dafa am benn jour ceddo defe naa good morning la woon ñu invité benn waay bu nekk ci affaire u xeex sida yi. waaw mu ne ma ñi sida Sénégal ñi ci ëpp xale lañ amaguñ 19 ans. Mhm. te en général ay góor lañ. ma ne ko góor ñi ah lu tax ji ay góor lañ mu ne ma parce que góor ak góor buy sëy. sida milieu homosexuel bi hmm? ñoo gën a sida ci monde bi. le hmm? homosexuel. góor ñi jaxasoog seen moroomu góor te ñi ci ëpp amuñ di mu Sénégal ci at moomu 2022 on a utilisé 19 millions de préservatifs 19 millions am nga Sénégal yu bëri ñu ngi ñuy seetaan Pape Sidi man damay yaakaar ne on est dans deux mondes différents en fait. bi dinañ ko yaatal dinañ ko yaatal waa Sénégal mën a bokk waaw a bokk. yéen tamit ngeen mën a wax ba seen ñeex saf yàpp ak vidéo euh, internet bi. Euh, accès à à vidéo pornographique yooyu tamit. non mais très sincèrement. ah mais dinañ Sénégal moo jël pay ci seetaan bi je ah parce que amul amul am couvert. très sincèrement vidéo réew mi amul couvert léegi nag Bassirou ah, Diomaye Diakhar fay président de la République du Sénégal son excellence ñu ngi lay ñaan boo dikkee ñu xool frontières yi Sénégal yi euh, frontières yi Sénégal yi wax dëgg yàlla ngeen dimbali nu ci ndax réew mi amul kubéer lu jóge feneen dugg waxuma nit foofu mooy wax ow oh la port ay dapor euh, Guinée Abdoul Aziz. Euh, yaa ak sa gars raxas leen fii waaye nan jàppaat. vraiment xanaa xamoon ne dama tiit. maris gii maris gii. Ah. damay cité maris gii. maris gi am na ay numéro ñuy def ci tiktok bi. waaw xale yu jigéen ñi maa day im si. Abdoul Aziz balaa ngay tàmbali affaire affaire gis nga ñun émission ah. euh, affaire révolution yi ngi actuellement le Mali est une plaque euh, tournante de la drogue. Mali na Ceddo gis nga suñu plateau bii. waaw mooy Sénégal. Mhm. Mhm. souvent damay ñibbi. Mhm. naan pourtant li mënoon naa ko wax. waaw man rek su ma waxoon fi ma jaar ba àgg fi waaw ndax dund naa lu nekk. yàgg naa Europe nekk naa koy tubaab. animé naa ci ay boîte du gën a doy waar. moo naa naan moo naa tux man hmm. rek moo naa wax sama histoire. wax dëgg yàlla. mais gis nga plateau bii. Hmm. moo tax li may wax lu ci ëpp damay dellu ci éducation lu ma hmm. gëm la. te man damaa jàpp ne pour ñu régler suñu réew mi éducation gis nga ñuy toog nii ay sénégalais lañ comme ñun. li ngeen di wax nii koo ci woon di ko ci wax ñu bëri dañ ko ci xam. maa ngi nii toog te bari na ci Sénégal te boo xoolee histoire la. gis nga ay waajur bu ñu téye say doom yar leen fi ñu leen war a yaree teg leen fi leen war a teg. man <coughs> j'ai mes enfants dëkkuñu fi ñu ngi bitim réew ngeen wax ne xamuñu ko te foofu la ëppee fa ngay joué ay PMI fa ngay joué loterie fa ngay naanee fa ngay def lu nekk lépp éducation la loolu nag wax naa leen ma wax ko parce que yéen ñi toog ñi ngi nekk Sénégal ñëpp duñu seetaan ñu ngi waxtaan li ñuy wax yëpp yéen a ngi toog di ñu xool. Mhm. xamoo leen ci dara. waaye am na ci koo xam ne mi ngi commentaire nee na ñun lu ñuy wax xamuñu ci dara ça veut dire que moom moo ñu. gën a maîtriser moo tax nag dafa am yoo xam ne du affaire de sensibiliser sax nag parce que affaire u thème xeesal bi bi ñu ko fi defee bi ñu daggee docteur dugal ko ci TikTok bi. Mhm. ñu bëri ñu ngi commentaire di ko contredire ba pare ñeneen ñi naan doo du tax du ñu teree xeesal. Mhm. kon bu affaire de téléspectateurs yi réew mi woppi màgget a ko jàpp wet goo lal day mitti thème bu ñu waxtaanee rek nga jàpp ne bii moo gën a garaaw bi ci topp mm-hmm. te lii dinañ ko gën a yaatal dinañ ko gën a yàkkali dinañ ko gën a permettre ndaw ñi ci seen bopp ñu ñëw expliquer comme ça bu ko defee jur yi jubluwuñ ci ragaloo leen ragaloo leen waaye dañ ciy jublu rek ngir ngeen bàyyi xel seenu njaboot ndax réussir sa vie moom mooy li say jur defoon ci yow nga fexe ba def ko ci say jur euh, say njaboot ñu dem ci Abdoul Aziz mu jàngal nu balaa ñuy dellu siwaat ci étudiants yi ndax nañu xam université be nu ñuy mujjee. Mm-hmm. ak fu ñuy jëm étudiants yëpp toog di ñu seetaan. ñu ngi ñëw ci yéen dans cinq à dix minutes maximum Abdoul Aziz bismillah xalifa yónneen gërëm naa la waaw sëti yónneen gërëm naa la sa baay maali bi max sëñ Babacar sëtu yooneen gërëm naa la sa baay maali gërëm naa la borom biltiini max naa borom guddi gi bëgg leen mbay gëm leen mbay joxu leen mbay tudde leen mbay seen doom جلد يوتين البر من تيب معنا خليفة يونين قرم نالا سن بابكر ستي يونين قرم نالا سبا وإما علي قرم نالا ورم التيب لا إله إلا الله ميدو من نار نار لا yaayam roxoyatu njaay lingeer la kii koy dar dar la boromi tiibi maxnaa xalifa yooneen gërëm naa ay waa saba allah ji maali gërëm na la borom minti maxna sëriñ Babacar Si bëgg leen mbay gëm leen mbay mbay joxu si leen mbay tudde leen mbay seen doom yi kel du yow si nun borom minti bi maxna xalifa معين شكرا وضياء بل حليب وخلوة في مداخاتي برميلتي بمخنا سيرين بابا كرنيانا لمينغام جانا لغمي مندخ يو فجو آجتي سولا برميلتي بمخنا خليفة yónneen gërëm naa la saba alaaji Maalik gërëm naa la borom bi nu tiibi max naa yaay layla la avion yay dem Makka mbaye leen dubule jaar Makka jaar Madina te si nu tàngul borom bi tiibi max naa sabaay maali gërëm naa la borom mi nu tiibi max naa Sëriñ Babacar Si ku la dégg mësulaa gis bu la nee jàkk xam ni yow yaay ki fi yor leeri Mawdo si borom mi tiibi max naa sa baay maali gërëm naa la boromil tiimi max baayu Seydi Jamil ku la dégg te musulaa gis bu la nee xam ni yow yaay ki fi yor leeri Maodo si boromil tiimi max naa sabaay allah imaam maali gërëm naa lay borom minati max naa waa Sénégal bëgg nanu mbay gëm nanu mbay waay joxu si lan mbay joxu naa mbay sama xol bi kenn du yow nun dooro bil bi max naa waay bay doomi garmi Ali moom mooy monsieur Sambena diwaanu sambay naare Sëriñ Babacar Si Mbay doomi Ndar Ndar la Mawdoy baayam Roqayatu Njaay la waalo waalo la borom bi tibi ma xonaa la binti bi maxna kay ma wax la ñun soppey xalifa mbay way dunu mer fu nu gis ñaan di re di waxtaane sama góor gi kooro binti bi maxna ay ñun soppey ay di إلا ما قوى تخيرا فثبتنا بالأخ يا سلطان بكم بين الصلاة السيف simmi jox Malick Malick dem bàyyi ñoo xalifa Abubakar borom biti bi max naa waay ñun soppay xëy dunu mer dunu mere seydi mbay borom biti bi max naa xamuloo ñun sopp soppeyi Seydi Djamil waay dunu mer fo nu gis ñoo ngi ree di waxtaane sama góor gi borom xayaar lax mbay ñi may seetaan loxo ci sëñ Babacar waaw waaw dañuy ree di waxtaane sama góor bi oro min ti bi maxna sëriñ mbay manusur yal na yàlla guddal fanam wa yasal weer gi yàlla min ti bi maxna mooy baayu kantum na yàlla baayu soxna Kantoor jigéen ju mën góor baayu Cheikh Mouhamad sama waaja sunu góor gi innal mualla woo innal mualla ahla أحلى أحلى أبي على أذكر لا لبر من تيب محنا أيوة إن المو أحلى وإحلى أحلى وأحلى أذكر لا لبر من تيب maxna def leen la la la la bëgg nanu Babacar la ñu gëm sama góor ga Serigne Babacar la la ñu gëm yow la nu xam guddi bu jirim nga yaram ay waay bëgg nanu la teral la ilay la la ku aajo ñëw nga fajal Sëriñ Babacar aajo mu te doo fa yu bor Sëriñ Babacar du seen te ku kabil Seydi Babacar Lo moo ko yayo bayoo la nu xam saa ci tëtë lay li la laa yow daal la nu xam ndamu woo ne di wutu la naw Sëriñ Babacar ay waa ne ko di wutu la naw lay li la laa ndamu woo doo ne ko di wut la naw Serigne Babacar bi ixtadoo te wéral te wéral loolu dëgg la yomal xiyaamati mati loolu dëgg la ji mooy tibbukaay tibbukaay gogo tibbal ay waay lanu xaar ñaan ji bay na fa mbay Sëriñ Babacar silenti waaw ma ni loolu dëgg la coow li ba bàyyi xuloo laay lay la ak xaxaloo loolu dëgg dëgg la itam xuloo dafa wees ay waay àndandoo liggéeya fi des àdduna yenam dafa diis boo xuloo ñu dolli ko tey loolu dëgg la booy xuloo mu dolli ko tey yow la nu xam te itam xuloo dafa wees àndandoo liggéeya fi des adduna yeneen dafa diis ñu dolli ko tey loolu dëgg la di xeebi xale ab xale loxoom bu sete sëriñ ba mag ña xëy ko kaanu day ba samp ko ana soppe yi sëñ xalifa mu toog di xool ba xale laay lay la laa la kon matatul loolu dëgg la ku ko xeeb xamoo la la war loolu dëgg la ku ko xeeb xamoo la ali bombay mi say samay na khalifa ya idabaja yow ali bo samay na khalifa ali bo samay na re khalifa ya sama waja ali bo samay na khalifa ya may naan xalifa yaay sama góor gaay ali boor sambay naar sambay yaay daba njaay acca yaay daba njaay billaay daba njaay daba njaay mbay min tiiri maxna ma mbay ku la way tabbi aljanna mbayoo ku la way tabbi aljanna Sëriñ Babakar ku la way tabbi ku la way maam ku la way tabbi sama góor ga daal ku la way tabbi ku la way daal ku la way sama góor ga yow ku la way tabbi ma ni mbayoo ku la way way sama góor ga dal way xalifatul akbar way sama waaja yow ku la way ku la way maam ku way sama waaja yow ku la way ku la way ku la way tàbbi sama góor ga dal ku la way tàbbi aca singaari singaare bay si ana soppey xaalifa bay si ku mu jaaral loxo yi bay si ana soppey xaalifa bay si mbay borom bone kaare bay si mooy borom bone kaare bi bay jaaral loxo yi bay si may seetaan loxo yi bay ana soppey si si ana ku mu jaaral loxo mooy seexal xaariba oh, mbay borom bo ne kaare bi eh, mooy borom bo ne kaare bi eh, boo amee aajo. mbay si mbay. boo amee aajo. mbay si mbay. boo amee aajo. mbay si mbay. boo amee aajo. boo amee aajo. mbay si mbay. demal ti waawan. mbay si mbay. dugal ci réew du mbay. mbay si mbay. julil ñaari raaka. mbay si mbay. jaamoo ko yàlla. mbay si mbay. bu fa bokkaale. mbay si mbay. julli yàlla moo ko moom. mbay si mbay. yow boo paree ñaanalal xalifa te nga ñaan sa aajo loo fa ñaan yàlla may la ko loo fa ñaan mu may la ko loo fa ñaan nu loo fa ñaan nu may la ko na yàlla guddal fanam amiin yeesal yéen bi yàlla bu rahmaan sin bay Mansoor ak i rakkam yal na buur dolli mayaam mbay dan doon nuyoo rek yal na la yàlla may jàmm wéral baat bi way yi neex na lool yal na si yàlla def xéwal te dégg nga li mu wax boo demee ca bërëb bu euh, mbay si ba bu fa bokkale mhm. wax ñu léegi dañuy jéem a jañax diine ci kaw nit ñi naan seen bërëbu euh, sëriñ yi dañ fay bokkaale te loolu du dëgg Sénégal nag dañ fi bàyyi ñiy suus ak ñiy voler ñiy def musiba di nga ñi ñiy jàmmu yàlla waaw ah, loolu moom mooy fekk ñi baax nga ne leen yéen waroo leen baaxee nii yéen di ngeen baaxee baaxut dafa bon dañuy dem ci wàllu étudiants yi nga xam ne moom moo yitteel waa euh, ndaw ñu ci bari ci réew mi ñu bëgg xam fan la ñu jugee fan la ñu jaar fan la ñu jëm tax ñu dalal ñaari gan ñu ngi ci plateau bi il s'agit de monsieur Diallo et de monsieur Diagne je vais laisser le soin à Khadija euh, autant pour moi à Koumba Guissé de poser quelques euh, qu'on évacue les sujets les sujets les plus essentiels parce que mhm. Oustaz Abdoul Aziz Doucouré dafa war a gàmmu tey dafa war a waxtaan ci Serigne Babacar Sy ba suñ daw yaram moom xam na man Serigne Babacar Sy bu ñu waxee ci kër ga lu ma koy wax dama naan ko Serigne Babacar Sy mooy bomb waaw xam naa ni moom danañ ma ci dóor ba ma dee waaye dama naan ko saay nañu waxante dëgg rek mais Serigne Babacar Sy mooy bomb euh, Koumba top c'est parti merci beaucoup Pape Sidi faal ni nga ko waxee tey dañu invité ñaar ci ay étudiants ku ci nekk nag nekk président amical ñu euh, bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeex di di ak ak yelleefu étudiants yi pour ñu mën a jàng ci jàmm mais aussi euh, mën a euh, nekk ci dans les les meilleures conditions de d'études alors euh, Aliou Diallo tey moom yi nga xamante ne nii c'est un ami c'est un frère yàgg nañu waxtaanee ci li nga xam ne moo jëm situation université gis nañ cette année ça a été quand même très rude depuis l'événement du mois de mars mu tegu ci mois de juin bi nga xam ne problème bi am na ñu euh, lakk li nga xam ne moo di sesti ñu gis ay bus université aussi ñu dagg ko ñu lakk ko lépp lépp lu ko waral tey jii bu ñu xoolee c'est la politique en quelque sorte mën nañ wax ni politique tey jii moo jur fitna bi nga xam ne am na au sein de l'université Cheikh Anta Diop tey bu ñu waxee université c'est un temple du savoir tey ñi nga xam ne dañ fa nekk dañ fa nekk pour wut xam-xam mais ce qu'on a constaté au Sénégal euh, tey Euh, mën nañu wax ne politique bi moom lañu ñu gën a jiital c'est vrai vous avez des combats à mener am nga loo xamante ne ni tey nakari na leen à l'université parce qu'on a vu euh, chaque fois da ngeen di faral di xeex euh, lu jëm ci wàllum restaurant lu jëm ci condition de vie lu jëm ci seen ay bourses. mais du ngeen yokkal micro Kumba. ah maa ngi yuuxu lu mu mën de. non waxuma yow de ñu yokkal ñu sa micro. <laughs> dañuy gis problème yooyu yëpp da ngeen koy am. mais yéen ci li ngeen koy basé wu mooy des combats yoo xam ne da ngeen koy mëne tey c'est vrai am ngeen lu leen metti vous avez le droit de faire votre vos combats mais tey est-ce que ce serait pas mieux tey ñu réformer ko gis na xeex ngeen année bi toog ngeen ko saa mun nañ ne bu ñu xefoon tuuti mu nekk année blanche ci yéen euh, tey ñaan ngeen yàlla ñu indil leen changement yàlla def ñu indil leen président bu bees Euh, mën naa ne tey à majorité bi à l'université euh, lu ñu doon xeex mooy kii nga xam ne mooy régime Ousmane Sonko mu ñëw toog fi tey vous avez réussi en quelque sorte le combat mën nañ ko waxee noonu euh, tey en tant que ndax jotul. yéen ngeen toog da ngaa ngeen. <laughs> Moussa Sène xam naa da ngaa musóoru. <laughs> tey yàq na concentration bi yëpp. yàq na sama concentration ndax tey jotul ngeen changer un peu. seen mode de de combat mu nekk un combat pacifique bañu a li nga xam ne mooy politique bi au sein de de l'université euh, effectivement donc jërëjëf Kumba ci laaj yi nga xam ni laaj nga ñu ko am na solo torop donc di rafetlu aussi fi nga xam ni maanaam ni nga amené sujet bi posé ko donc ñu xam ni rek voilà étudiant yàgg na xeex pour li nga xam ni mooy ay àq ak yelleefam pour moom ak euh, ngir askanam yëpp mm-hmm. donc euh, dañuy profité waat rek xëñ na ci occasion bi di encore ñaawlu euh, ba fu ñaawlu yam li nga xam ni xew na la premier juin parce que loolu moom yaakaar naa kuy étudiant te ñaawlu woo ko defoo sa wareef ndax li nga xam ne mooy université état defa ay milliards yoo xam ni lépp pour yow la sa dëkkuwaay ak sa jàngukaay nga dem incendier loolu noonu donc ak lu mënti nekk raison bi que mu nekk lutte politique que mu nekk lutte syndicale loolu nekkul loo xam ni warul ñu ngi koy déplorer boo fu déplorer am donc di wax ni aussi ca bis ba loolu ba muy am ñi nga xam ne ñooy amicales yi ñoom taxawoon nañ temm ne lii ne lii du fi amee ndax ñun lu ñu xamee mooy combat syndical maanaam lii njëriñal étudiants yi la dañ koy xeex mais loo xam ni ay combat politique la en général soubassement bi daawul nekk li nga xam ne mooy amicales yi boo xoolee lii am am na ba pare. Mhm. donc tey jii nii am nañ régime bu bees yaa ngi koy wax nga ni étudiants yi mën nañ ci kontaan ndax boo xoolee ñoom. en général ñu ci ëpp ñu ngi nekkoon ci opposition bi parce que étudiant itam noonu la mel naturellement da ngay gis ni nguur yi fi jaar yëpp daanaka étudiants yi ñoom ñooy nekk les premiers opposants donc dañuy profiter fii di appeler un di lancer un appel à nos frères di leen wax ni tamit waruñu rek ñun chaque jour di mel noonu foog ñu nangoo nekk benn nouveau type d'étudiant boo xam ni nit bu toogee di liggéey dañ koy accompagner ndax euh, nguur gi fi jóge euh, avec à le président Macky Sall ak lu euh, luñ ko ŋàññi yi lu ko étudiants yi ŋàññi ŋàññi étudiants yi xam nañ ni defal na leen gis nga li nga xam ne mooy wàllum infrastructure boo ñëwee ci campus social bi am na ay nouveaux pavillons yu bëri yoo xam ni ñoom ñoo ko fa def am na restaurant yoo xam ni ñoom ñoo ko fa tabax boo jugee ci loolu nga ñëw ci enseignement pédagogique bi am na ay infrastructure yoo xam ni ñoom ñoo ko fa def ay équipement laboratoire ak ay matériels yoo xam ni ñoom ñoo ko fa def donc di profiter de l'occasion aussi di ko féliciter te di ko remercier moom président Macky Sall donc di ko ñaanal yàlla mu am ay ay lendemain meilleur ñun li nga xam ni tey jii nii en tant qu'étudiant ñu ngi koy xaar ci d'abord ci ñun. non loolu dinañ ci parce que c'est un autre débat. man mhm. en fait je voulais juste qu'on euh, discute affaire. ci mhm. affaire politique bi. parce que soubassement bi yëpp tout à l'heure tu l'as dit. Mhm. soubassement bi yëpp politique la. tey étudiant euh, lu ñuy xaar ci moom mooy mu génn wax lii ak lii laa soxla. et puis toog xaar ministre de tutelle am eh. gérer ko problème bi. mais tey on voit politique bi ngeen gën a jiital. alors politique boobu est-ce que tey ji amul beneen euh, méthode boo xam ne war ngeen ko defee dañ koy gis au sein de l'université mu arrêté une bonne fois pour pour tout étudiants yi jànguñu dañuy xeex rek dañuy xeex rek jànguñu de yéen ay jël ay xeer di di taal ay yéen étudiants xam nga xam nga dafa bokk loolu koy waral mooy ñi ngay ñi ngay jàkkaarloo foog nga bi étudiant bi yéen rek xam nga étudiant tey jii nii may ñu dinañ ñëw ci yow may ñu s'il vous plaît s'il vous plaît non dama koy bàyyi mu wax mais moom du ma bàyyi loolu mu jàll xam nga lu tax. Mhm. bu ne étudiants yi jànguñu dañuy xeex rek. jàngoo leen kay taal ngeen université bi taal lépp taal seen ordinateur yi taal yëpp ngeen taal ko. am là on fait pas de la comédie. c'est là je on fait pas de la comédie ça c'est du sérieux mais moi c'est sérieux. Amdi s'il te plaît population bi yëpp ko wax. bàyyi kii mu wax. Euh, Amdi bàyyi Amdi wax li population bi wax xaaral ko la may ma lii may wax may lii. waaw xam nga tey jii nii. waaw boo nee étudiants yi jàngatuñu. loolu dafay xaw a doy waar trop. ci déggin ndax boo xoolee rek lenn dala koy wan mooy chaque année nombre d'étudiants yi dañuy gën a bari donc ñii di jàng ñu ngi jàng chaque année aussi nombre de professionnels yi ñii di génn ak seen diplôme dafay gën a bëri donc ñi nga xam ne dañoo ñëw université te jàng indi leen fa ñooñu ñu ngi jàng di valider seen ay année di am seen ay diplôme di xaar état wutal leen liggéey ñi xam ne amuñu ko it ñu ngi góor góorlu di dugg ci li nga xam ne mooy entrepreneuriat donc étudiants yi ñu ngi ci lu leen war bu baax mais boo xoolee source de violence bi à dafa bëri ay facteurs yoo xam ni souvent duñ ko jël en compte notamment bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne mooy les événements du du premier juin est-ce que xam ngeen ni le premier juin maanaam ba ñu defee délibéré ba pare bañ ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko teg nañ ko ay daan toog nañ diir boo xam ni étudiants yi à l'université kenn yëngalul président mën na ko seere ak ñeneen mais li ko waral mooy. dañoo ñëw dañoo ñëw université dugal fa ay nervi est-ce que loolu yoon la man étudiant. xam naa ni aw ma doole mais ñàkkumay fulla it ba ñuy jël man sama kër gi nga xam ni falaa laa dëkk fa laay jàngee dama fa dugalal ay nervi ngir ñu contenir ma ma bañ a exprimer li nga xam ne moom laa war a exprimer gis nga nervi yooyu noonu ñoom ñoo frustré étudiants yi ba ñu def lu ñuy def c'est ça la réalité mais étudiant bi boo xoolee tey jii nii bu nekkoon mu ngi ak benn xëñ na nguur boo xam ni moom li mu bëgg mu ngi ko si jàppale revendication yi du yegg foofu xam nga étudiant boo xoolee ay moyens de combat am lan la woon point de presse la conférence de presse li nga xam ne mooy parce que étudiant fu ñu koy xaar mooy ci force de l' argument et non l' de la force étudiant bu demee bay jëfandikoo force rek c' est parce que tey jii nii ki nga xam ni moom lañ ko tegal ngir mu war a dialoguer ak moom kooku nanguwul dialoguer donc moom étudiant bi il est mu wut benn moyen de pression te boo xoolee ñun benn moyen de pression lañ daanam mooy dañ doon wàcc avenue Cheikh Anta Diop baare ko boo ko baaree autorité bi yëg ko incessamment di la dina la woo négociation au dialogue nga ñëw ne ko lii ak lii ak lii lañ bëgg mais étudiant bi ñun ñi nga xam ne boog ñoo responsable étudiants yi lu mënti xew dinañ jékki suñu téléphone jégal ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yilif kër yi mu nekk directeur du COUD wala mu nekk le recteur wala mu nekk le ministre de tutelle xam nga le ministre de tutelle ñun événement yi bu mu amee yoonoon yëpp dañ koy woo président fii mën na ko confirmer mais duñ la jël maanaam yàq étudiant bi bëri na yow étudiant bi yow yow étudiant bi ngeen yàq ci biis li ngeen yàq ci biis bu daal ay oto jàmbur donc bëri na duñu duñu duñu ñu yegg foofu ñu yegg foofu étudiant yi ñëpp lenn lañ ko xamee mooy jàng étudiant tey jii boo toogee mu wax ak yow nga déglu ko di nga xam ne kii argument yi muy prévalo faire prévaloir boo ko dégloo day am day am dëgg sa kaw alors Modou euh, Diagne yow tamit nga nekk président amical ñu gis euh, réforme yi nga xam ne yéen a ngi ko doon euh, demander parce que ñu indi ko ci biir université bi gis nañ effort yi nga xam ne euh, kii di màgget seen daal dina koy def mais tey aujourd'hui on se retrouve toujours à dire que tey am na ay étudiants yoo xam ne ba tey amuñu fu ñu loger dañuy am ay problème de ticket dañuy am problème de cantine et puis pire dafa am ñoo xam ne dañuy infiltrer wu au sein de l'université te amuñu sax ay carte étudiant foofu noonu euh, tey jii euh, comment vous vivez ça et puis euh, vos attentes par rapport au nouveau chef de l'État ñu ngi rafetlu bu baax a baax. question toppal am di rek doo xam li ngay wax. waaw wul te bàyyi. <laughs> am di parce que mu ngi xeer lañ. jël jël jël jël jël université bi jël ko ay xeer. bâtiment mënu faa àgg. ñii wax leen dëgg. di baari tali bi di baari kii étudiants yi nag la ñuy wax sànq jànguñu ñii dafa def ay intervention yu am solo ñun ñëpp ñu koy déglu. Mm-hmm. mooy bi ñuy wax ci wàllu suus et tout ça mu ni loolu da koo maîtriser. Mm-hmm. ci wàllu drogue. Mm-hmm. kon domaine bii ñu dugg maîtriser wu ko nañu. dama ko maîtriser tamit demin boobu dama ko booy dama maa xas. booy booy di million am di million wax. Serigne Babacar Sy la ñuy waxtaanee dimbali ma rek étudiants yi pare li ñuy maa ngi lay ñaan waaw waaw léegi jéggalu na la bàyyi dafa juum ah, dafa juum damaa juum waaw alors ñu ngi rafetlu bu baax a baax madame <laughs> question yi am na solo te it euh, politique bi nga wax politique bi université ñaari campus la campus pédagogique ak campus social campus pédagogique mooy fi ñuy jàngee fi mhm. amphithéâtre yi nekk foofu mënuñu faa nemmeeku li nga xamante ni mooy politique mhm. politique bi fi muy ëppee mooy campus social fi nga xamante ni fa lañ dëkk foofu nag fa la lépp di xewee fa la ay ticket restaurant di xewee mhm. fa la ay embossement di xewee fa la politiciens yi di digg fala fala fala fala effectivement politique ñun bu ñëwee ba fii bañ que ni politique amul biir université vraiment yow boo maîtriser wul université tamit. am nga frère wala am nga sœur boo xamante ni mu ngi université. ay daayira sax am na université. effectivement te daayira yooyu nag ñooy source de paix biir université. Mhm. au contraire. ndax daayira yooyu. Mhm. tey bi ñu demee ba ci assise bi ñuy jël ay décisions dañu ni daayira yi <coughs> lépp loo xamante ni activité religieuse la mën nañ ko bàyyi biir université. mais université étudiants yi dafa am benn rôle bu ñuy jouer ci société bi tey le président Abdoulaye wadd en 2000 ku nekk xam na taux de participation bi nga xamante ni amoon na ci élection yi wax dëgg fa yàlla jeunesse bi def ci amoon benn taux de participation bu important te taux de participation boobu noonu étudiants yi dañu ci jouer lu bëree baree bëri élection yi nii muy élection 2024 yi weesu tey étudiants yi ci boppam dañu jëloon seen ay engagement gaare ay bus di conscientiser étudiants yi munu leen wax nag ni leen votel leen diw wala votel leen diw mm-hmm. mais dafa doon loo xamante ni étudiant dafa doon mbir moo xamante ni bu nekk ci société dafay conscientiser mm-hmm. tey ñay politique nag mënuñu leen a tere politique mais ñun ñi nga xamante ni dañu jiite ay amical ñu élire ñu par nos pairs président Aliou Diallo bee toog ak yeneen président yoo xamante ni ñu ngi jiite kii fase kii fac science kii faculté des lettres kii fac médecine kii fag droit kii école et institut ainsi de suite ainsi de suite ñooñu ils appartiennent à aucune obédience politique à aucun parti politique ñooñu politique guñu te ñoo ñu la étudiants yi di ëpp lu ñuy déglu donc ki nga xamante ni nag dafa bokk ci parti politique par exemple régime bi mu nga xamante ni moo génn dañoo amoon maire national mouvement élèves et étudiants républicains tey avant ñoom dafa am ñoo xamante ni dafa tuddoon mel mouvement élèves et étudiants libéraux muy waa PDS tey ñii nga xamante ni tey ñoom la yàlla dénk nguur muy waa PASTEF am nañ tamit PASTEF UCAD donc politique boobu noonu bi nga xamante ni dañu demoon ay assises ñu am ko au mois d'octobre fi nga xamante ni moo doonoon téeru ba teeru bi mhm. dañu woowoon parti yépp maanaam ñi nga xamante ni ñoo ngànk biir université ñoo ŋànk njàng mi ak njàngale mu kawe mi muy ministère de l'enseignement supérieur muy rectorat muy enseignant yi muy doyen yi muy professeurs yi muy kuddu muy étudiants yi muy parents d'élèves yi ñu jël fa ay mesures yu importantes. est-ce que nga ñoo wax euh, mesures yooyu. masir yi ci laay ñëw nii. Mhm. par exemple sànq yaa ma laaj wàllu dëkkuwaay bi loolu dinaa la ci tontu. parce mhm. que da ngay dugg ci ay groupe WhatsApp les étudiants se plaignent. ci affaire mbiru dëkkuwaay yi ni muy doxee mbiru dëkkuwaay yi transparence bu leer nañ ñi daf cee am ci transparence boobu noonu parce que loolu ci ay mesures la yoo xamante ni jëloon nañ ko dañu ni booy codifier da ngay def li nga xamante ni mooy wàllu enrôlement kuddu ànd ci ak benn euh, service bu ñuy wax synapsis synapsis mu ngi nekk ci biir CDC caisse de dépôt et de consignation. ñooñu tey ñoo yor lépp loo xamante ni base de données étudiant bi la pour buy ñëw mu am accès biir campus social. parce que foofu la coow li di di am léegi si tu un non étudiant tu n'auras plus accès au niveau du campus social Synapsis da ngay ñëw ñu jël sa empreinte jël la photo la jël sa carte d'étudiant léegi yow booy duggati étudiant dafa am loo xamante ni dañ ko digitaliser tey. néeg yi nga xamante nii mu ngi koy saluer léegi léegi ay infrastructure yoo xamante ni régime sortant dañ ko def ay pavillon yu bees àndoon ci am ak AMSA ak kuddu ak rectorat mhm. tey ñu def loolu tey néeg yooyu noonu boo fay dugg da ngay budget léegi étudiant bi. léegi lan moo tax filtre bi kon demeewul noonu ba yenn ci ay étudiants yi dañuy dugg. am na sax ñoo xam ne dañuy wax ne am na ay ay ñoo xam ne. lii c'est des nouvelles c'est des nouvelles mesures xam nga université dañ ko tëjoon. d'accord de juin jusqu'à aujourd'hui jusqu'à je pense. donc avant mesures yi amul. non avant mesures yi amul mesures yi octobre lañ ko jël. ok et les mesures sont en cours. Mhm. nit ñi ñu ngi koy appliquer. tey kuy ñëw université di nga xam ne l'université a changé. Mhm. à tout point de vue. léegi nag ñun mesure yooyu noonu dañuy woo suñu mbokk étudiants yi ñu respecté ko en commençant par les délégués ci ñi nga xamante ni ñoo jiitu ñoo war a wane bon exemple même su fekkee ni visile bi nga xamante nii yow ak moom am ngeen benn familiarité man a yow chaque jour dañuy gisante ci bunt bi bu ñu dajee këyit bi ñu may laaj pour ma dugg man délégué bi naa ko wane parce que ki nekk sama ginnaaw boo wanewul loolu mën na ko frustré mën na ni lu tax kii wanewul donc loolu noonu c'est un appel boo xamante ni dañ koy def ñëpp les non étudiants il faut qu'ils quittent l'université et que les étudiants restent à l'université bu ñu jàngee ba pare utum xëy et vos attentes par rapport au nouveau président de la République suñu ay attentes mooy li nga xamante ni nii tey doon na indi lu ci baree baree bari coow biir université mooy wàllu bourse ak wàllu condition pédagogique condition pédagogique la ak condition sociale tey ki nga xamante ni mooy directeur des bourses vraiment man pour man état bi fi nekkoon jàppalewu ko bu baax a baax parce que bourse yi daan na am retard moom mu ngi ñuy suivre directeur bi maa ngi gis sànq muy message ndax sëñ Babacar mooy sëriñam donc mu ngi suivre émission bi mu doon ko mu doon ay mbir yu technique yoo xamante ni boo si duggee rek vraiment day mel ni da ngay défendre diw di dugal diw mais honnêtement parlant étudiants yi dañuy toog ba le 15 doog di jot seen bourse parfois dinañ bëral ay un deux mois doog di jot seen bourse ce qui n'est pas du tout normal mm-hmm. li ñuy tax a jug mooy su fekkee suñu ay bourse yi nga xamante ni étudiant bi nga xamante ni amul logement biir campus social day obligé mu génn dem luwe ji nekk si biti aux alentours Fass Médina fay benn quatre-vingt mille sa bourse bi doon quarante mille sa ay waajur yónnee war la c'est dur dafa metti c'est-à-dire dafa am loo xamante nii ki nekk ci biti mënu ko xam tant que nekkul ci biir étudiant sénégalais dafa sonn dafay dund ay conditions yu metti mhm. université lépp looy def da ngay ran booy lekk da ngay ran booy sangu da ngay ran au début pour nga tëdd sax dangay ngay ran parce que da ngay tëdd ba 5 heures du matin yee sa morom moom mu dem jàngi yow nga obliger ñëw tëdd ba 8 keneen ñëw mais loolu boo ko dee expliquer nit ñi nii nii nii duñ ko comprendre léegi nag il faut que ñi ko xam jël nañ ay mesures yoo xamante nii je je pense que ces mesures là vont être appliquées ci rigueur bu ci nekk nag te yu wax dëgg fa yàlla euh, pour man parti yëpp dañ ci war a jàpp muy étudiant bi muy autorité yi mais vraiment bu ñu toogee rek ni étudiants yi dañuy grève te non ñi doon grève y un fait au mois de juin y avait un fait politico judiciaire mooy ñaari parti politique dañu jote woon vous avez été arrêté vous mm, oui moi j'ai été arrêté kañ lañ la libéré man bon yàgg naa yàgg yàgguma fa parce que dañ doon def point de presse. man politique gu woon. loolu c'était notre droit le plus absolu. tout à fait tey bu fekkee am na lu ñu war a dénoncer dañ ko war a dénoncer j'ai été arrêté à la FASEC. Mhm. ñu def point de presse commissaire bi ñëw ñu wax ak moom biñ may arrêté dama ni man du ma daw. Mhm. parce que defuma lu may dawee. bu ñu ma palpé suma ay poos yoruñu loo xamante ni mën nañ ko cee génne ba war a mën a tax ñoom ñu yóbbu ma. Mhm. dañ ma arrêté man ak suma moroom. su ma morom boobu ñu ma arrêté ndool ñu dóor ko dóor yu metti ba bi muy génn daf doon soox donc Sénégal li ñu fi war a wax dafa bare loolu noonu rek étudiant dafa yàgg sonn bu ñu la jàppee day mel ni benn relation de répugnance moo am entre autorité policière bi ak étudiant bi et ça devait se passer autrement li ñuy kaas di ko revendiquer c' est notre droit le plus absolu tey université dañ ko tëjoon neuf mois mhm. mhm. c' était inadmissible mhm. c' était impardonnable c' était inexcusable te boo xoolee tey état bii nii régime bii nii nii nii nii ñàkk bi ñàkk élection yi non uni étudiants yi dañ ciy jouer rôle bu ngande un un temple du savoir qui est devenu un champ de bataille pour les politiciens effectivement je suis tout à fait d' avec vous xam nga loolu nag li ko waral si laa gis reportage bi non saaku jaasi yooyu noonu c' était faux saaku jaas yooyu noonu. je vous dis non je vous dis c'était faux. je vous dis s'il te plaît s'il te plaît saaku jaas yooyu noonu xam nga lu tax man la c'était faux ay jaas yu bees la woon. loolu ñu fi nekkoon dañu bëggoon wan que ni ñoom ñu ngi def seen liggéey dem jëndi ay jaas yi ñëw indi ko sécurité bi. Ah. il faut être honnête. sa cest ñun bu ñu ñëwee fii yàpp a tabou. Hmm. dañuy dire les mots tels qu'ils sont. mais amical bi mënul woote te du am xeex. amical bi. bu fekkee ñi ko jiite dañu responsable warul am xeex. Mhm. sànq maa ngi dégg léegi ci yéen am na soxna bu ko wax léegi bataille d'idées la ñu soxla. effectivement université armam. Mhm. étudiant armam xam-xam la. Mhm. mooy ñu werante ci xam-xam. mooy ñu werante ci li ngeen doon wax léegi kii il utiliser utilisé des termes scientifiques. sëñ euh, Ceddo. il a utilisé des termes yoo xamante ni di nga si jàngat loolu lañ koy nawee mais étudiant kenn du ko naw ci ay xuloo ay xeex. ay génne ay jaasi loolu dañ ko war a bannir loolu c'est l'arme des faible man j'ai toujours banni ça moom mii musuma ko gis mu xeex mais nag nga doon autorité politique nga doon autorité administrative bu ñu ñëwee ci waxtaan ci benn sujet daan ci joxe suñu point de vue tey pour man kii nga xamante ni mooy président de la république dañuy jaar ci président amical yi Mhm. pour am euh, base au niveau de l'université les hommes politiques vous manipulent et vous vous laissez malheureusement non non non non ça ça ça je peux pas ça je peux pas ça je xam nga lu tax votre question waaw kay votre question est pertinente wax nga waxu logement kenn dañuy jaay ci président amical yi mhm. président amical yi dañu différent dafa am amical local am mhm. amical facultaire amical faculté yi ñu moom lañ jiite amicale locale yi maire bi nga xamante ni mooy maire Touba da leen di jëlal ab logement léegi kooku maanaam ku la wan ay ku la ku la wan ay kii moo lay wan fi ngay xool ku la abal ay gët moo lay wan fi ngay xool mais noo ñu mën a expliquer léegi nag immeuble par exemple autorité yooyu noonu di di di ko loué xam nga mhm. politique lépp ngistal la dëgg la politique mais loolu par zone lañ koy def Diagne par exemple euh, maire bu Fouta jël ay étudiants am yi nga xam ne ñoo fa nekk mu loolu seen normal dañ ko war a def loolu c'est normal dañ ko war a def mhm. ñun ce qu'on mooy li nga xamante ni ñun ak administration en symbiose mooy wàllu codification mhm. étudiants yi ñun bu ñu koy gérer dafa war a am transparence mais loolu na ko waaw transparence boobu si laay ñëw ak yow parce que c'est très important mhm. même man bu ngeen ma ci posé wul woon question dinaa ci wax parce que xam lu tax dañuy yàgg dégg étudiant université dañ fay jaay ay néeg am na. c'est vrai parce que dañ ne ku bokkul ci amical bi waaw déglu ma. dañ ne ku bokkul ci amical bi. mënoo am logement. maa ngi ñëw ci loolu dama ni dama ni képp ku nu jàpp ngay jaay néeg. yoon daa war a dal sa kaw dafa nekk ci convention yi benn article boo xamante ni dafa tere wàllu jaay ak jënd néeg mhm. maa ngi lancé appel à tous les étudiants que wax leen ni leen codification pédagosique étudiant bi nga xamante ni dafa jàng ba am certaine moyenne mhm. kooku day codifier d'office d'office kooku dafay codifier am na nag fu muy yem parce que lii yi nga xamante ni dañ ko attribuer ci wàllu pédagogie dafa am fu mu yem mën nañoo commencer seize ba ni dinañ yem ci dix cinquante wala dix zéro wala sangam ak nangam. Mhm. te it bi nga xamante ni day codifier mooy étudiant bi jàll session normale. Mhm. même boo jàllee session de rattrapage boo ñëwee nga retrouver wu avec une moyenne de 17. Mhm. doo codifier. ki ki retrouver wu avec une moyenne de 10 mën na codifier. bu nu jugee ci codification pédagogique dañuy dem si codification sociale. codification sociale boobu nag mooy yow soxna si da ngaa jugee Tëngéej Aliou Diallo Point E la dëkk mën nañ def enquête de moralité. yéen ñaar kan moo gën a yittewoo logement yow la. Hmm. yow miy jóge fu sori. Hmm. yow déjà kon codification sociale boobu noonu dañ la ko war a jox. Hmm. sans pour autant ñu xool ban parti nga bokk wala man ci nga bokk wala man bokkoo ci man. man de fi nga xamante ni maa ko jiite muy amicalu fac de droit. foofu dina am transparence et je sais que de moi aussi dans toutes les autres amicales dina am transparence mhm. cette année-ci mhm. te président bi rek moo am légitimité gérer loolu non non non c'est le président de la commission sociale mais le président de la de l'amicale le président de l'amicale c'est le président de toutes les commissions il doit superviser mais y a le président y a le président de la commission sociale yoo xamante ni ñoo gérer wàllu logement yooyu noonu ba pare euh, étudiant am fa jabar am fa doom est-ce que c'est c'est c'est un cadre propice pour jàng non étudiant am jabar am loolu amatul loolu amatul. amatul loolu mooy PM loolu mooy PM loolu tam Abdou Diouf la xewi. loolu loolu loolu am na am na pavillon bu ñuy tuddee PM. mooy pavillon mooy pavillon mooy pavillon mooy pavillon s'il te plaît. li muy wax ni moo doonoon pavillon des mariés. waaw muy PM. bi ba hmm. loolu amatu fa. amatu hmm. waaw loolu moom amatu fa maanaam hmm. étudiant bu ci nekk boo codifié am na ay décision yu nu jël. li may wax ni dafa am importance. ñun dañuy dem. dañuy dem suñu ay rakk di fa ñëwaat. Mhm. dama bëgg maanaam mesures yi nii autorités yi jël ci. ay ay ay ay mesures <laughs> yoo xamante ni mesures yu draconiennes la mm-hmm. njaayum néeg université dafa war a jeex mm-hmm. maanaam étudiant day codifier pédagogiquement njaay néeg moo loo ko tuddee mais yéen a war a porter le combat vous mais porter le combat taxawal parce que yéen tey jii bu ñuy wax ak kenn yéen la njëkk a jaaree mais porter le combat weesuwul mm-hmm. porter le combat weesuwul étudiant bu codifier ba pare jaay néegam waaw moom laa lay expliquer loolu loolu loolu loolu dafa dafa bëri da ngay codifier pédagogiquement am une moyenne de quinze waaw nga dëkk ci alentour yi. Mhm. parfois sax nga bind ko. waaw ni ki a besoin d'une chambre. Mhm. comprendre nga ñu woo ci suuf nga jaay ko. Mhm. dañuy jaay benn place lu cher. ñaata pour ay quatre cent mille. dañ koy jaayee néeg cinq cent mille dañ koy jaayee néeg. pour man état daf cee war a jël ay décisions li may wax nii am na ñum dul neex de. non que je le ah, man je see que de li may wax nii am na ñum dul neex. mais man boo ku ma gis ngay jaay néeg. muy autorité. muy étudiant man dama mm-hmm. lay dénoncer. Mm-hmm. j'avais écrit un article. Mm-hmm. le marché noir à l'université le secret de polichinelle. secret de polichinelle mooy lu ñëpp xam. ñëpp xam nañ ne université dañ doon jaay ay néeg. loolu c'est à bannir. ki nga koy jaay parfois sax du doon étudiant. parfois da ko doon jaay ay marchand ambulant. di ko jaay koo xamante ni il est dans le privé. comme ça mu nekk ci beneen école privée. ñëw bénéficier wu au détriment de l'étudiant bi nga xamante ni il au sein de l'université maanaam yii dañ cee war a wax waruñoo ñëw di ci raay raayal wala di ci xaritoo borom gàmmu gi laay laay laay laay beral loxo ni waaw l'idée va durer combien de temps d'après d'après toi yéen ak ak président bu bees bi ñun nag ñun nag ah, ñun nag président bu bees bi déjà lu ñuy wax rek mooy ñun en tant que syndicaliste en tant mm. que étudiant dafa am loo xam ni dañu koy xaar ci ñoom eh, te li ñuy xaar ci ñoom bokk na tey jii nii ci li nga xam ne mooy suñu ay conditions mm-hmm. d'hébergement mm-hmm. comme ni ko nguur gi fi nekkoon defee mm-hmm. yokkal ñu ay pavillon ñoom it ñu def loolu yokkal ñu ay pavillon yokkal ñu ay restaurant ba pare aussi li nga xam ne mooy question de l'eau à l'université dafa problématique université léeg-léeg day toog ay période yoo xam ni dafay ñàkk ndox ba ay camion citerne ñoo fa doon ñëw ñu régleel ñu ko ak aussi li nga xam ne mooy service médical bi gis nga université benn benn service médical xam ni daanaka hôpital am na lépp trois étages yoo xam ni pratiquement équipement bi demee fa noonu te loolu bu ñu ko équipé woon non seulement étudiants yi mais population sénégalaise ak dakaroise bi yëpp mën nañ ci bénéficier wu. Mhm. parce que bu ñu tëjee hôpital Le Dantec. Mhm. dafa am lu ci bëri ci ay médecins ak ay professeurs agrégés en médecine yoo xam ne dañ leen indi foofu. Mhm. donc foofu bu ñu ko équipé ni mu waree woon nu mu waree dina doon njariñal askan wi. boo paree loolu nga dem yi nga xam bi équipe li nga xam ne équipé amphithéâtre mhm. ak laboratoire yi donc aussi li nga xam ne mooy transport étudiants yi aussi c' est très important mhm. parce que étudiants yi mënuñoo loger mhm. nguur gi war ñu mën a organiser un tel sort un système boo xam ni dañuy am ay réseau de transport scolaire étudiants bi yëpp mënuñoo mais étudiant war na mën a jóge géejawaay wala Pikine wala Tëngéej am ay bus particulier effectivement ñuy ñëw di di jàngi si ak étudiants yi nga xam ne ñoo nekk faculté de médecine par exemple ñoom dañuy loger campus social mhm. war a xëy dem ñi dem fi nga xam ne mooy augi ñi dem dalal jàmm war def stage te amatuñu ay bus mhm. donc yooyu noonu yëpp aussi ñu ngi ciy xaar nguur gu bees gi en tout cas di wax ne ñun li ñu woote. bu amee daal ngeen continuer voilà ñun li ñu woote sax mooy un nouveau type d' étudiant. Mhm. un nouveau type d' étudiant ñun lépp lu ñu xam ne gis nañ ko nañ ko xam vous lui donnez un de grâce. Euh, non amul xam nga it. tey jii bu ñëwee rek jublu ci wax na daal non non ñun ñun war na it war na jublu si ñun. Mhm. nag lépp li nga xam ne tey jii nii ñu ngi koy defal réew mi ak it ni nga xam ne noonu lañ nekkee yaakaar ci waa réew mi. donc leen ko temps de grâce non may nañ ko temps de grâce mhm. parce que ñun rek nekkuñu fi wax dëgg yàlla mais aussi nous voulons faire partie des priorités de l'État parce que it ñun ñoo war a yor réew mi déwén ñoom fi ñu jaaroon moom président Bassirou Diomaye Faye son excellence suñu suñu suñu université la jaar donc di rafet lu loolu di wax ni loolu suñu sag la donc moom réellement xam na condition waa UCAD te loolu daf ko war a gestu bu baax donc def ko priorité. Mm. mu ko ci ay priorité am régler problème mu étudiants yi. mais est-ce que prestige boobu tey. dimbali leen ba rek euh, ngeen gaaw maa leen euh, mayaat cinq euh, minutes. à l'université parce que comme ni nga ko waxee léegi. université prestige la. comme ni nga ko waxee tey. ba rek Bassirou Diomaye Faye tey jii mi nekk président foofu la génnee le président ah, Macky tey jii foofu la mm-hmm. jàngee. Mm-hmm. mais on a vu le niveau actuellement de certains étudiants. Mm-hmm. est-ce qu'on peut s'attendre quand même à ce que université continue di nekk prestige. effet dafay dafay continuer université bu soobee yàlla dafay continuer di nekk prestige xam nga lu koy lu koy waral mooy tey jii nii boo ñëwee université Cheikh Anta Diop y a des têtes tellement mais gis nga lu doon nekk problème bi après mooy la fuite des cerveaux loolu aussi foog ñu bàyyi ci xel gis nga université dañ doon ñëw tey jii nii ku am benn bag bi looy def da ngay génn réew mi boo nekkee université aussi di jàng yéen nekk ci benn lancé bi après lan ngay def da ngay obligé dem à l'étranger foofu aussi dañ ciy interpeller nguur gi ñu xam ne maanaam toog fi tekki fi ci étudiants yi war na mën a nekk il faut réellement penser à cette insertion professionnelle des étudiants ñaata diplômés chômeurs ñii ay licence dañu am ñii ay master ñii ay doctorat ñu am loolu kooku wax du ko gëm mais yaa ciy teg sa bët. mais pare ngeen quand même pour wàññi grève yi. parce que gis nga euh, euh, lu ñu mën ci wax vous êtes les perdants. effectivement tey état bi nga xam ne moo tax ngay grève mhm. ñoom ñu ngi continuer di doxal. effectivement enseignant yi nga xam ne tey amaana moo tax ngay mhm. grève ñoom chaque fin du mois. Mhm. dañuy percevoir seen salaire. alors vous vous êtes les perdants. est-ce que tey jii amoo leen benn changement boo xam ne war ngeen ko apporter comme rupture ngeen woote ba yàlla teg fi Bassirou Diomaye Faye. mooy li ma lay wax ñun lu ñu woote tey jii nii. mooy nouveau type d'étudiant. loolu bu ñu ko dalee woote président wax na ko léegi mooy bu ñu demee ci assises yi. les 26 et 27 octobre. gis nga bi ñu demee ci assises yooyu noonu. dañoo jël ay réformes yoo xam ni gis nga autorités yi bu ñu ci intransigeant wul ñu maanaam teg réforme yooyu noonu tey jii nii di gis leneen université. di gis ay étudiants yu bees tax étudiants yoo xam ni jàng la ñuy def. wàcc ñibbi di am seen ay moyens di jariñ li nga xam ne mooy. askan waaw la moo tax ngeen taal ordinateur yooyu. non taaluñu taaluñu taaluñu taaluñu taaluñu ordinateur. xam nga étudiant étudiant kuy yàq alalam. dëgg-dëgg ki nga xam ne moom alalam lay yàq kooku ñun jàppee ñu ko sax étudiant. bu bii Pape Sidi boo mu mayee rek benn mea culpa rek benn mea culpa parce que dafa am foo xamante ni dama fa mel ni ku juum. Hmm. mooy ci wàllu bourse yi. Hmm. dama am loo xamante ni aussi boo ko waxee rek. ndax xam nga habit langage mën na ma mën na ma topp parce que état du Sénégal mu ngi fay quatre-vingt-deux milliards mhm. ci ay bourses mhm. quatre-vingt-deux milliards ah, xam loolu c'est mhm. énorme te it euh, retard bi parfois day des ci diggante scolarité bi ak direction des bourses ndax moom bu jotee rek day fay donc loolu ndax léegi mu ngi wax attente yi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci nouveau régime bi état jàmbar la ci payu bourse mi parfois nag étudiants yi duñ am patience nag bourse bi mën na tardé ñenn ñu duñ comprendre mais ñun ñu nekk ci kaw. Mhm. danañ comprendre lan la retard bi mën na bañ a doon ci état. Mhm. mën na bañ a doon ci direction des bourses. day doon loo xamante ni c'est purement technique mais dañ leen di ñaan rek ñoom ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ci nguur gu bees. ndax ñun lépp loo xamante ni du wàllu social du wàllu pédagogie vraiment euh, duñ ko xeex. Mhm. wàllu politique moom dafa jeex université. loolu dafa bokk ci mesures yi ñu jël te mesures yooyu nag ñu jël je pense que le président Bassirou Diomaye Faye bu ñëwee moom it ñi mu fiy teg dañ ko war a appliquer tey ñi nga xamante ni moo doonoon directeur des bourses directeur du COUD autant pour moi mhm. le recteur les représentant du des ministères yi nga xamante ni dañoo laal université mooy ministère des finances ministère de l'enseignement supérieur ainsi de suite mhm. tey mesures yooyu noonu ñu jël je pense que dañ ko war a respecter à la lettre bu ñu ko defulee rek la ñu luye woon téeru bi def fa ay mbir leneen ak leneen perte lay doon te wax dëgg fa yàlla c'était des mesures très importantes. en tant que président vous n'avez aucun contrôle sur les étudiants s'ils veulent. Euh, barrer l'avenue Cheikh Anta Diop kenn mënu. ankay ankay non loolu dinañ ko mën. xam nga loolu li koy mën mooy la bu leen grève bu ñu non non non non non bu fekkee ni. suspendre nañu mouvement yi rek étudiant bi nga xamante ni moo jiite. moom di diriger loolu dina mën a nekk mais dangay gis yow nga doon kilifa biir université teg sa mouvement sàngam yow yaa leen di dooleel ci suuf. Mhm. ni président sàngam mu ngi sema wala mu ngi def leneen ak leneen université dafa am ay termes yoo xamante ni dañ ko fa war a jëlee. man ça me fait très mal parce que dañuy jël ñëpp ñu dugal leen ci benn saaku. yow tu veux un campus on veut léegi man monsieur Diallo question bi ma bëgg a laajte. très rapidement la dernière question balaa ñu dem ci waxtaanu Serigne mm-hmm. bëgg Serigne Babacar Sy ba pare bëgg di waxtaane étudiant question bi gàtt da ngeen di wax <laughs> euh, le président Diomaye ci ay discours mu ne dafa bëgg def césarienne mu nekk gratuite. Mhm. est-ce que loolu yow yaakaar nga ni ne yomb na réaliser fii ci Sénégal. Mhm. non loolu loolu yomb na yomb na réaliser parce que lu mu wax ni dafa bëgg def euh, césarienne gratuite sax boo xoolee mun nañ ne c'est presque gratuit. Mhm. c'est presque gratuit. presque laa wax. ah césarienne fii fii c'est presque gratuit ci li nga xam ne mooy. hôpitaux hôpitaux publics non ci privé bi. ci privé bi mais ci public bi c'est presque gratuit. voilà kit bi rek ngay jënd c'est presque gratuit donc loolu noonu moom c'est c'est bien réalisable. Mm. donc aussi benn dernier appel bu ma koy lancer mooy aussi il faut passer au désengorgement de parce que boo xoolee UCAD problème yi mu am yëpp mooy. UCAD ngay wax yokk quatre-vingt-treize mille étudiants la am. <laughs> imagine quatre-vingt-treize mille étudiants loolu dafa bëri. Mm-hmm. war na moom aussi dès le début de son mandat. donc tabax li nga xam ne mooy ay <laughs> université yu bees. ay centre de formation professionnelle di fa yóbbu étudiants yi pour pour désengorger l'UCAD te it ci problème logement bi président wax na ko léegi gis nga ba ñu demee assises te ñun étudiants yi ñoo fexe ba assises yooyu am te ba ñu fa demee lu ñu proposé mooy gis nga li nga xam ne mooy quota yi nañ koy yokk yokk quota pédagogique bi wàññi quota social bi nga xam ne foofu méritocratie dafay gën a dugg étudiant bii mérité logé tey dama ciy profité di wax gis nga mesures yi ñu jël mhm. autorité bi bés bu ko appliqué dina xam ne tey jii nii l' étudiant étudiant étudiant sénégalais bi <laughs> amul morom amul morom su dee appliqué nañ mesures yi ni mu ko waree ñun ñëpp ñu ànd ak président liggéey réew mi te te xam ni suñu réew la loolu loolu loolu moo am solo alors man sama question am très rapide waaw très dama leen koy boole euh, ñoom ñaar alors d'après vous en tant qu'étudiant euh, les événements de mars tey boo leen ci amoon xëy na benn njàngat boo leen ci mën a njàngat parce que gis nañ ni boobaat léegi ci lañ tëjoon euh, lii di université euh, boo leen amoon benn jàngat boo xamante ni tey moom ngeen di jàngat ci xew-xew yooyu noonu amoon lan lay doon aussi nag euh, voilà pour savoir raison garder bu nekkee tamit am na am na am na xëy na toor boo leen di joxe ci ban ngeen koy joxe. yéen ñaar question bi. allez-y président waaw bon <laughs> jàngat bi mooy euh, on l'a toujours dit la mais politique ne doit pas guider. Mm les activités pédagogiques. université politique moo ko tëjoon politique it moo ko tijjiwaat. Mm-hmm. loolu on l'a toujours di et on a été constant. université autorité politique yi ki ci kaw ñoo ko tëjoon. Mm-hmm. c'était des décisions purement politiques. loolu nag demoon na. discours boobu noonu ñu doon tëral di ko wax chaque jour demoon na ba utal ñu ay noon ci biir ñi nga xamante ni c'était des politiciens jàpp ni ñun sax dañu faroon Pastef. yow Pastef nga. non tel n'est pas le cas mois je ne suis pas de Pastef. <laughs> je de Pastef. vous de quel parti. non bokkuma benn parti politique. vous hmm. bon je peux pas dire apo man je fais de la politique mais autrement. et ñëpp loolu la ñuy wax. mais kon yow voté woo. non voté naa. ah mais kon am am na koo nekkal. no am na ku ma nekkal xam nga am na ku ma nekkal mooy lan mooy ma ñëw di battre campagne pour yow wala may wax nit ñi ci suuf ni leen dee leen voté. lu tax su ma leen santee benn loolu du ngeen may dégg ma déggal. waaw dégg leen président mu wax. ba pare loolu kenn loolu du ko def président Alizé loolu du ko def parce que man amical bi ma jiite dama jiite waa APR jiite waa PASTEF jiite waa réew mi jiite waa jiite waa jiite koo xamante ni bokkul ci benn parti politique. léegi ñoo ñu ma jiite man bu ma jëlee benn parti ni fii laa far rek. fësal ko do hmm. pas fësal ko dama ko dul def. du ma ko fësal dama ko mënul def man faruma fenn te it ñi nga xamante ni aussi ñoo jiite woon njortoon naa ni tamit noonu lañ doon doxe <laughs> donc li ñu jiite ay intellectuel lañ jiite woon. jiite wuñ woon ñoo xamante ni wax dëgg fa yàlla danga naan ay mouton de Panurge la dañ naan leen def leen nii ñu def ko dañ naan leen bu leen def nii duñ ko def donc jàngat bi ñu ci def. mooy université neuf mois yi nga xamante ni toog na ko fonctionné wul. vraiment neuf mois. neuf mois je vous dis juin ba mars. Hmm. neuf mois la. c'est beaucoup. donc loolu c'est beaucoup. compter les mhm. vacances aussi non amuñu woon vacances parce que doon nañ def ay cours en ligne def nañ fi ay examen yoo xamante ni nii à distance ñenn ñi lañ ko defee ñenn ñi en présentiel ce qui n'était pas du tout normal. et distance bi du ñëpp ko d'accordoon ñun ñi d'accord baal leen ma amul solo relancer bi nga ma relancer am na ci solo ma ñun mësuñu d'accord distanciel bi parce que am na ay conséquences <laughs> conséquences yi mooy am na étudiants yoo xamante ni jël nañ gaal gi dem ñàkk fa seen bakkan loolu def nañ ci ay photo am na ci étudiants yoo xamante ni abandonné nañ seen ay études am étudiant boo xamante nii pour mu def concours vingt cinq ans la war a yem dépassé vingt cinq ans étudiant boobu mënatul def concours léegi am na concours yoo xamante ni boo koy def va falloir que nga am benn diplôme boo jot mu bokk ci pièce à fournir yi étudiant boobu noonu 2023 mënul jot pièce am donc état lim ñu teg dafa metti moo waral étudiants yi sanctionné leen bu fekkee côté infrastructure ñu ngi saluer li président Macky Sall def mhm. ñun on est très reconnaissant. mais lan moo tax ngeen toog ba heure bii di. Eh, mu def eh, on l'a toujours di Kumba. on l'a toujours effectivement man maa taxaw nii am président soo ma mayee ma ñëw foofu. ah mais ñun ñun président ma comprendre ngeen toog di xeex di xeex di xeex. gis nga Kumba tey ñu ñun président. ñun ñun laata ñun ñun on est ko. Kumba man Kumba man sama première sortie bët bu rusul toj voilà sama sama première sortie Kumba sama première sortie waa parti Pastef dañoo jël li leen ci intéressé mooy premier juin bi mu amee dañoo jël li leen ci intéressé mhm. ci événement yi ni ma ko doon retracé ñu statu ko waa parti au pouvoir muy APR jël ñoom aussi parti bi leen intéressé ñu dagg ko. ñu statu ko. cest à maa ngi doon saluer li nga xamante ni président de la république Macky Sall daf koo def. lii ma doon wax léegi léegi te régie bi génne woon ko moo doon euh, martyr bi nga xamante ni tey yàlla dafa dogal ñu ñu ñu boomoon ko euh, fi nga xamante ni moo doonoon Kigali au Rwanda. mu doon le capitaine mbay Diagne mu doon koo xamante ni Sénégal dañ ko dañ ko fàtte woon mais président Macky Sall bëggoon ci joxe exemple de de de de d'altruisme ci jeunesse bi que ni wax dëgg fa yàlla Mbaye Diagne malgré son jeune age moom il a porté les couleur du Sénégal euh, au-delà du Sénégal ci naka mooy Rwanda am na génocide bu fa amoon mhm. mu fexe ba sauver plus de cent personnes tey foofu noonu lañ ko boome en 1994. Mhm. ñu defaral ko tey fii benn mémorial président woo na si ñun étudiants yi woowaale ci service euh, société civile nationale bi mu ñu ci woowee on avait profité de l'occasion pour lui dire que mais vous nous avez offert un joyau ay pavillon yoo xamante ni de dernière génération la mhm. pavillon yoo xamante ni da ngay budget pour dugg pavillon yoo xamante ni maanaam boo duggee da nga koy jaawale ak hôtel étudiants yëpp ñu ngi koy statut di ko ci gërëm pavillon yooyu nag lañ ko doon wax ngir moom mu ñëw inauguré pavillon yooyu noonu avant muy dem ngir étudiants yi tamit sargal ko président waaw président kon pavillon yooyu je sais que beaucoup d'étudiants aujourd'hui ils ont l'âge hein c'est des jeunes euh, ils veulent euh, aller de l'avant et vous avez peut-être des informations que vous détenez en venant ici que vous pourrez euh, partager avec les Sénégalais pour que étudiants yi war a ñëw UCAD wala yu war a mm-hmm. dem feneen ñu mën a xam ban posture la ñu war a adopter vous allez nu donner ces messages après li ñu bëgg a waxtaane Serigne Babacar Sy on vous invite à être nos invités VIP bu ñu commencé nag wax dëgg yàlla mhm. amul dagg Abdou Aziz naan ko Abdou Aziz bi Serigne Babacar Sy demee foofu ku mu fa fekk sauf <laughs> yàlla ah, dañuy gàmm gàmm day ànd ak déglu mhm. Abdoul Aziz Doucouré waa Sénégal yëpp yow la ñuy déglu boo ma mayoon ma may xaalis mais boo boo taxawee ba sa tàng yaram barki sëñ Babacar si téléphone bu dugg ma may ko ñaar fukki junni. kurus gi daawalal sunu yaram kurus ah, Aziz dugal. jooylooñu. jooylooñu bàyyil di wax li wax kurus gi. ah Pape Sidi. ma jël ma kenn Abdou Aziz. ñu a ma la ilaha illallah. barki sëriñ Babacar si. Eh, radiyallahu taala tama tama yaram. alors loolu. barki sëñ Babacar. jox ma. Sidi Gueye Fa Demba ñëwal bisimilah allo. merci beaucoup. 88 676 08 08 ñu ngi waaj a tagg ku mag ku mag ñu ngi waaj a tagg tagg xalifa général mhm. Abdoul Aziz yaa ngi jox ku am jom tàmbaleel yaa ngi jox ku bëri tiitar yow yaay borom leer yi mam xalifa Babacar Si ma ne yow yaay borom leer yi mam xalifa Babacar Si jël naa Abdou Aziz ma ubbi la ci mam xalifa Babacar Si jël naa li mu yaroon la maanoo xalifa Babacar Si jël naa Abdou Aziz buy waxtaan kontaan ci maam xalifa Babacar Si jël naa da dangay kontaan ba nga bëgg yow ci maam xalifa Babacar Si jël naa Abdou Aziz buy waxtaane maam xalifa kër si jël da ngay bëgg yow mbaa nga kontaan ci maam Khalifa baaba kër si jël naa man borom leer yi maam baaba kër si jël da doomi ndar ndar la Mawdoy baayam Roxoyatu Njaay Lingeer la waalo waalo la mbay mil tiibi yee maam Khalifa sa jamono beneen xalifa amu fi maam xalifa ku déedéet man yow yaay borom leer yi maam xalifa Babacar Si jël maam xalifa ay way xalifa yow yaay borom baax maam xalifa Babacar Si jël na man yow yaay borom laax maam Xalifa Babacar Si jël na wa innani qad kuntu min ahli ndaari ahli ndaari wa maskani bi gala daari andaari ri andaari isnaani arbauna qul dhaka al adad li numrati daari iza rumtal madad rumtal iza rumtal madad rumtal iza rumtal madad rumtal iza rumtal madad rumtal imam khalifa Babakar Si jalna yaay sangu bu borom leer imam khalifa Babakar Si jalna samedi ba samedi la daan watu dàq ah. fi raw fi ma boy yàqu fi yàqu fi yaay borom leer kër imam xalifa Babacar Si jël na ndam la fii ja tuwa Muhammadu Mansour mana uufal Allah ji kooku mooy baayu sëñ may Mansour mana uufal baay tey la anniversaire lu Muhammadu Mansour mana uufal baay Muhammadu maam ey sëñ may Mansour mana uufal baay mani tey la anniversaire lu Muhammadu Mansour uufal rakki sëñ Babacar Si mooy Mamadu Mansoor mañu uufal ba acca araftul wara sarxan wa xarban wala ara kamisli baxal Mansoor fi saa'iril wara iza stabaxal aqwaam yawman ilal ula yakunu imaman fil wara walwara walwara walwara walwara Mamadu Mansour mañu uufal Alaaji kooku mooy baay sëñ Bay Mansour mañu uufal baay aca Pap Sidi lay waayal Mamadu Mansour mañu uufal baay kon inni xaalaftu bi rabbil bayti ah, waaw maa in raaytu fatel fi naaka Mansour najli imaam هما من حاج مالك زي شيخ المشايخ مخيري ابني مخيري ابني محمد منصور مدعوف الله باب سين باي انصر الله وخلل لن وخ في جدوى ووي ماودا عبد العزيز باركي سيرن بابكر سي كي دي ووتة ñaata nga bëgg ma may ko ah kii di woote ñaata nga bëgg ma may ko teng koo jox cent rek. cent wala cinquante. wala waa jox ko cent. ma jox ko ñaar fukki junni. fukki junni yonent bi fukki junni sëñ Babacar. muy cent. allo. allo oui. yaa ngi doon dégg. maa ngi doon dégg waaw. ñaata la wax. cent mille franc la wax. déglul sa téléphone léegi. mani. allo oui. ndax yaa ngi doon dégg. maa ngi leen doon dégg maa ngi nii di leen. seetaan xoolal sa téléphone ndax am na 100000 francs ci barki Serigne Babacar Sy. ah xaaral ma xool. xoolal bu baax. faut bien regarder. xoolal sa téléphone ndax jot nga 100000 francs ci barki Serigne Babacar Sy waaw waaw jot naa 100000 francs. jot nga sax noo tudd yow sax noo tudd. maam Jaara Buso laa tudd. maam Jaara Buso Poroxaan. ci barki Serigne Babacar Sy jox nañ la ñaar fukki junni. gudd leen fan waay. même Marie Thérèse bu duggoon ñu jox ko cent mille francs ci barki sëñ Babacar Si. waaw waaw. mais paa bi boo généreux. jërëjëf paa bi merci beaucoup tey tëdd woon di may xaalis ba léegi. mais paa bi saa yoo waxtaanee ba sa tàng yaram nga bëgg a joxe addee Serigne Babacar Si woo ma ma jug joxe te tibb ma joxe. waaw Pape Sidi ñoo ngi nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp ci beneen yoon di sant Abdou Aziz baax a baax ci way yi xam naa nag kii nuy bëgg a wax mëneesu koo wax ci am at mënee su koo wax ci ay weer mënee su koo wax ci ay semaine mënee su koo wax ci bis mënee su koo waxtaane ci guddi mënee su koo waxtaane ci ay waxtu mënee su koo waxtaane ci waxtu kon loolu li muy tekki mooy mënee su la waxtaane sëñ Babacar si radiallahu anhu ngënk mu ni toll ci jamono bii ak li des ci waxtu wi mhm. waaye luñ ci juqat-juqatee rek mu doy ñu doyloo ko ngir yàlla ak xam kan mooy Cheikh Seydi Aboubacar si radiallahu anhu naa la wax nag wax bu gàtt ku ni la maa xam sëñ Babacar maa ko mën a wax daa juum war a wax ok Cheikh Al Khalifa du ku mbindeef di xam sëñ Babacar nit ku ni la xam naa ko rek waxula lu wér déet déet da nga naan am na lu ma dégg ci moom wala am na lu ñu ma wax ci moom wala am na lu ñu ma jàngal ci moom wala am na lu ma xam ci moom mais Cheikh Al Khalifa du ko nit di xam fii ci déndu àdduna bi déedéet Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli leeru bàmmeelam moo wax ni pour ñu xam sëñ Babacar faw yàlla dekkal jaam ñi ba ñëpp taxaw ñu door a xam kuy xalifa mais ci dund bii ñu nekk ak ci dénd bii mu ne mënuñu fee xam sëñ Babacar si bi mu ko waxee dafa am génn góor gu ko wax ni ko Cheikh Tidiane yaa ngi may bëgg a yéem nag ndax man fekkewuma jamono sëñ Babacar te xalifa rek laa bëgg samay doom fekkewuñ ko te moom rek lan bëgg fu nu toll moom la ñuy waxtaane nga ne xamuñu ko te munuñu koo xam te yàlla dekkalul jaam ñi loolu nu mu mën a nekkee Serigne Cheikh ni ko soo demee ci kër fekk fa nit jigéen muy togg la muy togg di ndawal mu ni maanaam lu mu tëj tëj la muy togg xet gi dina génn am ñum xeeñ mu ni xet googu di génn di xeeñ mooy coow li ngay dégg ci Seydi Aboubacar Sy mu ni waaye ndawal li ba léegi kenn laalagul ndax kenn jotu ko ji kañ lañuy jot ndawal li mu ni bu yàlla dekkalee jaam yi Pape mhm. doomi soxna Roqayatu Njaay ji la ñuy waxtaane doomi soxna yee Njaay di ko waxtaane dégg nga bete bete ngeen foofu yéen ñaara ah? dama ni doomi soxna roqayatu njaay ji la ñuy waxtaane doomi soxna roqayatu njaay koy waxtaane damay wax toujours ci ci kàddu yu gàtt ni bokk na ci li ñu war a njëkk a calculer avant ñuy dem ci sëñ Abubakar mooy ki indi kër si nan la def ba indi kër si soxna roqaya njaay ma jur dong doyoon na garaat ci sëñ Babacar ndax am na nu doom di mel ndey moo koy def ci moom doom ju baax dee su ko am te jënduloo ko prix ba nag daa am ñu ko am ak ñu ko amul soxna Roqee daa am njëgu sëñ kër si moo tax mu am sëñ Babacar si ndar la dëkk Cheikh Al Hadji dëkk gaaya El Hadji Malick dem ndar di jàng xam-xama ko yóbbu ndar Maodo di jàng ak di jàngale di jiite di jubbanti ak jub ba pare di jubbanti waate parce que dafa am dafa am dafa am loo xamante ni pour nga duut ko baaraam ci nit. Mhm. li nga war a njëkk a mooy ñaar ñi fan lañu ñu ko ak kan moo leen indi doomi diwa nga nee di dem saa yoo ko déggee am na lu baay baak ndey ja participer ci moom mhm. waaye kii mooy diw kuy ndeyam ak baayam ci ci doom ji lañu war a jaar pour xam ndeyam ak baayam mhm. xaw ma ndax dégg li may wax guy dox sa résultat wu sa ndey sa baay nga voilà dama ni waaw kii doomi diw la kon maanaam am na lu ndeyam ak baayam participer ci tu waa baatu doomi diwa waaye kii ku ko jur bu ñu ko waxee kon di xamaguñu ndeyam xamaguñu baayam mais moom am na nu mu mel nu ñu war a jaare pour xam ndeyam ak baayam ndax ni mu mel ci la ñuy dëgg ba wax ni ki jur kii war naa nekk ku yéeme merci Fatima Nescafé moo tax ma wax ni sëñ Babacar si soxna Roqaye Njaay rek ko jur doyoon na garaat ci Cheikh Al parce que soxna Roqaye jigéen la woon ba pare di jigéen bu am xam-xam li muy bari bari xam-xam da ko boole woon ak jig ko waaye jikkoy sang jooju mu yoroon ak xam-xam bu sell boobu mu yoroon moom Cheikh Seydi moom Soxna Roqaya Njaay te te teewul woon ni jigéen ñépp meloon ci Soxna Roqaya meloon noonu waaye li daloon Seydatuna Khadija ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo dal Soxna Roqaya keroog bi mu déggee kàddug Cheikh Alhaaji Malick Khadija bi mu gisee yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da koo gis rek tàqali koog sagoom daal di woo ab xaritam bu ñuy wax nafisatu ni ko xale bi ma gis biir màkk xaw ma ku ko jur waaye bëgg naa ko lool ndax bi ma ko gisee cofeel gi ma yëg ci moom ëpp na ma doole nafisa ni ko nu mu mel mu ne ko xale bi daal boo ko dee xool doo ko ñemee xool bu baax ndax leer gu ëpp bët yaa nga rëy lool per baa nga ñuul kukk la ko war a nga weex tàll loos waa nga gudd gis naa ay ndombay baat di ca daw karaw gaa ngay daanu ca digg ginnaaw ga xale bi buy dox day mel ni ñaari tànk yee ànd te fu mu dëgg doo ko xàmmee xaw ma nag ku ko jur mais li may yëg ci moom jéggi na dayo Nafisa ni ko xam naa ki ngay wax Muhammad la doomi Abdullahi ak Aminatu la xale baa ngi tukkal àdduna ku ko gis tàqalikook sa sago Xadija ni ko nu may def ba jot ci ci gàttal Nafisa ni ko li ngay Nafisa ni ko xale bi du siggi du wax ak nit te ñi muy jaxasool bariwul bu mbooloo toogee day beru jaamam bi mu nekkal moo ko jox xalaatu da ngay fexe ba financer jeunes yi soo financer ndaw yi moom dina ci bokk te bu bokkee ci ndaw yi yi ngay financer di nga am alaaka boo bu dox seen diggante nag koo liggéey loo wax ak moom te booba yëg na ni Moustapha borom jom la te borom jom day am lu muy jomm yonent musul wéeru ci ginnaaw kenn moom yonent yàlla Muhammad donte booy sangu àdduna ak àllaaxira mais booba day sàmm di ko fay maanaam day dajaleeg jur di ko yóbbu di sàmm di ko fay ci gàttal ci financement bi Khadija def ci la xamante ak yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. ak ya ca xew yëpp comme taxuñoo jóg waaye dama ni loolu nag moo dolo moo daloon soxna Roqeya keroog bi nga xamante ni jàk dégg na kàddug Cheikh Seydil Haaji Malick dafa dem ci benn càmmiñam wax ko ni ko am na góoru tukkulóor gu ma dégg muy jàng alquran dégg naa ko bi mu paree muy waaraate waaye li ma gën a yéem mooy kàddu gi may dégg ci góoru tukkulóor gi dafa mel ni luy jeexital ci sama jëmm càmmiñ li muuñ ni ko roqee xam naa ki nga dajeel Malick Fa Wàdd la ni ko ndar gépp a ngi koy coow ci alquranam ju neex ak dëggoom ak xam-xam bu bari bi mu àndal comme jigéen ñaare ba ci charia dañ lay wax ni sa doom boo koy mayee boo ko laajee ndax bëgg nga bu muuñee mbaa mu reetaan ñu ni jarul continuer bëgg na waaye boo ko laajee ndax bëgg nga mu noppi te waxul dara ñu ni jarul continuer bëgg na mu ni waaye boo ko laajee ndax bëgg nga kanam nga soppeeku mbaa mu am beneen melokaan ñu ni la teeja soxna roqee nag bi càmmiñ li waxee moom gis mu muuñ mu ni ko roqee daa mel ni li may njort moo la dal de càmmiñ laa jóg dox diggante ba dem ci dem ci njaatige ba fa indi ba fa Cheikh El Hadj nekk loon wax ak moom ci gàttal ba ñu daganal diggante soxna Roqayatu Njaay ak Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu mi war a nekk waajuru Serigne Babacar. mi war a jur Cheikh Seydi Aboubacar si. te booba soxna roqee jigéeni ndar bu ñu leen dajalee ñu ànd di dox boo dee wàññi ña ca dàq soxna roqee ngay njëkk tudd. Mhm. boo dee wàññi ña ca ëpp xam-xam soxna roqee ngay njëkk tudd. boo dee wàññi ña ca gënu askan soxna roqee ngay njëkk a tudd te ñett ñooñu Pape Sidi jigéen ju mu nekk ci yow boo amul chance lool lool da ngay lamb maanaam jigéen ju mu ne ci yow boo amul chance lool da ngay lamb taar bu jéggi dayoo ba ku la gis xam ni dangaa taaru ñaari jigéen joo ko fekk mun la ko ana monsieur. boo ko ne ana monsieur mun la j'ai divorcé wala j'ai pas de mari. ana monsieur ci waxin. yaa ngi dégg ñaare jigéen ju bëri alal joo gis boo ko laajee li ci ëpp mën na laa tontu loolu ñaare jigéen ju bokk ci askan wu rëy li ci ëpp ku ñëw danaan kii du maag moom ndax nawloowuma ko kii àttanuma kii nangam kii nangam kii nangam boo moytul looloo ko fay lambaloo ba jëkkër ja romb ko dama ne nag ñett yooyu yëpp daa daje ci soxna Roqe ba pare mu nangoo sëy ak taalibe am doxandéem boo xam ne xamul fu mu jugee xamul waaw kay ñëw ñëw ndar xamul ndayam xamul baayam xamuti mbokkam mhm. mais li ko ci neex mooy yàllay kese lay wër te yàlla jooju yëg na ko ci Alaaji Malik am xam am taar am xam am taar bokk ci askan wu baax am juddu bu rëy am juddu bu rëy ñu ni kii di Malik faa wadd moom xamul way juru Alaaji Malik wu góor xamul way juru Alaaji Malik wu jigéen xamul menn mbokkub Alaaji Malik gisul ak Alaaji Malik dara lu dul dégg na alquran ju neex ji Malik wax mu yëg ni moom soxna roqee góor bi mu soxla ci àddunaam mooy góor bu tedd te maa liggéey ku tedd ki wallahi bi ñu leen boolee dafa am ay mbok ay moroomam yu mu daan àndal ñoo ñoo xëy rek ñëw ganesi ko roqee kuy sa borom kër kii mu ne waaw ñu gis Malick ak yarbaak tekk ja ak njoolaay ba alaaji Malick ku rafetoon la Cheikh Alhaaji Malick bu la wanee ginnaaw dangay te gisoo kanamam ci ngay yëg ni ku taaroo la romb boo jàkkaarloog El Hadj Malick ñemewoo woo koo xool jàkk ndax kersa gi ci Malick lexam yu tàllalu yooyu sikki moom bu xaajaloo boobu buy dox di xool ci suuf moom El Hadj du teen te du faqasalu mukk fees del la xam-xam ba pare ni dégg soxna roqee ni leen lu leen ci jaaxal ñu ni ko dara danoo xam ni rek ni nga mel waroon ngaa wut boroom alal gouverneur yi fi nekk bëgg la borom alal yi fi nekk bëgg la borom daraja yi fi nekk bëgg la amoon lenn looy def lu dul ngay dugg ci doxandéem bi waaw ah, yàgg na ci réew mi. Ah, wallaahi damay wax ne lu way yi neex neex. lu way neex neex bu mu tax ñenn nat ñi nga dem seen kër dun la may jabar te ñoom duñ see yow xam nga lu tax dañoo seenul ci yow yont yàlla koppar bi nu soxla te ñun suñu réew yont yàlla koppar moo fi dominé. waaw ah, moo fi moo yor doole sunum réew. ku ko yor baax ku ko yorul mën nañ laa sikkal yooyu ñu ko doon def di ko saboote soxna ya ak dignitéem ak dalam munu ko wax Cheikh Alhaaji Malick waaye am na bëccëg bu mu génn rek bi mu ñëwee kanam gi xaw a suppiku mel ni lu ñagas Cheikh Alhaaji Malick ku ku ku amoon yërmande la te yiw Maodo di ko xool ba mu yàgg mu ne ko waa Roqaya mbaa jàmm sa kanam gi suppiku na de lu xew mu ne ko Malick du dara mu ne ko aha kay dara la kay wax ma lan la rek mu ne ko jigéeni ndar ñi ñoomaa yëjj yëjj mooy reetaani saboote mu ne ko lu xew bañ lay yëjj mu ne ko danoo wax ni ki nu ma may doxandéeb la xamuñu ay bokkam te beneen bi ci des yorul alal loolu la ñu may ñaawale waaye tiwuma leen ci waxin Cheikhul Xaaji Malik ni dënn ba mu yàgg Aziz naa la wax nag li yàlla bind taalibe ci ëpp jom mm-hmm. waxuma ko naan taalibee la te du taalibe mais dama li yàlla bind taalibee ci ëpp jom li yàlla bind taalibe ci ëpp jom bu yoree milliard mën na la koo jox toog bu yorul dara nag noonu lay ñëwee tegalee tànkam te fas yéenee lekk lam lan lekk bi mu yoree milliard moom noonu lay dundee. waaw taalibe taalibe noonu lay dundee bu yoree day da ngay xam ni yor na day ñëw rek noos jox la lépp nga noos waaye bu yorul day ñëw tegalee tànkam di xaar ginaar yi démb noos si day noos waat noonu lay dundee. taalibe mel noonu taalibe mel noonu. Cheikhul Xaaji Malick ni dënn ba mu yàgg alal ji mu defoon ci waxande wi. mu nekkoon toolam bu mu bay dencoon ko pour jëndaat jiwu moom la dem fecc moom Cheikhul Xaaji Malik ñëw toog ak soxna yi ni ko Roqee ndar day maye nañ fi jigéen ñu bari waaye ki ci ëpp lu ñu ko may ci alal ñaata lañ ko may ci alal mu ko ki ëpp lu ko may ci alal may nañ ko ñetti téeméeri ngurdu ñetti téeméeri ngurdu lañu ko may moo fi ëpple mooy li ñuy coow Cheikh Malik daal di fecc morso ba génne ñetti téeméeri ngurdu ni ko am soxna Roqee ni ko lii nag mu ne ko damaa bëgg nga wan ko say mbokk bañ xam ni Malick miñ la may du du góor gu ñàkk jom soxna Roqay ni ko bu ma leen ko wanee pare ku ko moom mu ni ko yaa ko moom can borooma ko moom su ko neexee jaay su ko neexee taal su ko neexee maye su ko neexee gas suul soxna Roqay dem wan koy mbokkam ba ku ne commencé sar xolle mu wàññeeku Roqay foo jëm ak alal ji mu ni maa ko moom xam naa li ma ciy def <laughs> ñëw fekk Cheikh Malick fi mu toog mu ne ko Malick lii de yaa ma ko joxoon te du maa ko moom lew na ma doom mu ne ko waaw mu mu rocc benn téeméer ba jox ko Cheikh Malick ni ko lii pour lan la mu ne ko dama ko fasanteeg yow kóllëre mhm. sama diggante ak yow téeméer bi maa la ko jox fasanteeg yow kóllëre daal di rocc beneen téeméer ba jox ko alaaji Malick ni ko lii nag mu ne ko taalibe day joxe addiya sëriñam te aw ma kenn ku ku ma def sëriñ ku dul yow yaay sama sëriñ téeméer bi maa la ko jox addiya mu des benn téeméer mu ne ko téeméer bii ci des nag Malick joxuma la ko mayuma la ko dama la koo jox weexal nga ñaanal ma doomi nitu yàlla joo xam ni day mokkal téere yi mokkal li ci ginnaaw téere yi Cheikh Alhaaji Malick teg xaalis ba ni ko dinaa la ko ñaanal soxna Roqaya génn Maodo jël xaalis ba dugg ci marché Ndar bi dem jënde ñetti téeméer yëpp ay téere ci jamono boobu téere ya bari lool ba Alhaaji Malick xamul nu mu koy def mu wut puus puus teg ko ci naar bi puusal ko ko ba ci ëtt bi mu ne ana roqee mu ne ko maa ngi mu ne ko kaay mu génn mu ne ko tàllalal basang gi mu tàllal basang gi alaaji Malik jóor ci téere yi ni ko roqee xaalis bi ma joxoon moom laa jëndee téere yi ni ko li ma wax ni ma da bëgg ma ñaanal la doomi nitu yàlla ju mokkal téere yeeg li ci ginnaaw téere moo tax ma jëndee ju ko ay téere di ko jóor ko Roqaya sa jëfi tey ji yal na la yàlla may nitu yàlla boo xam ni kenn du werante wilaayaam te dana mokkal téere yi mokkal la ca ginnaaw téere yi ya say bokk nga ne lu ñu lay ñaawalee amoo njëkke mu ni ko waaw mu ni ko ma tànnal la njëkke mu ni ko boo ma tànnalee ma jël ndax njëkke borom kër sax a ko war a tànn mu ni ko jël naa yàlla def ko sa njëkke Roqaya njëkke lu muy jariñ ci xew ak lu muy jariñ mu ni ma jox ko sëru dënk xanaa mbaa ma jox ko sër man mi ko may waaye moom njëkkee li su ma xewlee mu yebbil ma mu ne ko yàlla na la sa njëkk a yebbil doom ju yéem ñëpp moo ko yebbil Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu waaw <laughs> c'est moo ko yebbil Seydi Aboubacar waaw soxna Roqaya gis nga keroog bi ko sëñ Babacar si waxee ni maanaam bi ko mag ñu waxee ni xalifaa nga Tiwaawan nga toog ndar te mooy xalifam Alaaji Malik lu tax munoo dem Tiwaawan mu ne waa baax na bi ko sëñ Babacar dabbee ndaw soxna Roqay dane ko ay góor gi bëgg naa ñëw de waaye sa baay alaaji malik damaa tegoon fii te jëleegu ma fi te dem na bàyyi ma fi te bugguma fay jóge ëllëg may dajeeg moom di am gàcce <laughs> moo tax soxna Roqay musta teg tànkam Tiwaawan ndax nee na Cheikh Malick musu ko wax ñëwal Tiwaawan paap yow boo bàyyee sa soxna ci kër gi ni bu ko ni ko ma fekk barab sàngam day ñëw ci gàttal day ñëw ñoom ñaar Cheikh Alhaaji Malick ak soxna Roqayatu bàyyil xel nag lenn sëriñ Babacar si radiyallahu anhu du taaw soxna Roqeya hmm? déedéet am na mag ñaar mais du ta sëriñ Babacar si am na mag am na ñaari mag moom Cheikh Seydi Aboubacar si am na mag ñu ñuy wax maam sid Ahmad ah, moo demoon am na mag ñu ñuy wax soxna faatima waaye yàlla lu ne ak fam koy jaarale alxaaji malik sarr mooy taawu taalibi alhaaji malik dafa ñëw ni cheikh alxaaji malik malik damaa gént gént gu ma jaaxal cheikh malik ni ko loo gént mu ne ko damaa gént daal leer gu fàqe ci asamaan si di wàcc ci suuf nee na ñu may wax naan ma leer googu di ñëw baaba kër Si la te yow yaay doon woy juram ne cheikh malik ci ci ci modestam ni ko ah loolu daal gént la rek wax nañu sax ni am na yeneen i mag ñu ko gént nettali ko Alaaji Maalik moo tax keroog bi bi bi si bi Cheikh si ganee àdduna fekk Cheikh Alhaaji Malick di bind téeréem bu tedd bii muy tey Taysiir nga xam ni turi yàlla yi la ci Alhaaji Malick dëxëñ ci biir téere boobu bi mu koy bind ci lañ ko ci la ndaw li yegg si ñu ne ko soxna si mucc na fi Cheikh Alhaaji Malick toog mu ne ah kooku nag Babacar si la mm-hmm. bi ñu ko bi ñu ko joxee tur yu ba pare góor gi alxaaj Malick Sarr dañu ko ah daa mel ni sama gént gaa ngi nii de Cheikh Malick ni ko daal Babacar Angoog daal daal Babacar la. Mhm. Babacar Angoog. Mhm. Cheikh si bëri na ku ñu la mën a tuddal mu nekk maanaam mu nekk nitu yàlla am na cër man damay wax ni nitu yàlla yëpp am na nu cër. Mhm. koo dégg ñu ni la nitu yàlla la am na cër. koo dégg ñu tuddee ko nit yàlla am na cër ku nekk ak cëram mais Babacar Seck cëram nag cëru Babacar yamut ak benn cër parce que cëram la moom Cheikh Seyd Aboubacar si kenn ku ne am na cër mais cëru Babacar si moom cëru Babacar si la bokkut ak benn cër li alaaji Malick jur yëpp ñu nekk njabootam kenn ku nekk nangu na cëru Cheikh Seyd Aboubacar si moo tax kenn ku nekk am cër bi mu am parce que nitu yàlla yi yàlla moo leen di séddale maanaam moo leen di sédd ci barkeb Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Chérif il faatimi ndax boobu kotaa moom la ko yont yàlla Muhammad jox moo tax bu maanaam bu ñu koy woo ñu koy woowee mu mi du kulli awliya arrahman moom Cheikhu Tidiane te cheikh moomu dafa am xusuusiya boo xam ni moo nekk diggante cheikh ak Cheikh Seydi Aboubacar si maanaam benn jagle la ci am gis nga jagle bi bi bi Cheikh El Hadji Malick am ci yontu yàlla Muhammad jagle boobu la Cheikh Seydi Aboubacar si am ci Cheikhu Tidiane Chérif il Fatih mm-hmm. mais bokkuñu nag kenn ku nekk ak jagle bi ko yàlla defal bi nga bi yàlla dogalee moom sëñ Babacar si mu nekk ci dëkku Cheikh xaaji Hadji mu tedd bii di Tiwaawan comme moom lañu war a waxtaane baayam Cheikhul Hadji Malick moo xëy woolu ko moom sëñ Babacar mm-hmm. ni ko sama nekkin ak yow fi mu toll nii dootul yomb lu tax mu ni ko dama bëggoon nga xaw a sori tuuti sëñ Babacar ni ko sori kon teemaa dellu ndar ga ma jóge mu ni ko ëpp naa def foofu dafa sori sëñ kër ni ko teemaa dem ndar teemaa dem ndakaaru Cheikh Malick ni ko Dakar dafa lëndëma ni leer gaa ko tiim waaye wàccagul te dama fa dama fay dajub coono pour leer gi wàcc te comme leer ga wàccagul bugguma nga dem fa beneen dëkk bu mu ko tuddal Louga Cheikh Malick ni ko maga nga fa te bugguma nga dem fa ngeen di fénqaloo teemaa dem tëngéej kon Maodo ni tekk ba mu yàgg mu ni ko waaw kay foofoo baax nag tëngéej googoo baax waaw kay mhm. Seydi Aboubacar jóge eh, waawan ñëw nekk tëngéej mag ñëw wax nañ ni bi mu ñëwee tëngéej dugg na fa xalwa boo xam ni junniy guddi la hmm? nii guddi yoo xam ni Cheikh ba kër si gisul biti ñi ni ëpp na junniy guddi yu teg ñetti téeméer yoo xam ni sëñ kër gisul biti dafa ñëw rek tëju am tur yu mu doon liggéeyal yàlla waaye bi ko Cheikh Malick di d'accordal ci tëngéej gi da ko wax ni ko maga nga fa nag saa yoo fa boo demee na nga ko nuyu ji looloo tax sëñ kër bu daan jóge Tëngéej balaa dem Tiwaawan jaar ci muqaddamu Cheikh Alhaaji Malick ba fa nekk ni ko maa ngi dem seeti Alhaaji malik ci gàttal ba bis Cheikh Malick woolu ko sëñ Babacar ñëw fekk ko Tiwaawan Maodo ni ko dama la soxla woon ndax dama am ñaari liggéey yu ma war a def mhm. benn bi mooy dama am ñaari téere yu ma war a yeggale mhm. te dafa am sama liggéey bu ma tàmbali woon ca muy zawiya ba Cheikh Alhaaji Malick doon def doon doon tabax ca Ndar mu ne ko liggéey booba yeggagul ndax jamono ba ma koy liggéey sama doole matewu ko te wërsëg wi bariwul mhm. waaye fexe naa ba tabax zawiya ba damaa bëggoon nga dem defaraatal ma zawiya boobu ba ca ndar ba ca ndar mhm. soo ma defaraatatee zawiya ba ca ndar man ma yeggale sama ñaari téere yii muy kifaayatu raaxibiin ak ak ifaamu munkiri jaani su yeggee nag ma dem bàyyi leen ak seen àdduna mhm. sëñ Babacar ni tekk ba mu yàgg mu ni ko bàyyi li nga wax bëgg dinaa ko def waaye su ma sañoon nga boole maak ku donte ni sama jur nga waaye nga boole maag ku mu nekk témoin mu boole kook alxaaji Seydou Nourou Taal Cerno Saïdou Nourou la sëñ Babacar si àndal ba muy dem Ndar bi mu yeggee liggéey zawiya ba moom Cheikh al moom Cheikh Seydou Aboubacar si bi zawiya bi bi liggéey bi yeggee bi liggéey bi yeggee ba ci yéeme bi sëñ Babacar di waaj pour ñëw Tiwaawan ci la ko Cheikh El Hadji Malick ne ndaw mu jot bataaxal bi pour mu wuyu si ko maanaam bi muy jot bataaxalu El Hadji Malick pour wuyu si ko fekk na moog Thierno Saïd nuru waaj nañu pour ñëw Tiwaawan ndax booba liggéey ba yegg na. <laughs> te booba Maodo it pare na ñaari téere moom. hey bi mu yegsee talaata la ñëw Tiwaawan moom sëñ Babacar Si bi mu yegsee Cheikh Al booba amul deux mètres carrés biir Tiwaawan amu fa kër. tey doomu El Hadji Malick. sëriñ Babacar Si bu sëriñ Babacar Si booba amul kër Tiwaawan. Mm-hmm. bu ñëwee kër góor gi euh, kër ñoom Baye maami alxaaji Baye Moussa Niang imam ratib bu jumaay sëñ kër bu ñëwee foofu la ñu koy dalal mooy kër góor gi Moussa Niang bu ñëwee fa la daan dal mais musul moom sëñ kër musul nangoo am kër Tiwaawan ci jamono bi Cheikh alxaaji Malick di dund bi mu yegsee talaata Cheikh Malick recevoir ko ni ko naka liggéey ba mu ni ko caabi yaa ngi Cerno du nuru defal ko detaay bi lii ak lii ak lii ba mu yegg Cheikh Khalifa ni ko liggéey naa ko ba mu yegg ci anam bi ma yaakaar ni booba la yeyool donte mënuma ko waaye def naa sama kemtalaayu kàttan mhm. ndax bàyyi loo ma sant dama cay dem ba jeexal tàkk mu ni ko manit sama ñaari téere yi ma bëggoon a yeggal yegg na waaye baaba kër si dañoo am waxtaan man ak yow Cerno Saidu Nuuru nar a génn Cheikh Hadj Malick ni ko taxawal ci nga bokk sëñ ni ko lu xew bàyyi mu ni ko mag ñi dajaloo nanu waxtaan nanu wax nañu ni chaise bii ma toog yow kër si lañ ci wóolu yaa ma war a wuutu sëñ Babacar ni tekk foofu dinaay wax lu bari ni Cheikh al Khalifa wuutul woon nekk Khalifa Cheikh al Hadj Malick déedéet sëñ Babacar wuutul woon donn Maodo. bis Cheikh Alhaaji Malick bind na benn lettre yónnee ko Mam Sidi Ahmad mi magam wax ko ni ko sama ginnaaw sama kër gii ci sa loxo la nekk sama ginnaaw yow yaa may wuutu sama ginnaaw yaa fiy toog Mam Sidi Ahmad ku ku maanaam ku doyoon waar la Mam Sidi Ahmad ku doyoon waar la wax nañu ni journée bi journée bi journée bi journée bi maanaam journée bi Mam Sidi Ahmad daan na ci toog ak yonent yàlla Muhammad li mu lu mu xamul maanaam di gis yonent bi di toog ak moom par journée par journée chaque jour day toog ak bi di waxtaan moom maam Sidi Ahmad mu wëlbati kayit wa bind ca Cheikh Alhaaji Malick ni ko baay dangaa bëgg a rafetal rek te bañ sa kër jaxasoo waaye yaa gën a tey ni du man maa lay donn ki lay donn mooy borom yel bu gàtt bële muy Cheikh Seyd Aboubacar si radiallahu anhu bi ko bi ko Cheikh El Hadj Malick waxee loolu nekke Cheikhu Omarul Fouti yi moom moo recommandé sëñ Babacar si pour mu nekk xalifa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif il Fatimi parce que booba sëñ Babacar wutuwul woon Cheikh dong wutuwul woon Cheikh El Hadj Malick mais xalifa Cheikhuna Tidiane Chérif il Fatimi lay doon te booba Cheikhu Omar bu dee ci nu ñu mën a misaalee ci zahir moo jël dossier sëñ Babacar si présenté ko Cheikh Seyd Ahmad Tidiane moo jël dossier sëñ Babacar si présenté ko yont yàlla Mouhamad ñëpp d'accord ci Babacar si nekk xalifa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane looloo waral waxam ju rëy ji doon wax moom sëñ Babacar mu ko daan wax looloo waral mu daan wax ni tariqa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane bi ku ci duut sa baaraam Babacar damm ko looloo waral waxam jooju parce que responsabilité am la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al dafa am atam gàmmu Tiwaawan am Cheikh nee na sëñ kër si ñu ñu ñu ñu ñu mu mu jël benn note bind ko waa France pour commander carte gàmmu sëñ carte gàmmu Tiwaawan bi ñu ko laajee lu tax nga commandé ko Paris mu ni parce que benn machine a fi ne buy tàppee ay carte te la nekk te lu toll ni carte lu toll ni gàmmu Tiwaawan di gàmmu El Hadj Malick di defal yonent bi bàyyi ma fi man kër si du ma nangu kartam di tardé ñu defar carte yi. jëlee ko Fra euh, foofu euh, France indi ko bi ñu ko indee ci gàttal gouverneur bi nekkoon cees denc carte yi li ma bëgg a wax ca cat la mooy bi ko gouverneur dencee sëñ kër yónnee fa ñetti yoon góor gi mas siis bi mu demee saa yu ñëwee ni ko gouverneur bi kat nee na carte yi ñëwagul sëñ Babacar muuñ Cheikh Al Khalifa bu ma mësaana toog sama trondo Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo ma nettali ni ma sëñ kër si bu mësaana am lu ko jaaxal wala lu ko metti rek lay yëngatu mais bu dul loolu xalifa bu xasee toog ni dégg daraam du yëngu mais ne soo ko fekkee muy yëngatu wala nga fekk mu wàcce veer yi ba bët yi génn ci biti mu di xoolee ci kaw nee na saa yoo fekkee mu yor melokaan woowu rek am na lu xew hmm. Serigne Cheikh Tidiane si nee na damaa xëy di ko nuyu si fekk ko ci boobu xaal mooy mu wàcce veer yi ba pare fi mu farankulaayu mi ngi ming di yëngatu Seydou Cheikh nee na ma ni miinuma lii ci góor gi. après Serigne Moustapha. ok Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum bàyyi Serigne Moustapha si Al Maktoum. responsable moral daaira Moustarchidina wal Moustarchidaat. waaw Serigne Serigne Cheikh Tidiane. waaw Serigne Cheikh Tidiane si. yëg ni sëñ Moustapha ku ko gën a dégg alxuraan ci réew amul. bu Serigne Cheikh. noonu la gaawee nag. waaw kay si nee na. maa ngi wax. bi ma ko fekkee muy ming. Mm-hmm. nee na ma ñëw gis ko muy. yëngatu noonu nee ma nuyu ko bay wàññeeku ma ni ak ah, noo am na lu xew góor gi melokaanam wi saa yu ko amee am na lu xew ne ci laa wëlbatiku ni ko bàyyi lu xew ne mu ne ko Cheikh Tidiane xanaa jaaxle sa karti gàmmuy maam gi bëgg lu gaaw tax ma commandé ko ca Paris ñu defar ko ba pare indi ko gouverneur bi tëj ko ci biroom ci table ji mu tiim ci tiroir bi féete ci loxo càmmoñam mu tëj fa carte may ma nee fa ndaw mu ni carte yi pareegul dabb naa ñetti daw mu ni carte yi pareegul Serigne Cheikh newu ko sax ndax pare na ndax xam na ni kër si du wax lu wérul dañu ko loolay sa problème sëñ kër ni ko mu ne ko may ma ma ñëw daal di wëlbatiku dugg ci néegam moom Serigne Cheikh Tidiane seen Maktoum roy ubbi troilam génne ñaari douze coups pistolet waaw ñaari douze coups poos bu nekk mu rof fa benn wàcc taal otom bu ñuy wax këmankaare déparé Tiwaawoon wut si Thiès bi mu yegsee ba bunt gouvernance bi mu ubbee bunt bi tëjaatu ko da ko ubbi rek romb wàcc ñetti ñetti escalier yi téye loo bunt bi secrétaire bi di ko dabu lu xew mu ne kàcc ak bunt bi dugg fekk gouverneur toog tiim taabal ji mu rocc benn douze coups bi teg ci taabal ji rocc beneen bi ni ko jëlal gouverneur bi ni ko xool bëti kii kan la mu rocc jël beneen douze coups bi tiimale ko teg ci jëbi ni ko jëlal mbaama roose la ba nga tooy wala nga roose ma ba ma tooy gouverneur bi ni ko sama bunt bi nga foose mën naa la ci tëj baal naa la ko sama secrétaire bi nga romb mën naa la cee tëj baal naa la ko arme bi nga génne mën naa la cee tëj baal naa la ko yow yaay kan ba am yu fit mu ne ko man la Cheikh Tidiane si doomu baaba kër Babacar Seck asukan. wallaahu akbar lan moo xew. mu ne ko carte yi ci sa tiroir bi ci sa loxo càmmoñ laa bëgg nga génne ko ma yóbbul ko borom gouverneur bi ni ko layoon carte mu ne ko ubbil tiroir bi mu ubbi ñu gis carte yi mu génne joor ci kaw mu ne ko lii du ay carte gouverneur ni ko loolu jaaxaluma de ku la wax ni carte yaa ngi fi mu ne ko xanaa dangaa dof ki ma yónni nga xamul ki ma yónni mooy xalifa Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ki ma yónni mooy Babacar Si ki ma yónni sanqaleñ wiy dox ca xeer wa ca biir géej ca suufu xeer wa sanqaleñ wa fay dox tànki sanqaleñ waa ngi tànqal Babacar Si fa mu toog kooku dara gouverneur xalifa yi gi kambe penku basow ku kuusab wala nga wàññeeku te dellu jiggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko waay wax mu bàyyi la kii ko salli rabbi sallo ala nabi a mbay jiggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko waay wax mu bàyyi ki ko wóolu topp yàlla ak yónneen la jàngal njabootam ku ko teg baat du geesu yàlla la wóolu salli rabbi sallu ala nabiya gur gi xalifay gor si fal yëngu wur jëfi baatin jë ca moom góor du ko faate rafetal nay mbiram ci ba xëy war fasu leer jëm ca yàlla mbay du nu faate salli rabbi sallu ala nabi góor gi sunu yonen ba altiney bisu wuteem sunu xalifa ba may altiney bisu wuteem sunu yónneen ba nekk Aysa la faatu xalifa ba mbay nekk yaa astu la salli rabbi sallu ala nabi aman ah. bi carte yi Serigne Cheikh bi mu waxee moom loolu ba yeggal gouverneur bi dani ko nan laa mën a def ba jàkkaarloog moom Seyd Cheikh ni ko xanaa beneen yoon mais du tey daal di roñ carte ya wàññeeku romb ko taalaatub oto mu wuti keroog bi mu yegsee daa fekk Cheikh Seydi Aboubacar ci sijaada bi mu toog jugagul sama turandoo sëriñ Abdoul Aziz Al Amin nee na sëñ Babacar bu mësaana a julli gee ba farankulaayu bu dindee toogaayam dañoo salaatu bu mësaana a julli gee ba farankulaayu toogaayam boobu bu dindee toogaay bi dañoo salaatu xam nga nitu yàlla bi egg ci benn niveau bi bul jàpp ni ñàkk maanaam dafa xëy-xëy rek nekk fa déedéet day maanaam day topp boroomam ba yàlla ubbil ko buntu yi daggal ko xijaab yi ba bu nee allahuma mu nangu loolu la ko koy may ne nekkul tëdd di nelaw déedéet bi Seyid Cheikh egce dafa maanaam dafa bees carte yi ci kanamam ni ko bàyyi lii la sëñ Babacar xool carte yi nag tasaare ko daal di muuñ Seyid Cheikh wan ko ginnaaw mu ni ko Cheikh Tidiane ba mu gestu mu ni ko bis tey yaa ma gënal sama ñaari gët yi cheikh du tiit ba jóg daw cheikh du mer ba teeya di Tijaan Maktum du yoxu-yoxi mm, bàkk leen sëtu Maodo lambi diine na doomi soxna ya mm-hmm. way wi seexa ko yelloo bàkk leen sëtu Maodo dégg dégg xoolal ko Serigne Cheikh abuna Abu Bakrin abuna abu bakirin ah, wa in kaana fil xabre xoola de te kat booba denc nañ sëñ Babacar mi ngi ci biir bàmmeel abuna abu bakirin ah, in kaana fil xabri Pape Sidi yëg nga ni nitu yàlla bu ñu ko dencee ci biir bàmmeel ci la ay tasarufaatam di gën a mën a wéy abuna abu bakirin wa in kaana fil xabri maam Aziz sëñ Babacar nitu yàlla yëpp jël nañ seen cër moom mu des ak bi ko Maodo jox abuna abu bakirin wa in kaana fil xabri nee naa la bi mu yegsee ci Cheikh Alhaaji Malick mu ni ko fii ma toog yow la fi mag ñi wóolu abuna abu bakirin wa in kaana fil xabre Babacar Si ni ko d'accord naa waaye daa am condition yoo xam ne mooy tax ma nangu ko ردينا به شيخا الى اخر الدهر Cheikh Al Hadj Malick ni ko jarul sori baba kër si xam naa li nga bëgg a wax bi mag ñi waxee ba yeggal nee naa leen Babacar dafa noppi te xilaafa Cheikh ak noppi du ko doxal Babacar dafa jàpp ñàmburam beneen bi ci desit Babacar bëggul ku ko xam te bis bu yoree xilaafa Cheikhu Tidiane nit ñi xam ko eh, Alaaji Cheikh Malick ni ko loolu sàkkul naa la ko ci mag ñi ba mag ñi d'accord nañ ni sa giirug dund kenn du la ci xam bala laa nit xam rek ëllëg yowmal qiyaam la la nit ñi xam waaye sa giiru dund gi kenn du la xam lii nag la la Serigne waxoon te góor gi wax ko ni ko waa Cheikh Tidiane mbay yaa ñu doy ji ñuy tànqal xale yi juddu xamuñu sëñ Babacar gisuñu sëñ Babacar musuñoo teew ci kanamu sëñ Babacar te xale boo ci tudd mu ni sëñ Babacar lay yaakaar lan moo tax te ñoom mosuñu ko gisuñu ko ne sëñ Cheikh ni tekk ba mu yàgg mu ne ko lu jigéen siis siis nag bana bàyyi nit ñi ñu xencu liggéey ngay dégg ci sëñ Babacar yëpp cóola la rek mais kenn jotagul ndawalu sëñ Babacar mbay yaa ñu doy jeeg cofeel gi ci sëñ Babacar ñu ngi koy tuddal ñuy yuux yuuxoog ñu ngi koy tuddal ñuy jooy yëpp Seyid Cheikh nee na loola yàlla moo ko ko préparé moom Cheikh Seydi Aboubacar Sy أبونا أبو بكر وإن كان في الحبر maam Cheikh nee na daa def benn tournée wër maanaam wër Tiwaawan wër mu jeex mu war région bi war département bi génn nag di war Sénégal ruq bu nekk mu dem fa ñu ne Serigne Cheikh loo jublu woon ci sa tournée bi mu ne naa di installé am lu ma doon installé te bëggoon mu mu màgg te la ma doon installé màgg na mu ne mais moom loolu yéemu ko li ko yéem mooy bi mu wëree ba pare bi mu ñëwee ci sëñ Babacar fekk ko mu toog mais bi dikkee di ko di ko rendre compte di ko wax fi mu jaar yëpp ne Cheikh Khalifa di santanteeg moom Seyid Cheikh da koo laaj benn question dañu ko waa bàyyi man dama am lu ma jaaxal te mooy man fi ma doon dem man sax pour ñu xam ma dama naan leen man la Cheikh Tidiane si man Babacar Seye sama baay asukane sama waajur wu jigéen nee na waaye su ma nee Babacar sama baay nit ñi du ñu ànd ak seen sago dañuy daw di ma song te lu ne la ñuy seq ak man ndax turu Babacar si woo ma tudd te man papa yow génnoo fii te man génn naa fii te nit ñi ma doon dem ñoom xam maanaam xamuñu la musuñu laa gis ndax booba lii xew xewul woon booba télé amul booba téléphone amul booba photo yi bariwul te booba munuñu gis jëmmi sëñ Babacar ndax ci ruq yi ñu nekk Seyid Cheikh ni ko ñooñu nan la ñu def ba mel ni nu mel ci yow te teguñu la bët sañ sëñ kër ni dënn ba mu yàgg mu ne ko Cheikh Tidiane xanaa yëguloo ni bu ma bis bu ma leen wanee ginnaaw ci gay door a gis samay soppe ndax bu ma leen wanee ginnaaw da gis koo xamante ne xamuma ma xam te ma tuddee mu ni gis ma gisul ku ma gis te bu ma tuddee mu yuuxu di nga gis koo xam ni fekkewu ma fekkewu ma ku ma fekkewul ku ma fekke te bu ma tuddee mu yuuxu loolu nag lan moo ko def maam Cheikh mu ni maam Cheikh yéen nit ñi dañuy ñëw ci yéen di leen sopp ndax ndax ndax li tax ñu leen di sopp xëy na seen barkey maam la waaye man Babacar Sy nag duma xaar nit ku ñëw ci man di ma sopp man Babacar Sy maay wër di tànn samay soppe man ñi ma sopp man maa leen di tànn maa leen di boole ci sama bopp ku ma boole ci sama bopp nga bokk ci sama bopp bopp ku ma boolewul ci sama bopp doo bokk ci sama bopp ñi bokk ci man man Babacar Sy maa leen jëli boole leen ci man moom laa la waxoon Aziz ni la gars yi nga dégg ñuy coow tey sonn benn problème rek la ñu am ñi ñi am coono yëpp leen na leen ko yóbbee mooy Aziz danga bokk ci Babacar ji te ñoom bokkuñu ci Babacar ji looloo leen lëjël moo tax ñu lëjël ñi bokk ci Babacar ji te liñ xamul mooy ñi bokk ci Babacar ji Babacar leen boole ci Babacar ji waaye bëgg dugg ci Babacar ji te Babacar dugalu la ci Babacar ji du tax nga dugg ci Babacar ji Babacar bëgg a dugal ci Babacar ji ñoo ñooy dugg ci Babacar ji bu baabakar Babacar boolewul ci Babacar ji di nga bari bari ba sonn te doo dugg ci Babacar ji parce que Babacar ay Babacar. kale yi juddu ci ginnaaw mbay gisunu mbay te la nu ko ci waxal mooy maamam bur yàlla mbay la nu gëm ko ci waxal mooy maamam waaw waaw bur moo ko ko jagle bur gi masula mooy boromam masula fecci walla ree masula dog ak mbokam wax lu amul du jikko moo ci ginnaaw mbay waaw waaw la nu gëm waxal mooy maama ndeysaan bur yàlla moo ko ko jàlle billaay boo ko masaana présenté say àndandoo du leen fàtte bu leen gisul di leen laajte xalifa moo mata doy loo ana may seetaan loxo ci sëñ Babacar mbay la nu gëm xësi waxal mooy maamam waaw waaw moo ko ko jaale billaay gor du xam fakk du tiit ba fen du ñàkk sàcc du soppeeko du jàpp baay ab naw leen Seydi Mbay lii la nu du xam fakk du tiit ba fen sëñ Babacar yi la daan digle du sàcc du du jàpp baay yi ab ndaw bu bëggee doon gor bilaay gor du xam du tiit ba fen du ñàkk sàcc du soppeeko du jàpp baay yi ab ndaw leen Seydi lii lanu la faq du tit ba woo du ñàkk sàcc du soppeeko du jàpp bàyyi ak naaw le waaw waaw Seydi Baye la nu ngoy loo billaay yàlla dolli la xéewal pour yàlla dolli la sargel seexal xalifa sunu maam booy te dolli jàmm njabootam nañ àndandoo di siyaare abuna abu bakirin wa in kaana fil xabri yàlla yàlla fay la yu déggal ab Aziz gis nga li nga way léegi Seyd Cheikh Tidiane si almaktoum moo ko bind dafa wax ni xata wa fil atfaali minhum maathirun arrafna bi nuuri minhu fihi qabla xalibihi أبونا na بكر وإن كان في الخبر Seyid Cheikh Tidiane si nee na xale yi juddu ci ginnaaw mbay gisuñu ko xamuñu ko te gën koo sopp maam Cheikh nee na du seen tayeef ñu laaj ko lan moo tax Aziz sa soxna bi nga takk mu bëgg sëñ Babacar yow jigéen bi sopp sëñ Babacar yow góor bi sopp sëñ Babacar soo amee doom doom jooja bu juddoo bu na sexee meenu weenu ndeyam di nàmp bu xëccee balaa meew a génn cofeelu sëñ Babacar njëkk a dugg ali bombay mi sey sambay naar ji waalo sambay naar ba rek dara man aram lokku ma campagne seydi jamil jàmbaar ji bàyyi sëriñ Mansour borom daara yeeg dërëm yeeg limousine bi Al Amin bàyyi sëriñ Papa ñanguuru saaman ji ku mu ko lugu ku lay lugu laa gisul ci àdduna sëñ Babacar ku mu laal nga ay waay abuna abu bakiri kaana fil xabre na xale yi juddu fekkewuñu sëñ Babacar dañoo nàmp cofeelu sëñ Babacar te ci seen way juri jigéen yi la ñu ko nàmp. ilaa aaxiri dëhri kan laay topp man kan laay d'accord mu mat mab sëriñ ci kan lay roy kan lay jël def ko sëriñ bu fekkente ni def nañ ko ci biir bàmmeel donte mi ngi ci biir bàmmeel man kenn dong la topp kenn dong laa jël def ko sëriñ benn sëriñ laa am mooy Cheikh Seydi Aboubacar si donte ni gas nañu ba mu xóot ñu def ko ci waaye man maa ngi ci ginnaaw Babacar Sy ah, radina bi si xaar wow wow ilaa aaxiri dëre ba addunay tukki raday naa bi cheykhan d'accord nañu ñun ñëpp ni sëñ Babacar ab sëriñ la sëriñ nag dafa bëri ay façon bu dee ñun ci suñu jamono ki ñuy tudde sëriñ mooy ki nga xamante ni dafay jàng pare di jàngale ñu tuddee ko kii sëriñ daara bi la wala sëriñ nangam la wala lii bu jàng sëriñ la ci waaye sëñ Babacar dafa weesu ci dimension boobu boo déggee cheikhu bi ñuy tudde sëñ Babacar mooy koo xamante ni day xam yàlla di ko xamle di jàng di jàngale lu bon bàyyi ko di ko tere xam lu baax di ko def di ko digle loo yor mu bàyyi kook yow lu mu yor bokk kook yow gën laa ragal yàlla dàq la koo jaamu gën la koo jege boo amee soxla mu taxaw boo amee aajo mu taxaw boo feebaree mu taxaw sa digganteeg sa borom qualité yi sëñ Babacar daje moo dajale moo tax Serigne Cheikh ni radayna bihi cheikhan d'accord nañu ñun ñëpp ni benn Serigne rek la ñu am mu existé mooy Cheikh Seydi Aboubacar si kañ la loolu yem Serigne Cheikh ni jaayante bi nag ila axiri dëhri ba addunay tukki ñun kenn lañ jaayanteel mooy Cheikh Seydi Aboubacar Babacar Si liman antami in lam yakun li janabihi xoolal Aziz yàlla am na ay am na ay catégorie catégorie mais catégorie yi ma lay wax sëñ Babacar bokkut ci benn waaw catégorie gel la ok dafa am ñu ñuy wax aktaabul xams benn degré la ci nitu yàlla yi ñooña nee nañ juróomi catégorie la boo ca jeexee sëñ Babacar doo ko gis te ay xeeti nit yàlla la mooy xut bu mag yi génn ci sëñ kër bokku ci maa la ko wax liman antami in lam yakun li janabiha nuqaba u saba benn catégorie la ñooñu boo demee boo leen dee compté dañuy nekk trois cent soixante sëñ Babacar bokku ca miftaaxul kunuuz beneen catégorie la ñooñu juróom-ñaar lañ soo demee doo ca fekk baaba kër si in lam yakun bi abi bakire góor gi ndar ndar la Cheikh Seydi Aboubacar Si kar da di répété lii yéen ñaar déggal li ma la wax sëñ Si mooy sama wasila daanati nga xam nga fan la yàlla bindee sëñ Babacar ak garaab garaatam répétition am na ci de mi ngi ko bindee ci maanaam ci benn ruq bu ñuy tuddee naadaratul waqt ah. foofa lañ bindee sëñ Babacar xam nga luy lool Aziz kalima gi yàlla bindee sëñ kër bindaatu ci benn nitu yàlla looloo tax xusuusiya bi mu amoon moom sëñ kër moom dong mu am ko. xusuusiya yow. mooy jagle jagle bi Cheikh Al amoon. loolu dong nga taxoon mu am ko. maanaam don bi. waaw don bi mu amoon parce que fi ko yàlla bindee moom sëñ kër bindaatu fa benn nitu yàlla sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee na xalima gi yàlla bindee sëñ Babacar bi mu ko bindee ba pare bindaatu ci beneen nitu yàlla Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz Dabakh ñëpp nangu nañu te d'accord nañu ni El Hadj Abdou nitu yàlla pur la El Hadj moo wax ni chaise ba kër si toogoon maa ngi ko seen ci asamaan si muy flotté te gisuma ku ci toog te duma gis ku ci toog ndax mel num Babacar si rek a ci mën a toog. looloo tax diiru dund sëñ Babacar benn xalifa existé woon ci àdduna mooy Cheikh Seydi Aboubacar si liman antemi in lam yakun li jannati ah, bi abe liman antemi liman antemi in lam yakun li ma dégg li man antami illam yëkkun bi janaa bi maanaam ci kan lay askanoo ana kan lay jël di ci askanoo man bu fekkee bàyyi naa fi Babacar Sy bi man aqtadi in lam yakun bi abi bakiri ana ana ci kan laay roy ana ci kan laay roy bu fekkente ni bàyyi naa fi Cheikh Seydi Aboubacar Sy gis nga nag keroog bi El Hadj Malick génn bi àdduna ñuy waajal Maodo pour denc ko sëñ kër si ñëw fekk mag ñi kenn ku nekk dugg ci ruq Cheikh xalifa Khalifa si bi mu yeggsee gis ni mbooloo mi commencé di takku kenn ku nekk di jóge ci ay gox di ñëw sëñ kër xool leen nat ci mag ñi gisu leen ci mbooloo mi Cheikh xalifa Khalifa xaw a jaaxle ndax ñu ni meloon ak El Hadj te gisu leen ci mbooloo mi nekk dajaloo nañu ci benn néeg ñooña di waxtaan ci ndonok El Hadj Malick gi kan moo ko war a wuutu. bi biman aqtadi in lam yakun bi abi bakiri fi ñu dajaloo di waxtaan ku war a wuutu Alaaji Malick kenn ci ñoom ñu yebal ko ni ko wool ñu kër Si ñu waxtaan ak moom ndax moo fi nekk bi ñu demee woo Cheikh Al booba mi ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar moom sëñ kër Si bi Cheikh Al Hadji Malick faatoo bi ñu woowee sëñ kër bi mu ñëwee ci bunt bi la taxaw toogul dafa taxaw su jël loxoom wéer ko ci bunt bi daal ni yéen a ma soxla mag ñu ni ko waaw mu ne lu xew mbaa jàmm ak ni jàmm ak fi jamono bi toll ñu ne ko dañoo bëggoon waxtaan tuuti balaa mbooloo mi di gën a yokk alaaji Malick mi faatu di sa baay kii toog sa mook sa sa baay alaaji Malick ñoo nekkoon guddeeg bëccëg muy borom xam li nekk ci Maodo yëpp nekk ci moom mat na la baay te mët na la baay ñu bëggoon moom ñu bëggoon bu dalee sam xel mu wuutu sa baay alaaji Malick kii toog sa baaya mat na la baay mën na la baay ñu bëggoon mu wutu alaaji Malick kii toog sa baaya mat na la baay mën na la baay wàññi ba mu yegg ni ko dañoo bëgg nga tànn ci mag ñi kenn ñu jiital ko mu nekk sa xalifa baay nga topp ci ginnaawam ni ko beneen bi ci des ku toll ni alaaji malik génn adduna ñu war koo dëjël xam nga ni du nekk loo xamante ni lu ndaw lay doon il faut ñu bind ay lettres yónnee ko ci nit ñi ñu jox ñu ndimbal ñu mën a dëjal Cheikh Alhaaji Malick sëñ Babacar ci ful la jë ni dënn ba mu yàgg mu ne leen ñaari laaj rek laa leen di laaj bi ci des dama leen di tontu laaj bi ma leen di laaj mooy yéen ñii toog yéen la seen baay dee wala man la sama baay dee ñu ne ko yow la sa baay dee mu ne bàyyi leen ba ma tële ngeen door a wut wàllu fii tëlewu ma wutuloowu ma kenn wàllu te laaju ma kenn wàllu beneen bi ci des muy non ak alaaji Malick gi da a yeex ndax da ngeen koy yeexal lijjanti man bi may donn Cheikh Alhaaji Malick booba Cheikh Alhaaji Malick ga ngi dund donn naa alaaji Malick ay at di ko dundandoog Maodo ñu ni juróom-ñaari at yoo xamante ni Babacar Sy moo nekk xalifa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Cheikh Alhaaji Malick yor mbubb mi Babacar Sy yor sirru ba te juróom-ñaari at yooyu yëpp ñoom ñaar ñooy dund waaye Cheikh Alhaaji Malick booba sirru xilaafa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane mi ngi ci loxol sëñ Babacar Sy ndax booba sëñ Babacar Sy mooy doxal li war a dox ci loxol Cheikh Al Khalifa la nekk donte mbub mi yàlla mi mi ngi ko jox Alhaaji Malick danaay lay nag toujours ni yomb naa gëm yont yàlla Muhammad bi mu faatoo Babacar Sadiq moo toog ci chaise xilaafa gi wuutu yonent bi waaye sirru xilaafa yonent yàlla Muhammad Fatimatu bintu Rasul mi caatam moo ko yoroon looloo tax Cheikh Seydi Ahmad Tidiane doole ji mu yor mu yor ko ndax sirru xilaafa ba nekkoon ci Fatimatu bintu Rasul ci Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérifil Fatimi la wàccee looloo tax mu mel ni meloon looloo tax sëñ Babacar amul woon sago ci Cheikhu Tidiane looloo tax sëñ Babacar amul woon sago ci nettali mag ñi li gën a wér mooy bi mu amee fukki at ak ñeent ci la way bàyyi Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Chérif il Fatimi à l'âge de 14 ans yow ngay jàngee di wut loo xam sëñ Babacar moom ci la doon way Cheikh Seydi Ahmada la way wi génn la la ko way way wi génn waaye sëñ Babacar bi mu amee 4 ans a way Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Chérif il Fatimi ci ñeenti atam ci la way Cheikhu Tidiane waaye way woowa Alaaji Maalik ga bi mu amee fu 14 ans ci la wayaat Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Chérif il bi mu bindee miimiyam bu rëy bi mu ko defee bay yeggal bi ko sëñ Babacar liiree dafa wut moom sëñ Babacar miimi ya boppam taalif ko yónnee ko boole ko miimi yëpp Cheikh Hadj Malick jox seel Hadj Malick bi ko El Hadj Malick liiree ba yeggal dani wool leen ma Babacar biñ ko woowee mu ñëw Maodo dani ko lenn rek ma jaaxal mooy sa lii nga taalif nii waxuma sax mag ñi waaye damaa jëllale daw ñi waaye mag ñi ñëw ëllëg du ñu ci sonn ndax luxa bii dafa xóot lu tax nga taalif lii ne sëñ Babacar ni ko moo ne de bàyyi dama ci doon forek damaa bëgg ëllëg bu weddikat yi ñëwee xam ne jur nga doom ju dul seen morom ba duñ ba duñu jëm ci yow ñu yem ci man looloo tax waykat bi wax ko ni ko fu alaaji Malick samp benn boo demee fekk na baay bay def fa fukk loolu yaakaar naa alaaji Mbay doon dee ko ko waxee fu alaaji yeggee daa fekk ba Baye Mbaye di sëñ Babacar si def fa fukk lu Maodo sampoon Cheikh Al Khalifa fexe na ba mu dëgër waaye yamu ca fexe na ba yokk ko moom Cheikh Seydi Aboubacar si Seydi Cheikh Tidiane si Al Maktoum nag nee na keroog bi nga xamante ni wuutu na El Hadj Malick ba dëj ba dëj bi jeex sëñ Babacar daa jóge Tiwaawan delluwaat ndar toog fa. xalaa xalaa. xalaa mhm. xalaa. xalaa xalaa. xala xala xala xala wax leen salaam xalaale ki jawul xal bi yaa tey rewim bi gis nga boo gisee ki nga bëgg li ngay yëg ci sa xol boo gisee nit koo bëgg gis nga li ngay yëg ci sa xol day mel ni day am lu lay cuuc day mel ni day am lu lay jam day mel ni day am looy sentir même boo ko waxul kenn mën nga gis ki nga bëgg doo ko sax xool mais di nga am yëg-yëgub di nga sentir ni ki nga bëgg mi ngi ci sa wet wala mi ngi ci mbooloo mi wala yaa ngi jàkkaarloog mi wala mi ngi ci kër gi wala mi ngi ci néeg bi gis nga yëg-yëg boobu ngay yëg day mel ni luy lakk sa xol day mel ni daa am lu muy lakk ci yow Seyid Cheikh Tidiane si di wax ni sama maanaam sama sama sama xol bi sama xol bi yëg-yëg gi ma am ci sëñ Babacar mu ne dafa mel ni dafa am lu koy ñaas ndax sama cofeel ci Cheikh Seyid Aboubacar si xalaale ki jëwal xal bi yaa tayra bi mu ne nag yow picc mi sopp sëñ Babacar yow laay waxal fabiidi bi xayrin wasfiri ashada tayri loolu moom laa la leeraloon sànq ci ginnaaw yow picc mi sopp sëñ Babacar yow mi bëgg sëñ Babacar mu ni fabiidi bi xayrin waaye nedal nenub yiw waay waa boo boo fa jugee nag na tojtal cuujub yiw waay ndax ki sopp sëñ Babacar mënta am lu dul yiw waay ndax ki sopp sëñ Babacar lu dul Babacar mënta génn ci moom latifun bina fi nafsin wa ruuxi dikru xoolal Aziz xam nga loolu noo koy déggee maam Cheikh dafa wax ni neex na lool ci ñun neex na lool ci ñun latifun binaa dafa neex ci ñun ñuy fàttaliku lan la ñuy fàttaliku ay feewi sëñ Babacar dafa neex ci ñun ñu toog ba mu yàgg di fàttaliku sëñ Babacar day neex ci ñun ñu toog ba mu yàgg di fàttaliku doxalinu sëñ Babacar day neex ci ñun ñu toog ba mu yàgg di fàttaliku waaraatewu sëñ Babacar day neex ci ñun ñu toog ba mu yàgg di fàttaliku waxinu sëñ babakër ci sunu biir wa altafu min fiihima nuktatu zikri loolu waxaat na lu ni mel ci beneen qasida buy dëggal loolu dafa wax ni xulwun bi kil bi kulli lisaanin zikru chiimati waaye wa tayibun bil lisaani zikru chiimaati dafa wax ni xulwun lu neex la bi kulli xulwun lu neex la bi kulli lisaanin ci bépp làmmiñ zikru chimati muy tudd jikkoy sëñ Babacar si maanaam toog di fàttaliku ay jikkoy sëñ Babacar sama sëriñ bakat muy cheikh xalifa musta mooy boroomam musta wax lu dul dëgg sëñ Babacar musta jël lu moomul sëñ Babacar musta fecc kóllëre sëñ Babacar musta leb bor bu mu folul fa fayul mu ni yooyu day neex ngay fàttaliku jikkoy sëñ Babacar mu ni waaye dana gën a neex nag ci làmmiñ bu dee tudd dana gën a neex ci làmmiñ bu dee tudd turu sëñ kër Sy Cheikh Al Khalifa mooy jëmm joo xam ni même façon tur boo ko tuddee day neex moom sëñ Babacar sëñ Babacar amul tur woo koy tuddee mu soof tur woo tuddee Khalifa mu neex yasidu alayna axzatan wa waxaay loolu nag loolu nag Aziz moo ñu dal moo dal ñëpp xam nga kañ lañu dal keroog bi ñu tàggee Cheikh Seydi Aboubacar si ci lañu lii dal azidu alayna axzatan wa haibu la baayam alaaji Malick defoon moom la Cheikh Seydi Aboubacar si def mooy xëy di tàggatoo يزيد علينا أبغة وهو خائب Alaaji Maalik da koo woowoon wax ak moom Babacar Si daa dajale njabootam ñu daje ci kanamam mu wan leen ni maa ngi bàyyi maa ngi waaj يزيد علينا أبغة وهو خائب koo ñàkk mën naa diis waaye Aziz ku toll ni sëñ Babacar boo ko ñàkkee war naa diis يزيد علينا أبغة وهو خائب Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo wax ni man maa ñëw fekk fekk sëñ Babacar ci néeg bi ci saal bi mu tëdd يزيد علينا أغزتين وغايب bi ma yegsee fekk Cheikh Seydi Aboubacar si tëdd say Cheikh Tidiane si nee na bi ma yegsee fekk sëñ Babacar tëdd maam Cheikh nee na li ma njëkk a yéem mooy bi may dugg si dama seen benn lumière buy jugee ci jëwu sëñ Babacar bi ma gis lumière bi ni muy wëree néeg bi ma gis lumière bi ni muy bëtte di génn Seyid Cheikh Tidiane si nee na ma di ko xool di ko xool ba gisatuma ko mhm. nee na ma yëg ni li jugee ci Babacar si mi dootul dellu si maam Cheikh nee na fi ma taxaw munuma koo nettali waaye nee na bokk na ci mag ñi ma taxawal ñoo xamante ni gis nañu ko waaye nee na comme dama am xale bu nekk ci sama wet ci waxin muy Serigne Pape Malick si di caatu sëñ Babacar si radiallahu anhu mu ni bugguma sëñ ba sëñ Pape xam li xew maam Cheikh nee na moo tax ma waaxu ndànk ba tiim sëñ Babacar fi mu tëdd nee na maa ngi tiim Cheikh xalifa Khalifa mi ngi jaaxaan moom sëñ Babacar ay bëtam ak samay bët ma taxaw tiim ko waaye nee na maa ngi yëg ci sama ruux man Cheikh Tidiane si ni gii ma tiim muy ruuxu si lim dese ci dund bariwul Seyid Cheikh Tidiane Sy nee na ku la wax ni maa doggali sëñ Babacar wala maa fekke woon ku dul man ak ñama la limal maam Cheikh nee na lum la lim la ciy wax wérul Seyid Cheikh Tidiane si nee na maa ko tiim man maa tiim Babacar si bi nga ko tiimee lu xew maam Cheikh nee na man maa doon ñaa maa doon jàng suuratu bi ma tiimee sëñ Babacar Seyid Cheikh Tidiane si nee na maa koy jàng di ko jàng di ko jàng ba egsi ci fi ñuy wax salaamun qawla min rabbin rahimin nee na bi ma ca tollee la daloon yonti yàlla Muhammad keroog ba muy tàggatoo laa gis ci sëñ Babacar si ndax ndax Moustapha bi mu tëddee ci lalu sukuraat bi Jibril alayhi salaam ñëwee ni ko sa boroom nee na sa waxtu jot na yonent dani ko kii ñëw di def liggéey kii ñëw war a def liggéeyam ndax pare na pour ñëw Jibril ni ko yàlla nee na yow la ñuy déglu soo bëggee dem ñu jël la soo bëggut a dem ñu bàyyi la fi yow yaay tànn soo bëggee faatu faatu soo bëggut a dee ñu bàyyi la fi Moustapha ni ko man kay tànnoon naa ba pare yaa ni ma heure bi jot na ma may xaar ki ma war a jël mu ne ko malakul mawti gi ci yoon wi jibril alayhi salaam daa génn rek malakul mawti yegg si ñu ne nuyoo na ñetti yoon ci bunt bi ci gàttal faatimatu bintu rasul la ko fay ñetti yëpp waaye bi nuyoo ci yoonu ñetteel bi la ko moustapha woo ni ko fatima kii nuyoo di wàññeeku bàyyi ko mu yegg si man la soxla mu bàyyi ko mu dugg nekke malakul mawti la mu ne ko fatima kii nga dugal ci néeg bi day te ma wax la nga bàyyi ko mu dugg xam naa ni xàmme woo ko waaye sa sa yaay ju tedd ja tedd te meloon ci man nu ne muy sayyidatuna Khadija kii ya ko jël si woon muy malakul mawti Fatima yëg nga ni sa sa sa mag ju tedd ja di soxna Roqaya kii ko jël si woon yëg nga ni sa rakk ju tedd ja di sa mag ju tedd ja di Ibrahima kii ko jël si woon yëg nga ni sa rak sa mag ju tedd ja soxna Zeynabu kii ko jël si Fatima yëg nga ni ku dee kii la rey Fatima yëg nga ni ñi ci bàmmeel yi kii leen fa yóbbu Fatima yëg nga ni ko kii mooy fekk ndey ak doom ñu toog di waxtaan mu jël ndey bàyyi fa doom kii mooy fekk bàyyi ci ëttu këram ay doomam wër ko mu jël bàyyi bàyyi leen fa Fatima dem ci fekk yaakaaru kër ga mu jël ko bàyyi leen ñuy toltolaan Fatima kii mooy tàqale ndey ak doom Fatima kii mooy tàqale xarit ak xarit Fatima kii mooy tàqale jëkkër ak jabar Fatima kii ma tàqaleeg sa ndey ja tey jii rek ngay ñàkk bàyyi Fatimatu bint Rasul ndax kii nga dugal ci néeg bi sa ruuxu baay bi lay jël si bi bu ko waxee Fatima Fatima daa sëmboo ay rankooñam di jooy Moustapha siggi xool ko muy jooy ca booba yàlla rocc na secret bi war a dox ci loxoy yontu yàlla Muhammad yi ba loxo yi mënatul dara rocc na secret bi war a dox ci tànk yont yàlla muhammad yi ba tànk yi mënatul dara booba gémmiñ gi rek la yàlla bàyyi te làmmiñ wa rek la yàlla bàyyi mu mu dese sirru bu mën a wax fatimatu bintu rasul bi mu sëmboo ay rankooñam moustapha daa siggi xool ko fatima xool ko rasul liyaar ko fatima jël noppam dëpp ko ci gémmiñ yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moustapha ni ko fatima bul jooy tee ngaa noppi xanaa yëgoo ni man sa baay moom damay dem waaye bu ma demee ñi may njëkk topp ci sama njaboot yow lay doon yow laay xàllal yoon wi rek waaye su may dem ngay ma fekk rasul siggi daal di xàqataay Seydina Ali ibn Abi Talib ni ko Fatima bu ñu jaaxal léegi nga fi jooy bañ lay yërëm nga bëgg a xàqataay nii mu ne ko li ma sama baay wax daa dal sama xel ndax bi may jooy dani ma day faatu ndax kii ma dugal ci néeg bi moom lay jël si waaye bi ma sëggee daf ma déey moom Muhammadu rasulillahi ni ma damay dem waaye bu ma demee ki may njëkk topp yow la Fatimatu bint rasul su ma demee ki may njëkk fekk si yow la Fatimatu bint rasul looloo tax Aziz keroog bi Fatima tëddee ci lalu sukuraat dafa yónni Xasan ni ko wool ma sa baay Ali ca pénc ma naa Xasan ni ko papa kaay wuy sama yaay lu xew mu ne ko ah xaw ma de nee na nga ñëw wuyu ko bi mu yegsee moom sey naa Ali fekk Fatima jaaxaan mu ne ko soxna si mbaa jàmm Fatimatu bintu Rasul ni ko sama heure dafa jot mu ne ko ëpp naa lan mu ne ko damay dem Ali ni ko dem lan moo lay yóbbu Fatima yow man ay xale laa yor njaboot gi ñu yor ay xale lañ Fatima soo faatoo heure bi bàyyi maa xale fu ma jëm ak ñoom Fatimatu bintu Rasul ni ko Ali waxoon naa la ni sama dund li ci des bariwul keroog ba ñu dencee sama baay laa ni la li ma dese bariwul ndax sama baay gis naa ko ko démb te war na ma sama kër ci aljanna gisaat naa ko sànq te war na ma yoon wi may jaar xam naa ni sama ruux léeg mu ji sunu borom ali na bi taalib nag ne la xaw a jaaxle waaye jaaxle gi buggut a gëm li ko fatimatu bint rasul di wax mu naa ko fatima deewagoo lii la dese bari na ak njaboot gu ndaw nga fi bàyyi te dooma bàyyi ak ñoom xanaa man fan laa jëm ak ñoom soo ma bàyyee ki xale fatima li la dese bari na fatimatu bint rasul ni ko li tax ma woo la dama xam ni li ma dese bariwul te ma bëgg a wax ak yow nga bàyyi xel ni li ma dese bariwul ba bu ma génnee àdduna nga war a mën a nga bàyyi xel li ma lay dénk nga defal ma ko ali ba ma ba ñu ma la mayee ba fii ma tëdd musoo gis sama awra maa ngi lay ñaan su ma faatoo nang ma sang sa bët bu mu tege ci sama awra ndax may nañ ma la ma sëyeeg yow ba fii ma tëdd di sukkur ci ci lalu faatu te musoo teg sa bët ci sama awra musumaa teg sama bët ci sa awra maa ngi lay ñaan su ma faatoo nang ma sang te bul gis sama awra ali maa ngi lay ñaan su ma faatoo nang ma génne néeg bi door koo wax samay doom bu samay doom yëg ni faatu naa te génne woo ma kër gi ali maa ngi lay ñaan su ma faatoo lu maama mii di ab xale ñu joxoon ma ko ba muy xale ma yar ko ba mu toll nii xale yi miinante nañoo moom su ma faatoo nanga jël lu maama def ko mu nekk sa soxna mu uufal ma xale yi ndax miinante na ak ñoom naa Ali ni ko li nga wax yëpp dëgg la li nga wax yëpp dégg naa ko waaye Fatima dema jotagul ci yow Fatimatu bintu Rasul noppee wax alina Ali na ba mu ko waxee ñetti baat yooyu ci la commencé moom saydatuna Fatima di baamtu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbaru wala hawla wala quwata illa billahi al ali al azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbaru wala hawla wala quwata illa billahi illa ali al azim loolu la di baamu di wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbaru wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim Seydina Ali nee na ba déggatuma baat yi Fatima di wax waaye gémmiñ gi rek laay gis tuñ yi di jug ak di wàcc ne su ma dëppoo rek maa ngi dégg mu naan subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbaru wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim Ali ne man dong ci néeg bi moom dong ma jaaxle lool wut aw mënumaa wut wallu ndax li ma Fatima ñaan te bëggumaa génn di woon nit muy xam ni Fatima ci biir néeg bi te ñaanoon na ma naa maa ko sang sang ko génne ko néeg bi door ko wax ay doomam te mënta yëgle te boobu Xasan ak Xuseyn ñi ngi ci bitti toog ci taatu garab gi te Ali ibn Abi Talib mënu leen a wax dara Seydina Ali xëcc buntu bi delloo ne bi ma dikkee tim Fatimatu bintu Rasul ne ma gis dënnu Fatima bi ak dig diggante dënnu Fatima bi ak jëwu Fatima bi am na leer gu ci doxantu su demee ba ci jëbi day dawaat ñëw ba ci dënn bi waaye ne maa ngi dégg rek dënn bii riir mu naan subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allahu wallahu akbaru wala hawla wala quwata illa billahi al alil azim Seydina Ali ne ma tiim ko mu di ko wax ba mu yàgg ne ma jékki-jékki rek mu mel ni ku hëyu ni laa ilaha illa allah muhammadu rasulillahi ruux nga rocceeku ne bi mu ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulillahi ma gis ni baat bi dem na côté nekke booba ruux nga rocceeku na Ali na Abi Talib ne ma wëlbati mu lànk ma wëlbati ndeyjoor mu lank ma yëg ni faatu na na ruux nekkatul ci moom mu am problème mu nag nan la koy sange te du ko wax xale yi nan la koy sange te du ko wax xale yi Ali delloo bunt génn ci biti tëjaat bunt bi woo Xasan mu ñëw mu ne ko damaa bëggoon nga may ma ndox ci ndab Xasan dem indi ndab li def ci ndox bàyyi looy doyee ndox mi mu ne ko sa yaay dafa mar a naan ma bëgg ko may mu naan su ma paree rek génnewaat ndab li dugal ci biir ab diir mu génnaat yor xott bi ni ko Xasan mayaat ma ndox Xasan dem tànk indiwaat bàyyi li ma dugal yëpp sama yaay ko naan mu ne ko waa dafa maroon yaram wee tàng naan na lépp demal mayaat ma ndox sey Seydina Ali nabi taalib taxaw Xasan demaat tànqaat ndox indiwaat jox Ali Ali dugalaat ci biir ab diir mu génnaat ni ko Xasan may mayaat ma ndox Xasan ni ko papa wax ma lu xew ñaari yoon a ngi nii ma lay indil ndox te li ma lay indil ci ndox man munu ma koo naan Xuseyn munu koo naan ñun ñaar bu ñu ko doon naan du jeex nga ni sama yaay da koy naan loolu lépp da koo naan mu ni ko waaw lenn li da koo naan li ci des dama koy sotti ci yaram wi ndax yaram wi dafa tàng sa yaay dafa xaw a siburu mais daanaka tane na sax ndax ndox mi ma koy jox mu di ko naan Xasan dem duyaat ndox indilaat ko naa Ali dugg ci biir daal di ndab ndox moo ma jeex mu waat ndab li taxaw jàkkaarloog Xasan Xasan may ma ndox Seydina Xasan ni ko papa papa tey di nga ma wax lu xew ci biir néeg bi li la duyal ci ndox yëpp bari na lool ndax loolu pour nit naan ko rek dafa ëpp papa lan moo dal sama yaay mu ne ko dara dalul sa yaay lu dul daal dafa mar yaramam tàng muy laaj ndox te soxla ko mu ne ko papa bàyyil ma dugg xool sama yaay mu ne ko ëpp naa def sa yaay fi mu toll nii yére bi ci kawam dama koo teggi di ci sotti ndox te bugguma nga dugg di gis sa yaramu yaay te xoolal Ali ibn Abi Talib mësta teg bëtam ci awra Fatimatu bintu Rasul la te yar wa ca la bokk kon musu delluwaat toog naa Xasan dellu toog mu duggaat ci biir sang Fatima ba mu yegg mu sang ko ba mu yegg waaye problème bi mu am moom Xasan mooy sang na ko sang na ko mais nan lay def ba génnee ko néeg bi parce que attanu ko moom dong te waxoon na ko ni ko d'accord naa dinaa la génne te xale yi duñu ko yëg mais mënatu ko parce que amul carte mënu ko yëkkati moom dong gàddu ko di génn te bu ko yëkkatee gàddu ko génn romb xale yi te bu boobaa xale yi xam li xew Xasan tëj buntu bi génn taxaw ca buntu kër ga ànd ak jaaxle bu dawee côté ndeyjoor xool kenn ci digg bëccëg gi mu daw dem côté càmmoñ. Hassan wala Ali. Hassan. Hassan. mooy doom ji mhm. ñoom ñoo nekk ci ëtt bi ali moo génn dem ca mbedd ma taxaw ci buntu kër gi waaye tëj na buntu ba pour bañ xale yi dugg ci biir ndax bu buñ duggee ci biir dana ñu gis ni sang na seen yaay sang na ko mi ngi ko tëral waaye bu demee nday jor du gis kenn mu daw dem càmmoñ du gis kenn mu taxaw ci buntu bi jaaxle lool jékki-jékki rek seen abu zarrinil xafaari mooy génn di ñëw xasan ali na abi talib da koo séen rek daal di koy hëyu mooy yuuxu ko bi mu ko yuuxoo abu zarrin ni ko kon de du jàmm sa yuuxu bi metti na de daw ñëw ni ko lu xew mu ni ko mbir am na de fatimatu bintu rasul wuyu jina boroomam abou zar ni ko loolu mënta nekk fatima mi ma romb démb fatima mi ma gis bërki démb fatima mi ma waxal bërki démb mu ne ko lu mën a xew daal lam ma ñaanoon yëpp defal naa ko ko ñaanoon na ma ma sang ko bu ma gis awraam def naa ko ñaanoon na ma ma sang ko def naa ko ñaanoon na ma bu ko kenn sang ko dul man def naa ko ñaanoon na ma ma génne ko kër gi te xale yi du ñu ko yëg loolooy sama problème ndax xale yaa nga ne ci ëtt ba toog te munuma leen a romb ak seen yaay ndax bu ma ko génnee ñu xam li xew abou zar ni dënn bam yàgg mu ne ko nan dem ñu dugg ci biir Abu Zarin ni ko yaa wax Fatima ni ko doo ko def waaye man waxuma ko ndax man fekkewu ma ko yow yaa ko promettre waaye man promettre ma ko daal ni ko daal ni ko nañ dem ma wax ak xale yi ñu dugg moom bëri na pexe Abu Zarin ni Xasan kaay Xasan ñëw mu ne ko kaay ma la kaay ma wax ak yow Seydina Xasan ñëw Xuseyn toog Abu Zarin ni Xuseyn àndal ak moom nga ñëw mu ànd ak moom ñëw ñu ñëw taxaw seen baay Ali ibn Abi Talib taxaw Abu Zarin ni jël loxoom teg ci mbaggu Xasan ni ko Xasan xam nga ma mu ne ko bu baax mu ne ko kii taxaw salan la mu ne ko mu ne ko sa baay bi kan la nekkaloon ci biir kër gi muy sa wayjur wu jigéen mu ne ko fatimatu bintu rasul mu ne ko fatima kuy baayam mu ne ko mouhamadou rasulillahi mu ne ko ana mouhamadou rasulillahi mu ne ko mi ngi ci bàmmeel yi mu ne ko salan la mu ne ko sama maam mu ne ko hasan an sa tante zeynabu mu ko mi ngi ci bàmmeel yi hasan an sa tante roqaya mu ne ko mi ngi ci bàmmeel yi hasan an sa tante umu kulsum mu ne ko mi ngi ci bàmmeel yi an sa an sa nijaay mu ne ko mi ngi ci bàmmeel mu ne ko hasan la jël si sa sa sa maam mouhamadou rasulillahi jël sa maam khadija jël sa tante roqaya jël sa tante Ummu Kalsoom jël sa tante Zeynabu tey moo jël si sa yaay Fatimatu bint Rasul soo nangoog soo bañee sa yaay Fatima fekki na maam sa baayam Muhammadu Rasulillahi Xasan wëlbatiku bët yi xonq cur rankoo ñi nar a sotteeku Xusayna ni ko lijjanti wu ma bàyyi lijjanti wu ma Abu Zarini lijjanti wu ma yaay yaay sama mag booy tuur rankooñ may yuuxu nit ñi daje booy jooy may jooy man ci yow laay xool bu sa rankooñ di wàcc may yuuxu nit ñi daje Xasan Xasan daal di péen ba rankooñ yi ndax bañ do topp ci moom di Xuseynu di jooy Xasan teen rankoñ yi aju mu jël Xuseynu taf ko ci dënn bi ni ko bis ni tey Ali na Taalib sax dootul sa baay Xuseyn naa la mat baay bis ni ki tey Xuseyn naa la mat ndey bis ni ki tey Xuseyn naa la féete ndey jor bis ni ki tey Xuseyn naa la féete càmmoñ bis ni ki tey Abu Zari ni kon lay jeex na nu dugg génne Fatimatu bint Rasul ñu dugg ci biir néeg bi jàppoo Fatimatu bint Rasul yóbbu ko ca armeel ya war koo denc ñaanal ko ba pare tëral ko ci kuusu bàmmeel bi Abu Zari ni moo régler situation kër ga waaye bi ñu tëralee Fatima ci buntu bàmmeel Abu Zarri ni dafa jaxasoo jaxasoo googu mu jaxasoo moo tax mu dëpp làmmiñam ci bàmmeel bi di wax ak moom naan ko maa ngi lay wax ni kii ñuy dugal ci sa biir yow bàmmeel mooy caatu Muhammadu Rasulillah maa ngi lay wax ni kii ñuy dugal ci sa biir yow bàmmeel moom sangu àdduna ak moom la mujjee gis ci doom maa ngi lay wax ni kii ñuy dugal ci sa biir yow bàmmeel moo jur ñaari ngënk yi maa ngi lay wax ni kii ñuy dugal ci sa biir yow bàmmeel boo seetloo àdduna ba dund na ba fii ñu koy dugal ci yow yi ñuy dugal ci sa biir bàmmeel maa ngi lay wax ni mësta gis ngant mësta gis deretu wasin xasan xasan mi nga xam ni mooy sangu adduna ak àllaaxira fatima mii mooy ndeyam te fatimaay sangu adduna ak àllaaxira ci jigéen ñi bàmmeel maa ngi lay bu ko xatal maa ngi lay ñaan bu ko maa ngi lay ñaan bu ko maa ngi lay ñaan bul soxor ci kawam maa ngi lay ñaan bu ko pëndal ndax kii mooy fatimatu bintu rasul daal di wëlbati ko wan ko ginnaaw ma ni la Aziz loola Abu Zari ni def ci fatimatu bintu rasul keroog ba ñu jëlee cheikh saydi aboubacar si radiallahu anhu wàcce ko ca Tiwaawan yëpp maam Cheikh Tidiane si neena na dañoo jàppoo sëñ kër génne ko ci saal bi di ko wàcce ci suuf Seyid Cheikh nee na may dox ci escalier yi ñu jàppoo néew bi di ko wàcce ci escalier yi nee na sama xel naan xoolal kër si ak ni mu toll xoolal grade yi ci sëñ Babacar si xoolal daraja ji ci sëñ Babacar si moo daan dox ci taax mi nit ñi di jëw di ko tàllal loxo ak di ko dékk mu leen di ñaanal moo daan dox ci taax mi ñuy daw di ko seetaan tey tey moom kër si dañu ko jàppoo mënalul boppam dara ñu teg ko ci benn bant bu kong di ko tuddee jaag ca la ñu tëral sëñ kër si wàcce ko escalier yi waaye lu njëkk ñu koy wàccee maam Cheikh daa def politique boo xam ni daa daaj lu kees mook sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ñu jël kees ga wàcce ko ci suuf gars yi topp kees ga yaakaar ni ca la néew ba nekk bi ñu toppee kees gi Seyd Cheikh Tidiane si ni nañ wàcc nañ gaaw wàcce néew bi balaa nit ñi rendre compte ni néew bi wàccegul ñu topp kees gi ba ci bayal bi Aziz boobu nag bàyyil xel ni bayaal boobu jumaa jooju fa nekk booba jumaa nekk fa bayaal la fa nekk bayaal boobu sëñ Babacar a ko jëndoon titre foncier la sëñ Babacar moo ko jëndoon ci xaalisu boppam moom Cheikh Seydi Aboubacar si wax nañ ni sax ba mu koy jënd sëriñ ab doon ko doon wax naan ko papa loo koy doyee mu ne ko damaa bëgg a dëkk ak yéen ba addunay tukki buggumaa tàqalikoo ak yéen nekke booba moom xam na ni foofa lañ koy denc ci bayaal booba bi ñu koy wàccee escalier yi ba escalier yi jeex bruit bi nekk ci ginnaaw ña toppoon kees ga mel ni dañ koo dégg dal di wëlbatiku naka lañ wëlbatiku rek dal di seen ñee jàppoo jaag ji ñu xam ne kon kees gi dara nekku ji ba Babacar Si lañ tëral ci jaag ji ñu daw ñëw songu jaag ji Serigne Cheikh ni teg leen ko fi ngeen toll ndax bu ñu continuer beneen néew dina am ñu teg Babacar Si fa ñu toll looloo waral boo eggee ca ëttam ba fekk fa benn karo ñuul bu ñu fa teg foofee la ñu tegoon Cheikh Seydi Aboubacar Si bi ñu koy jullee bi ñu yegsee ba foofa Serigne Cheikh ni leen teg leen ko foofu ñu teg ko mbooloo mi féete ko kanam waaye mbooloo féete ko ginnaaw maam Cheikh nee na man mi jëpp nag bañ tëral sëñ Babacar Si ci foofa Seyid Cheikh nee na maa tàggalikook sama sago lu la tàqaleeg sa sago mu ne dama xool sëñ kër ñu tëral ko ci benn bant daraam yënguwul nee ma téen xool asamaan si gisuma dara nee ma xool sama kanam gisuma mur gisuma garab gisuma dara mu mel ni àdduna dara newu fi lenn rek laay gis mooy bàmmeelu sëñ baba kër ma ne yàlla mën lu yàlla jox ni bis dina ñëw mu jël ko xoolal li yàlla joxoon sëñ kër xoolal garab bi nekkoon ci sëñ Babacar xoolal daraja ji nekkoon ci sëñ Babacar xoolal doole ji nekkoon ci sëñ Babacar xoolal may yi nekkoon ci sëñ Babacar adduna yëpp yaakaar ko tey moom lañ tëral ci bant bu wow bi maam Cheikh nee na ma koy xool ba mu yàgg ma naan yàlla recevoir nga néew bu nekk yàlla jël nga néew bu nekk yàlla néew bu nekk fekk si na la yàlla yaa jël yontu yàlla Muhammad yàlla yaa jël Cheikhu Tidiane yàlla recevoir nga néew bu nekk waaye tey yaa ngi recevoir néew bu am personnalité Babacar si mii ñu lay jox musulaa mooy Babacar Sy mii ñu lay jox musuta wax lu dul dëgg Babacar Sy mii ñu lay jox mësta teggi tànkam ci sunna Seyduna Muhammad ne daal ni alaaji daal ni Baye Mbàkke si sa baay moo ñaanaloon Cheikh Alhaaji Malick Babacar Sy Baye Mbàkke ñaanal Babacar Sy ñu jàppoo Babacar Sy yóbbu ba ca kuusu bàmmeel ba ba ñu eggee ca kuusu bàmmeel ba teg Cheikh Seydi Aboubacar Sy la Abou Zari ni defoon ñoom nag ñu taxaw ñoom mag ñi kenn amul fit pour jël sëñ Babacar def ko ci biir bàmmeel fi ñu taxaw ñoom mag ñi dañuy xoolante kenn ku nekk di xool moroom ma kenn ku nekk di xool morom ma ndax ñi ci biir bàmmeel bi ñemewuñoo jël Babacar si dugal ci ñi taxaw tiim ko ñemewuñoo jël Babacar si def ci biir bàmmeel bi Cheikh si nee na man liir situation bi yëg ni tekk ji bu yàggee beneen néew dina am ndax ni nit ñi ne tekk yëg naa ni xoli jam ñi jël Babacar si def ci bàmmeel lañ àttanul ku toll ni Babacar si ñu di ko def ci bàmmeel moom lañ àttanul moo tax Seyid Cheikh nax ni fa waa ajaban fa waa ajaban li yawmin qad raaytuka mustalan fi xufrati mu ni man de yéemu na yéemu naa xaw ma ku yéemuwul waaye man Cheikh Tidiane yéemu naa kaay leen yéemle ma lu ñu lay yéemle mu ni ku toll ni Babacar si mel ni géej ñu gas pax mu xat mu xóot mu lëndëm di ko ca dugal Cheikh Cheikh Tidiane ne ku mu yéemul man Cheikh Tidiane si yéem na ma ku mu yéemul man yéemu naa ci ku toll ni kër si ñu koy def ci bam ñu koy def ci biir pax ne ñu ñëw ba ñu taxaw taxawaay bu yàgg maam Cheikh mu mu moo njëkk a addu bi mu addoo ndax booba jaaxle giñ jaaxle kuñ ñu waxal ci mag ñi nga yu say rankoñ tuuru kuñ ñu waxal nga yu say rankoñ tuuru Seyid Cheikh kam ni cëgg desatul ci guy looloo tax nag shaahir ba wax ko ni te bal la jël xusnu baadal xaw fi wam tazaja la maa xadaa sayda saadaati wan daraja is yarfaul alqawmu bayna alqawmi mundafian ila almaqabiri saaha dëhru waa xaraja nee na keroog bi ñuy dugal sëñ Babacar ci bammeel nit ñi yuuxu wuñu mais jamono moo yuuxu ni wuy man fu ma jëm ndax kama dénkoon sama bopp man jamono ñu ngi koy def ci bàmmeel fala asru asruka in amarta fala yura ila mutian bukratan wa asila jamono moo jël buum takk ko ci baatam dénk ko Cheikh Seydi Aboubacar si looloo tax biñ koy dugal ci bàmmeel saaha dëhru waa xaraja jamono moo yuuxu ni wuy man fu ma jëm ndax kama dénkoon sama sama bopp ñu ngi koy def ci bàmmeel maam Cheikh ni wax leen alhamdulilahi rabbil alamin ñu wax ko ñetti yoon mu yëg ni dënn yi rëcc na mu ni rob leen Babacar Sy balaa leneen a xew ñu jël Babacar Sy def ci biir bàmmeel wan ko ginnaaw biñ ko wanee ginnaaw nag di dellu ca kër ga ci la Serigne Cheikh Tidiane Sy wax ko ni ko ginnaaw def nañ la ci bàmmeel tey lañ la gën a jàpp te yaa ngi ci biir bàmmeel yazidu alayna axzatan wa huwa ghaibun wallahi tey lañ la gën a jàpp wallahi tey lañ gën a téye ci yow ndax yaa ngi ci biir bàmmeel ni ko waaye li ma gën a neex ci ci ci denc giñ la denc ci biir bàmmeel mooy dëggal waxam moom sëñ Babacar moom sëriñ Cheikh bi mu dogee ci saal bi sëñ Pape Malick xool ko daal di jaaxle maam Cheikh dani ko pap bul jooy sabaay baay bii fii ñu ko téye rek lañ ko ñàkk buñ koy dugal ci biir bàmmeel muy dëkkaat ñun ci saalam bi diir biñ ko téye rek lañ ko ñàkk sama turandoo sëriñ Abdoul Aziz Al Amin bi mu dogee dafa waxoon sëñ Ba sëriñ Cheikh Tidiane si ni ko Cheikh Tidiane fan la ñu jëm bu ñu ñàkkee Babacar si fu ñu koy wuteeti ne Cheikh Tidiane sëriñ Cheikh ni ko fu ñu jëm Aziz dara du xew ndax Babacar si mii bi jaawam bii rek lay yóbbaale bàmmeel bu yoroon fi la koy bàyyi bi jaaw dong nga koy topp te Babacar si bokkul ci nitu yàlla yiy faatu bi ñu ko dencee bay duggaat ba tolloog saal bi bi ñuy yéeg la Seyid Cheikh si la Seyid Cheikh Tidiane Sy Al wokk sëñ Pape Malick ba mu xool ko mu ne ko xoolal saal bi mu xool saal bi gis Babacar si toog ca kanaape ba mu daan toog sëñ Abdou gis Babacar Sy toog ca canapé ba mu daan toog Alhaaji Moustapha Sy Jamil gis Babacar Sy toog ca kanaape ba mu daan toog mag ñëpp gis sëñ Babacar toog ca canapé ba mu daan toog te kat ñoom gox ñoom diggante yi ñu nekk jege yoowul ak diggante bi sëñ Pape Malick waaye ñoom ñëpp ku ne nee na jàkk sëñ Babacar Seyid Cheikh moo leen xool ni leen toog leen bu toogul nit ñi dinañ ñëw laajte lu xew te buñ gisee kër si boo xefee leneen dina fi xew ñu doora a wëlbati ku toog ndax la mu waxoon sëñ Pam Malick ni ko buñ koy denc muy dëkkaat ak ñun bi ñu wàññeekoo nag la ko wax waxam jooju ni ko yazidu alayna axzatan wa huwa ghaibun ni ko waaye bàyyi maa ngi lay ñaan te nga wax sa soppee yi di wax sa soppee yëpp ni leen di dugal giñ la dugal ci bàmmeel teewul nga mën a jëflante ak ñoom nekke sëñ Babacar si mi ngi ci biir bàmmeel sopp ak foo a nekk ak ruq boo a nekk ak dëkk boo mën a nekk Seyid Cheikh nee na boo bëggee sañ sëñ kër boo yàkkamtee maam Cheikh ne jarul dem toogal ne fi nga toog bu xatee Seyid Cheikh ne jarul dem toogal Babacar si moo jege ay soppeem ba boo ko bëggee ziar yi te bu xaw a sori Seyid Cheikh ne toogal fi nga toog nga def sa ziar fala la Babacar si di fekk bayni wa baynaka yaa darixal am jadi ahdun yasirru ala tariqi tajaddudi yay quut bu yaa xaw سل أولى بحر الندى سريو كتامبور له خير بن جامني يا خليفة واو يا خليفة تيجانو يا خليفة يا خليفة تيجانو Bakar yaa yor tariixa bi yor sariixa bi yor leneen yaa tee ba jooyunu Maodo si bulu xaare yaa xalifa yaa xalifa yow général nga mbay yaa xalifa yaa xalifatij Pape Sidi li moo taxoon ma ne la xajul ci génn guddi dañ koy juqat juqatee rek ndax xam naa ni bu ñu bëggee bu ñu bëggoon jaar fi ñu war a jaar yëpp kon heure bii ñu ngi ci gane àdduna sëñ kër ba léegi looloo tax ñu juqat juqatee ko noonu pour wan la ni Cheikh Seydi Aboubacar si mënee su ko waxtaanee ci benn guddi waaye comme waxtu du ñu ko may nag te daanaka dafa mel ni waxtu wi daa xaw a nu mu tuddati. ñaari jigéen ñi gën a wow ci plateau bi xol. Adja la ak Kumba Gise ñaar ñi ñoom jooy nañ ba dee. ndeysaan waaw xam nga euh, Pape Seydi sëñ Babacar si. yàlla nañ ko yàlla fayal xam nga lu tax yàlla nañ ko yàlla fayal. Hmm. man damay wax ni. képp kuy njabootu Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu foo toll war nga koy war ngay ñaan yàlla fayal ñu sëñ Babacar si ak ku dul njabootu sëñ Babacar. Mm-hmm. li tax mooy sëñ Babacar dañoo permettre ñu xam suñu bopp. Mm-hmm. sëñ Babacar dañoo permettre ñu yëg sunu bopp sëñ Babacar dañoo permettre ñu xam nu ñuy def ba jaamu suñu borom da daan dénkaane moom Cheikh xalifa ci njaboot gu nekk ni la li nga war a njëkk fonk mooy sa diine. on li nga war a njëkk a fonk mooy sa diine da ko daan dénkaane lu mu gàtt-gàtt juróomam yooyu dina ko dénkaane bu dee yabal nit ci barab sax dina ni ko balaa ngaa tëj waxtaan wa nag sama juróom yi bul ko fàtte mooy seen diine seen tariqa seen métier seen dayre seen yoonu tiwaawan mu ni yii juróom nit du ko fawee sa diine ngir sa digganteeg sa borom xanaa xamoon ni bëri na ku la naan sëñ Babacar lu mu ñaan yàlla def ko alaaji Maalik ga ko juróog roqoye njaay taxul de déedéet loolu yittey boppam la sa Cheikh Seydou kër si moo def yitte ju toll ni bu dékkee loxo yàlla yàlla yàlla Seydi Cheikh Tidiane si ma logaat nee na dafa dafa nekk Tiwaan moom Seydi Cheikh nee na ñetti xaritam woo ko yoo xamante ni Dakaaru gi lañ jugee booba dafa am décret bu war a jugee euh, euh, ci ci ci ñi ñu xaw ma coloniser woon xaw ma war a ñëw fii mais décret yooyu ay poste yu ñu doon joxe la Seydi Cheikh nee na ñooñu woo ko ni ko ñun nag bëgg nañ cee bokk te dañoo bëggoon nga yóbbuñu ci sa baay kër si mu ñaanal maam Cheikh nee na man leen jël leen saxaaru suba gi ñëw Tiwaawan bu ngeen ñëwee ñu fexe ngeen gis góor gi jël saxaaru ngoon gi dellu looloo waral Tiwaawan bu ñu mësaan a xëy suba bala ñoo ndékki sëñ Babacar danaan bàyyi leen ba saxaaru suba teel ngeen ngeen door defar ndékki ndax gan ñaata la ñuy am voilà ndax gan mën naa bokk ci saxaaru suba gi du fekki ndékki li mu ne ba bu dee ngoon gi danaan bàyyi leen ba saxaaru ngoon teer ngeen door a yàq añ bi looloo tax Tiwaawan ba léegi sax loolu daanaka moo fay dox bala ñoo ndékki une ay midi 11h midi 1h la ñuy ndékki bala ñoo añ 16h 17h ba léegi boo demee loolu nga fay fekk. waaw moom yéex na loolu na noonu maanaam rythme boobu dañu dem ba habitude ba ba mu nekk seen habitude boo demee kër gu mag rythme boobu fa nekk bi ñu xëyee ñëw ci saxaaru suba gi daal di nuyu daal di nuyu Seyd Cheikh mu introduire leen noonu la ñu koy ci tubaab yóbbu leen ci sëñ Babacar bi ñu yeggee Seyd Cheikh nee na li ko yéem mooy sëñ kër ba léegi. waaw fi mu toog sëgg siggiwul. kenn ku nekk sa gémmiñ ngay jël rek dëpp ci noppam wax sa soxla ba yeggal mu ni la yàlla baax na keneen jël gémmiñam dëpp ci noppam wax soxlaam ba yeggal mu ni ko yàlla baax na ñu pare sëñ Babacar ni pat Seyd Cheikh ne ma ni ko waa papa ñi dakaar lañ jóge ñëw di ñaanlu si mu ni ko yàlla baax na Seyid Cheikh ne man leen nañ leen dem ne ñu génn ba ci biti ki ci gën a dëgër dangaam ni ko Cheikh Tidiane sa papa moom nag wax dëgg yàlla war na noo wax ak moom jugee dakaar ba fii amul lu mu ñuy wax lu dul yàlla baax na loolu mooy ñaan gi bindul jox ñu joxuñu saafara joxuñu dara Seyid Cheikh ne ma ni ko yàlla baax na la wax jàpp leen yàlla baax na ji li mu wax rek ngeen mën a jàpp te bu leen ma sonal nag ndax nee na booba ma it maa ngi bëgg a mer ndax sama baay nee na bi ñu demee nag ñoom ci suba ga heure boobu jot ñu woowaat wootewaat ci téléphone bi mu sone ñu jox ko ko maam Cheikh nee na ki ki ko woo bi mu décroché dañu ko dimbali ñu ngir yàlla ñu jot sa baay ba buñ mënee wax ak moom wax ak moom buñ mënta wax ak sa baay ñu yóbbante la ci moom Seyid Cheikh ne man leen lu xew mbaa jàmm ñu ni ko lenn maanaam ñu ni ko huit heures pile kenn ku nekk ci ñun jot nga convocation bu la wan ni poste ba nga doon ñaan si jox nañ la ko ñu bëggoon koo sant te wax ko nag yàlla baax na ji lan la Seyid Cheikh ne ma ni leen loolu du ngeen ko lijjanti maa koy lijjanti nee ma fekk sëñ kër ci biir ni ko papa dama laa soxla lenn rek laa lay laaj dama gis ni ay at ngi nii sax du ñu fi ñëw démb mais ñi fi ñëw démb tax ma ñëw ay ata ngi nii ku la dékk loxo da nga ko naan yàlla baax na doo ko ñaanal incha allah yàlla baax na ñaanaloo kenn bindaloo kenn dara te léegi man ma gis ni ñi ngay ñaanal kenn du fi ñëwaat ndax seen aajoo ngi faju ma bëgg xam yàlla baax na ñaan gu bees la wala daa am leneen looy wax après ne sëñ kër ni dënd ba mu yàgg mu ne ko Cheikh Tidiane si xanaa yëguloo ni nit dina yegg ci boro digganteem ak boroomam foo xam ni lu mu xalaat yàlla def ko te nag loo xalaat yàlla def ko ngay ñaan yàlla gàtt xel la te man Babacar si lu ma namm yàlla defal ma ko moo tax dootuma ko tàllal di ko ndax rusati naa tàllal loxo yàlla di ko ñaan moo tax ma ne la sàmmuk sëñ Babacar war naa mën a tax lu ñaan yàlla mu nangu ko Abdoul Aziz Doucouré tey nag da ngeen war a jox pañe Nescafé parce que invité la yi ngeen boole leen benn parce que ñoom li ñuy naan Nescafé dafa bëri étudiant yi wax dëgg yàlla maa ngi leen di dénk yéen étudiant yi bu ngeen demee beneen dernier message bu ma leen di wax ngeen dimbale ma ci université bi ñu bàyyi di fa weer caleçon gouvernement bu bees habitude yu bees <laughs> wàcc leen seen caleçon yi ngeen di weer ci université bi comme ça du ñu doon jooy noppi. Mm. wallahi émission bi neex na. te vraiment damaa damaa damaa waroon tàmbaleek yow Abdou Aziz. lii boo ko tàmbali woon te étudiants yi. xeexuñ yow étudiants yi ñoo bokk boobu beneen bi Aziz nga ko jox. yéen ñaa ne Ah. jox na ko benn. jox nañ jox nañ kooku benn kooku invité la yow. a Diop man Aziz moom que depuis quand ngay coordonné émission bi. <laughs> ah Fatima am kaay ñu may la bon Vivita comme mayooñ ko kenn nga dem suba comme yow da ngay maquillage di ñëw ci télé bi di ñu jox Nescafé rek kaay ñu may la dara <laughs> am ni merci beaucoup yàlla na la yàlla defal jàmm. si vous avez un message à faire passer le gars président. Euh, allez-y damay damay rek. non ah bon laisse-moi juste lire euh, bu may tàggatoo. suñu paree je te donne tiens un bon pour Fatima. Ah, notre ah, Fatima nationale. voilà yaa am na ku ko gagné ba pare. kan moo ko gagné. am na ku ma la capture yónnee ah, la ko waaw ki nga ma capture moom laa naroon na ko jox boobu. léegi mbokk yi émission bi jeex na. waaw Abdoul Aziz yow da ko santee ngërëm te micro <laughs> <laughs> euh, am kontaan rek ci plateau bi macha allah di gërëm mbooloom soppe yi ñuy seetaan ndax bi ñu yégee plateau bi kenn nelawul ñu bëree ngi may message sànq ba tey am na ñoom dañu xeer sax di def appel ndax seen cofeel ci sëñ Babacar mhm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm maa ngi nuyu ñi ma àndal nag euh, di samay rak ñu ñëpp benn famille lañ macha allah sëriñ Pape Diop Ndiaye Serigne Aw Abou Ndiaye Abdou sëriñ Serigne Ngañ Mouhamed Ndiaye ah ak Seydina Aline maa ngi leen di bégge samay mbokk lañ ñu baax lañu Abdou Aziz ñu ngi koy gërëm bu baax waaye di nuyu sunu woy jur nag di ñaan yàlla na yàlla dolli ko wér defal ko jàmm maa ngi profité di wax soppe yi incha allah le 10 mai euh, waa 100 pour cent Abdou Aziz ca Gàmbi la ñu war a fekk ji defal leen tàkkusaanu Seydina Muhammad muy am ca Gàmbi incha allahu rabbi na ko ñëpp waaj te bàyyi ko xel euh, Abdou Aziz ñu ngi la ci invité nag. incha ñu ñu dem Gàmbi. incha allah incha allah yal na yàlla defal ñëpp jàmm. ci barke Seydina Mouhamed ñu ngi nuyu Serigne Pa Ousseynou ñu gën koo xam ci Pof Record di jàmbaar lool liggéeyam mu yéwén ci lool yàlla na yàlla defal ko jàmm ci daraja yonent bi ziar nañ képp ku ñuy seetaan ak kuy bëggee yonent bi wasalaamaaleykum. waaleykum salaam Abdoul Aziz maa ngi leen di sant bu baax. Pape Seydi waaw Pape nuyu bu baax Cheikh Gueye. Cheikh Gueye Al Amin. Cheikh Gueye waaw sama goro la sama rakk ma bokkal ndey ak baay. mooy mooy soxnaam. ndeysaan moo ma doon moo doon kii léegi waaye di di ñaanal bu baax a baax waa 100 pour cent national Abdou Aziz Doucouré bépp ni maa ngi gis message mais mënuma tontu yëpp Serigne Babacar ca Waalo ñu ñaanal ko bu baax a baax Alxaj Tabaski jóob moom it ca Waalo ñu ñaanal ko bu baax a baax a baax ñaanal bu baax a baax tamit soppee sëñ Babacar si yi nga xamante ni kenn ku nekk yaa ngi bàyyi woon sa yitte yëpp allo Bombe booy euh, mi ngi mi ngi mi ngi message ah kii nu mu tuddati Ibrahima Guèye waa Pout meen bu deux waaw <laughs> waa Indo bëgg sëñ Babacar si ci moom ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax Pape Sidi eh, muy euh, Pout gépp awlaadu Tidiane ba fa nekk ak euh, dawaay dafa nekk soppe sëñ Babacar yi fa nekk yëpp incha allah di leen jox rendez-vous euh, jour laylatul xadri foofu la ñuy dinañ dem foofu incha allah Pout féete ko ak ñoom ñu waxtaanee. Abdoulaye baal ma nga nuyuwaale Cheikh bu Baye Mbaye Donde bu mu ba may message moom ba nga yeneen taalibe sëñ Babacar si muñ leen moom Cheikh sama kër la doon seetaan émission bi Cheikh Tidiane sama xarit sama doom macha allah ñaanal leen yàlla fay leen yiw ñoom ñëpp waaye Pape ñaanal bu baax a baax tamit euh, waa mhm. waa Tiwaawan yëpp teg ko ci loxol suñu bàjjanu bopp boobu soxna mu kël soom mbay euh, ñaanal ko bu baax a baax a baax muy sëtu sëñ Babacar waaye muy ànd ak ñun bis mu nekk ci lu mel nii bu amee waaye ñaanal sunu sëriñu bopp sëriñ Sidi Ahmad si al amin nga xam ni moom la ñu yàlla booleel ak magam yu baax yi jaar ci sëñ Moustapha si al amin ba yegg ci Pape Aïda waaye yegg ba ci xalifa bi sëriñ Babacar si Mansour ñoo ngi ñaanal ñëpp yiw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xamante ni nag dara tawu ko lu ci rëcc rek ñu baal ñu ko te xam ni ni ñu ko bëggee woon ak ni mu demee xëy na du mel noonu ndax Ablaye Ndiaye Ngalgu ñu ñaanal eh, déedéet du déedéet waaye ñaanal nañ ñëpp daal ñaanal nañ soppe Serigne Babacar yëpp maa ngi nuyu ñaari Serigne Babacar si yi gën a mag fële euh, Tiwaawoon jamono ji mooy Serigne Babacar si porte parole Ndiol Fouta ak <laughs> Serigne Babacar si Mansour xalif bi ñoom ñaar ñoo ñaari sëñ Babacar si yooyu mm. ñooy sëñ Babacar si yu mag yi mm. nuyu naa leen ba pare keneen du duñ ko tegaat yen ñi bëgg sëñ Babacar si yëpp buñu leen toppee fii ci waxtu fii la ñuy euh, fanaan Ah, cant annuel buy am sixième édition euh, Sidi mi ne ci kër gi moom moo ko euh, yëglu euh, ngir ñu jàppale ko ci di am ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Mbacké mbay xalif de Cheikh Sadji mbay cant Serigne Assane mbay gi di am sixième édition bi incha allah Pikine rue 10 Tabo Cham hommage à Baye Yatma Thioune ñu ngi leen cay nekk. Euh, te di ko yëgal mbooleem ñu ñuy seetaan ci 2STV di leen wax ne cant googu bu ko kenn wuutu euh, Sidi j'espère que j'ai été euh, pragmatique sur ce coup il y a beaucoup de personnes qui me disent waaw sëñ Babacar Si man man man xam naa yéen ñëpp maire euh, maa ngi nuyu maire maire maire maire maire kii nii mais maire bu bëri problème tama waay waay waay maire bu bëri problème bi waay ne na ma dinaa la seetaan bis boobu tudd ma dem ba koy waaj a tudd sama xel mi dem ay tee demal yow waxal yow ki la abiaz ah ok sa jooy yaa ngi ci internet bi nag ay Sofia Thiam jooy yow. Eh, <laughs> waxtaan bee neex merci beaucoup oustaz moom nag diggoon nañu ne dinañu jooy lii la ci bëggoon waaye nag jooy ñu ñun ay gaynde lañ duñu jooy ah, ah. waxtaan bee neex <laughs> macha allah kontaan nañ di gërëm suñu sikarkat yi ak suñu étudiants yi nga xam ni euh, tey teewoon nañ fi di remercier spécialement Padane Couture borom Grand Médine ci euh, yére bu rafet bi nga xam ne ñawoon na ma ko c'est au 77 818 13 21 waaye à chaque fois ki nga xam ni mooy jaar ci or yi li jeeg ji bëgg gold bi euh, kooku mooy négoce d'or euh, laxaat ak madame Mbacké merci beaucoup ku ci bëgg da ngay def le 77 950 57 56 am na marché HLM waaye également am na Liberté 5 daw leen ngeen xool ko ci nouveau nouveauté yi nga xam ne wàccee na ko ci Korité bi incha allah merci beaucoup et à allah bi Merci beaucoup euh, président Diallo, président Diagne. Vous pouvez lancer un dernier message avant de lever le jotaay. beaucoup Pape Sidi donc euh, avant tout di sant ki nga xam ni mooy sëñ Abdoul Aziz ci waxtaan bu mu ñu defal am na solo torop torop di ko may aussi di profiter di ko may sama maam mère Diaw nga xam ni moom yàlla yàlla gën a guddal fanam sëñ Babacar lay bége ak samay tante ak samay bàjjen ak samay cousine bëgg nañ sëñ Babacar lool donc ñu ngi lay sant bu baax bi jàng yi neex na loolu te dugg na suñu xol yi daal donc ñun dernier message bu ñuy lancé ñu ngi koy njëkk lancé ñi nga xam ne ñooy nguur gi donc ñu jàppale étudiants yi bu baax a baax étudiants yi aussi ñoom li ñu leen di wax mooy réforme yi nga xam ni jël nañ ko teg ko au niveau de l'UCAD ñu xam ni pour ñoom la réforme yi teguñu ko pour ñi xam ne ñooy administration bi wala pour ñeneen ak ñeneen mais pour ñoom la réforme yooyu foog ñu jël ko étudiant bu ne ne lii yëfi boppam la approprié wu ko loolu mooy tax mbir yi mën a dox mais bu dee teg nañ ko mu am ay récalcitrant ak yooyu noonu rek liñ ci bëgg résultat bi nuñ ko ci am di leen wax aussi ñu am benn patience bi ndax lépp mënul mënul ndax lépp mënul xëy rek sorti donc étudiants yi nañ am benn patience am benn compréhension am benn maturité te di leen wax ni aussi ñoom bu dee seetaan nañ plateau bi donc dégg nañ leen bu baax xam nañ bu baax fi ngeen leen di xaar xam nañ fi ngeen leen di invité te njort nañ ni ñoom étudiants yëpp dinañ jëm foofu je vous remercie. merci beaucoup président Diagne. waaw di sant ñi nga xamante ni tey. vraiment yóbbu nañ ñu fa sori euh, ab murit bu daanu laa sëñ Babacar vraiment waxtaan wi am na solo si kar si it am na solo lool ndax soxna see ak ñoom soxna yëpp mhm. elles étaient en trance daanu nañ leer macha allah euh, jooy ci lii de moo ëpp solo lool jooy ci leneen yal na leen yàlla fay yiw donc message bi nga xamante ni dañ koy lancer Sidi Diop den wax la ñu koy lancer à l'endroit euh, des étudiants mais aussi à l'endroit euh, di nouveau gouvernement ni ko sama naataango bi waxee muy président Aliou noonu rek lañ koy waxee parce que les mesures euh, qui ont été prises doivent être appliquées à tout point de vue waaw te wax dëgg fa yàlla muy ci côté autorité yi su fekkee dañ ko war a appliquer buñ ci xool dara nañ ko appliquer avec rigueur nañ ko appliquer avec courage bu ñu ko defulee rek tappale bi dina bari étudiants yi aussi ñu xam ni lii ñuy def les les hommes passent les institutions demeurent. Mm-hmm. loolu nag chaque jour dafa doon loo xamante ni benn refrain la ci sénégalais bi benn refrain la ci intellectuels yi les hommes passent les institutions demeurent dañ koy wax rek. Mm-hmm. mais il faut ñu appliquer ko. président bi nga xamante ni mooy le président nouveau président lors des campagnes dafa am benn promesse bu mu defoon mooy ci wàllu loterie bi ci wàllu pari foot et tout ça loolu jeune lañ ñun on est contre on doit le bannir donc loolu noonu yëpp bu jugee ci société bi jàpp naa ni société sénégalaise bi dina doon société boo xamante ni dina neex gouverner. Mhm. ñëpp aussi nañ ko ñaanal taal ak yàq on est on doit le on waaw taal yàq et tout ça loolu étudiant pour man du ko def parce que on ne sait la branche sur laquelle on est assis waa daara ji mosuñoo def loolu. te yéen bokk effectivement lu lu lu lu ñuy ñaawlu la. da ngay bokk ak nit ndaay ak bàyyi mu dem Medina di jàngi yow nga ñëw université boo meree taal moom bu meree sëriñam defal ko. je vous rejoins Pape Pape Sidi ce message est fort. waaw message bu fort nga jàllale. message bi. comme yow yàlla dalaa dimbali nga doon nitu télé mhm. fa nga jote ñun jotewuñ fa mhm. jàppal ni ñu ngi koy wax ci suuf kon bu ñu mhm. agsee fii nga waxal ñu ko ci kaw vous ne faites que voilà renchérir nos donc ñu ngi leen di sant mooy gën am solo dinaa ko continuer wax moom mën na ko wax ñu dafay far mais yéen mm-hmm. yéen a ko mën a gën a jàllale seen moo tax ma ni ñun dañ ko doon wax ci suuf yàlla dimbali ñu tey ñu am plateau bu ñu ko mën a waxee magnifique moom mu rafraîchir suñu mémoire ci loolu noonu ñu ngi bannir bépp étudiant boo xamante ni yor nga xeer di sànni mm-hmm. bépp étudiant boo xamante ni jàpp nga ni jaasi ak paaka mooy lijjanti suñu ay problème li lijjanti suñu ay problème mooy xel absolument tey société sénégalaise bii ça nous appartient nous sommes les futurs de demain tey fii Diomaye toog ci 6 mois ci ginnaaw ku ko waxoon ni ko di nga fi toog du ko gëm 6 mois sax dafa sori trois mois ci ginnaaw tey ñaari concours yi gën a sérieux ci Sénégal moom la réussir andoo muy magistrature ak enaan yàlla dogal mu def choix mu jël ENA doon li nga xamante ni mooy inspecteur des impôts yàlla dogal tey mu doon président de la République c'est un produit de l'université gis naa recteur bi bi mu ko tweeté di ko félicité bokk de gens yoo xamante ni dañ doon attaqué recteur bi man loolu du la may rafetlu parce que produit de l'université la tout le monde doit être fier de ça tey ñun suñu suñu suñ suñu fierte la ci loolu noonu leneen li mooy fac droit la juge man nag kay fac médecine la nekk man fac droit laa nekk fac droit boobu mu jugee vraiment la faculté a besoin de lui fac de droit. Moussa xam naa la waaye droit. président bu lii Moussa de droit fac de droit tey alumni laa wax tey tey alumni rek Moussa la ñi nga xamante ni tey tey tey ñi nga xamante ni nii ay alumni lañ ay ressortissants de la fac de droit lañ yàlla dënk leen ay ndomboy tànk boo gisee université yu bëri Pape Sidi maa ngi jégalu mhm. ñu développé wu <laughs> développé wu laa la wax ci wàllu infrastructure c'est parce que seen ay ressortissants bu ñu fa génnee bu leen yàlla dénkee ndombol tànk dañ fay ñëwaat def fa loolu mooy waral université yi du ñu am problème tey nag bu ñu yàlla dimbalee Basirou nag yàgg naa def yaa ngi ko doon tere tey bu ñu yàlla dimbalee tey bu ñu yàlla dimbalee <laughs> fac de droit génne lu toll ni président de la république le mhm. père de la nation ah université faculté boobu mu génne bu fa ñëwaatee waruta dafa war a réer mais gëm naa ni bu fa ñëwaatee du réer. Mhm. donc kon loolu na ci bàyyi xel. na defar université bi mais nag na privilégié fac de droit. vaccine ah. ah, vaccine ah, yaa ngi dégg mu ngi mi ngi ràcc ci kanamam de amul médecin doxin ñu ni nga yeewi leen ñu tëddi waaw ndax ma nee dañuy laaj ba xam sëñ Babacar bi daa jeex ba ñu mën a tëddi soxna Zeynab oh. sëñ Babacar bi jeex na de xaaral mën ngeen a dem tëddi soxna Zeynab tëddi incha allah <laughs> yow ba trois heures jeex waa kii a ak yow mayal ñi démb mayewuñ délicace eh. tey nañ maye délicace Kumba gaawal maye délicace Pape Sidi a ah, beneen yoon na nga jooy sa xol bi wow na Kumba <laughs> maa ngi profité ci waxtaan bi rek eh, ah. <laughs> nuyu suñu benn maman maman ah. Mati ak euh, Bolo euh, maman Mati depuis Nouakchott depuis waxtaan bi mu commencé ba léegi euh, mu ngi scotché ci waxtaanu Serigne baaba Sy bi di rafetlu bu baax jotaay bi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo di say suñu ay étudiants ñëwoon fi indil ñu quelques éclaircissements di remercier Soxna Gueye borom label Beauty ci tissu bu yaañ bi son numéro de téléphone c'est le 77 430 82 24 merci beaucoup Pape Sidi et aux téléspectateurs merci beaucoup Biba. waaw kay Pape di merci beaucoup di rafetlu jotaa bi tey neexoon na trop macha allah euh, comme d'habitude sama sponsor leader muy Adam Bellevue Couture nekk ci Ouest Foire numéro téléphone am di 77. 402 34 22 merci. Adam Bellevue Couture yàlla ko yàlla may mu mën a couture leneen lu gën a rafet. yow nga ni ku la ñawal yow. Pape man boobu broderie moo ma ñawal comme d'habitude waaw Mbow broderie moo ma ñawal comme d'habitude ma koy remercier moom Mbow euh, numéro de téléphone am di 77 77 381 27 33 77 381 27 33 Pape boo may xoolee nii damay reetaan alors merci beaucoup Mbow maa ngi koy jaajëfal bu baax Pape di may woote nag. Euh, ci ci neuvième édition. ci neuvième édition wu ndogu euh, guddi maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni. macha allah njabootu euh, Chérif Abdourahmane Fall ci laa la ñu ngi koy organiser chaque année euh, fële ca terrain basket bu Nord Foire dimanche bi lay doon incha allah ce 31 mars incha allah ñooñu jaral nañ ma ko ñooñu sama sama ay sëriñ lañ ah di leen woo ñun ñëpp incha allah ci guddi maam Cheikh bu soobee yàlla euh, ce 31 mars incha allah Pape waaw guddi maam Cheikh Pape Cosmique Baye Vivita moom moo ñu yor suñu maquillage ak lépp loo xamante ni dañ koy soxla pour taaru ci plateau bi moom nag teg na 10 bons de maquillage de 3000 francs téléspectateurs yi saa suñuy wootee incha allah dinañ leen ko may ñoom nag ñooy euh, Vivita marque de maquillage bu ñëw au Sénégal la nekk numéro un parce que da nga koy poudroo doo faare euh, day tee maquillage euh, vraiment ku ko soxla mën na dem fële ca avenue Georges Pompidou immeuble Soxna Anta Dakar makeup on vit cos makeup aux Almadies alors merci beaucoup Marème maquilleuse waaw borom Cambérène. waaw da ngeen ñu may nag ñun ñu wax tamit dimbali leen ñu dimbali leen ñu dimbali leen ñu dimbali leen ñu. ustaas bi kuréel toj na fi dimbali leen ñu. ngay nelaw ah, dama